asalaamualeykum tabaarakallahu nuy dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke waaye itam moo nu may nu tal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa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 te mu mel ni it boroomam moom dafa am fu yàlla jaar ak moom su ko defee moom yonent bi interprétation yi dellu ci ganeem àdduna yépp d'accord nañu ci benn point te point bi mooy bi mu ganee àdduna keroog la ngëneel wàcc ci kaw suuf ngëneel boo xam ni xol mën na ko seede rox mën na ko seede waaye mu mel ni yàlla dafa am lañoo tuddee nammeef te dafa am loo xam ni jàngal nañu ko moom borom bi ci nammeefam mu wax ni innama amruhu ija arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun mu wax ni su amee nammeef walla mu am lu ko soob dafa naan nekkal mu nekk waaye mu mel ni ci baatu nekkal mu nekk boobu ca la créer lumière yonent bi sallallahu alayhi wa jële ko ci lumière waaw ndax moom yàlla kenn du ko misaal ci cadre mbindéef danga koy misaal ci cadre leer waaw moo tax bi ñu jaaxlee ci misaal ko moom yàlla ca lanu indil alxuraan jàngal ñu wax ni allahu nuuru samaawaati wal ardi masala nuurihi ka mishkaatin fiha mishbaah al mishbaahu fi zujaajatin zujaaja ka annaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin wala xarbiya yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuur yahdi llaahu li nuurihi man yashaau waaw wa yadribu llaahu l amsaala linnaas wallahu bi kulli cheyin alim waaw mu wax moom yàlla ni bu ñu ko bëggee misaal nee na jox nañu leer pour ñu misaal ko ci waaw mu misaal leeram na mu mel waaw moo tax bi mu nammee bind yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jël ci leeram benn coté bi ñuy tuddee essence vital dans la lumière divine dafa am coté ba ñu tuddee essence vitale waaw su ñu ko sélectionné moom essence vitale boobu ci capacité bi am ci biir espace intermédiaire yi nañuy jokkalante seen leer ci lañuy ñuy comprendre lu tax nit mën a dund ci kaw suuf di noyyi ngelaw li di jaar ci bakkanam di solu ci ay poumon ñu wax ni mi ngi dund waaw waaye itam ci nañuy comprendre ni lu tax bés boo xamee ni yàlla fàtt na tur yooyu nga xam ni fa la air bi daan jaare bay dundal organisme doomu aadama bi ñuy wax ni comme noyeetul nu ni léegi kon nit ki dee na loolu boo demee fañ koy organiser benn cadre la ci lumière borom bi ba nga xam ni moom la ñu sédd la tuddee essence vitale bi muy nag moom yàlla tibb ci leeram di ci bind yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir bahru boobu la ko tibbe waaw moo tax Cheikh Alhaaji Malik bi mu koy interprété mu wax ni wa innahu is arada allahu waaw abana min nuurihi nuurana bil alami waaw mu wax ni bi mu ko soobee moom yàlla ca la fejat ci leeram bind ci leeru muhammad moom yàlla mu jële ko ci côté ba ñoo tuddee essence vitale bi waaw bi mu ko génnee it leeru Muhammad génn ak ñetti composant waaw composant bi jiitu di dégager la ñoo tuddee énergie positive mooy composant bi jiitu ci leeru Muhammad muy dégager la tuddee énergie positive waaw composant bi ci Muhammad ba léegi muy dégager lañoo tuddee énergie négative troisième composant lumière bi nga xam ni moo nekk seen digg moom la ñu tuddee jawhar waaw moom lañu tuddee jawhar waaw te mooy tey li ngeen di firee xaqiqatu muhammadiya waaw moom ngeen koy firee mooy ñetti composant yi nga xam ni bi yàlla fejatee lumière am wax ni lii lumière Muhammad la lumière bi ñetti composant la reflété waaw benn bi dégager énergie positive ca la lumière yu yonent yi ak axtaab yépp génne waaw biy dégager énergie négative ca la détracteur u yonent bi ak ay détracteur u yonent yi ak détracteur u nitu yàlla yépp génne waaw bi nga xam ni nag moom mooy dégager lañoo tuddee jawhar fa la xat mi yëpp yi génn waaw te cadre Muhammad la waaw su ko defee lumière boobu moom la yàlla jël def ko ci espace su boppam waaw ndax avant yàlla di génne leeru yonent bi benn espace dong moo amoon boobu alam amul espace moo amoon ndax alam dafay doon béréb bu ñu xàmme waaw ñu wax ni alam bii mooy alam sàngam waaw bu dee espace nag espace dafay doon bërëb boo xam ni kenn du ko xàmme lu dul ki fa nekk waaw moo tax ñu wax ni yàlla boobu nekkul woon ci alam ci espace la nekkoon te espace bi espace uluhiyaat la waaw espace uluhiyaat bi kese la waaw bu tourné ci ndeyjoor tourné ci càmmooñ tourné ci kanam tourné ci ginnaaw gis moom yàlla ni ndeke ndeyjoor existé wu fa càmmooñ existé wu fa kanam existé wu fa gannaaw existé wu fa uluhiyaatam rek moo fay existe parce que dara nekku fa lu dul moom waaw keroog nag bi mu créé lumière Muhammad ak ñetti composant yi nga xam ni moom la ko booleel ca la créé alam boo xam ni lumière Muhammad mën na ko def daluwaayam muy anam ba nga xam ni moom it dara nekku fa woon lu dul nuuru muhammad waaw la lumière du prophète waaw paix et salut waaw fa la lumière ba nekk di zikr waaw ñu wan ko ni ko fii mooy ndeyjoor waaw wan ko ni ko fii mooy càmmooñ wan ko ni ko fii mooy kanam wan ko ni ko fii mooy gannaaw lan ca jublu woon mooy muy zikr di wër lumière borom bi su demee ci ndeyjooram uluhiyaat bi te di yàlla tiire côté bi nga xam ni fa la énergie positif bi nekk su ko tiiree ruuxu cent vingt quatre mille prophètes yépp dañuy fés ca côté boobu sàbba ànd ak muhammad waaw su ko tiiree xut bu yépp seen nuuraani dafay étinceler dal di sàbba ànd ak muhammad waaw su ko tiiree saalihiina yépp ñoom it seen lumière dafay rayone sàbba ànd ak muhammad waaw noonu la yàlla doon def ca côté droite ba waaw waaye bu wëree ba ca côté gauche ba it bu yàlla tiiree côté gauche ba nga gis ni ñi nga xam ni ñépp dañoo rejeté borom bi walla ñu rejeté nguuram waaw ca la ñuy feeñ ñoom wan lumière yu yàlla ni ñoom dañ ko ndax zulmaani yu moo leen gën a waaw moo tax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ni foofu rekk yàlla àtte na waaw nee na moo tax ngay dégg ñu lay wax ni nitu ndeyjoor yi ñooy nitu aljana yi ñu wax la nitu càmmooñ yi ñooy nitu safara yi te loolu ca yowmal a tax nuy wax waaw waaye Cheikh Tijani ci déggam wax ni foofu kon yàlla àtte na waaw ndax nee na bu tiiree côté énergie positive bi lumière yépp dañuy seede ànd ak Mouhamad Sabba bu tiiree côté càmmoñ bi énergie négative bi yëfatu fa tuddoon lumière dëmmooyu ni zulmaani yu moo leen gëna a waaw muy lëndëm waaw mu bàyyi nag maître bi nga xam ni moom mooy apprécier walla mu leen di consolider mu bàyyi ko ci seen dikk waaye bàyyi kaag teeyu bakkanam muy jawhar bi waaw nga xam ni mooy xaqiqatu muhammadiya bi te gis nga ci cadre nuuraani boobu moo tax ñu mën demander Cheikh Tijani ni ko na nekk xatmiya mu ñeme rejeté waaw mu ñeme rejeté ba ba muy d'accord waaw ndax boobu diggante énergie positive bi nga xam ni moo ëmb réalité yonent yi ak axtaab yi ak énergie négative bi ëmb seen détracteur ñoom amul benn bu ñu bàyyi woon ak sago waaw énergie positive bi dañ ko doon contrôler ñuy saba ànd ak Muhammad énergie négative bi dañu ko doon contrôler ñu rejeter nguuru yàlla waaye bi ñu bàyyi moom mu apprécier ca nam ko neexe mooy jawhar bi mooy jawhar bi waaw loo tax ñu ni boobu comme amul woon benn ligne bu ko woon ak ñaari énergie yi ñu ni moo tax mënul woon doon substance waaw ndax amul woon benn ligne bu ko ak ñaari énergie waaw même ñaari énergie yi yëguñu woon existence su jawhar bi nekk ci seen dikk ñu ni waaye it comme jógu fa fa la des abadan ñu ni mënuñu ko woon tuddee phénomène bu feeñ waaw ndax phénomène dafay am ñu ko apprécier waaw waaye bu ñu yëgul ñu ni nekkinam ñu ni kon duñ ko ko mën a tuddee ñu ni kon luñ koy tuddee ñu ni jawhar waaw muy xaqiqatu muhammadiya waaw ligne boobu di dox ligne boobu di dox yonent bi nekk fa ak espace yi ko entouré yëpp tur yàlla bu mu tudd tey bu subaa ñu jox ko beneen tur waaw te tur yooyu yàlla daf ko defoon ci conscience su nuuru Muhammad waaw ci conscience su Muhammad la ko defoon ndax boobu wax gu ñuy waxi alxuraan boobu wax gu ñu waxi aadam aleyhi salaam. boobu waxaguñu waxu defar àdduna waaw te moom ma nga fa woon tur yàlla bu mu tudd su subaa mu tudd beneen waaw te tur yi mu tudd it pendant des milliards et des milliards soo leen wàññee ci ya ca bokk ca biir asmaawullaahil husna weesuwul 19 pendant des milliards et des milliards d'années li lumière Muhammad doon tudd foofu soo wàññee ci asmaullahil husna yi tey yin ci fekk motul 19 parce que 17 noo divin la yi ñu wax ni suñ ko ci boole woon mooy tax mu nekk 19 benn bi énergie positif bi moo ko jël yóbbul ko yonent yi yóbbul ko seen rox mooy tur yàlla ba ñoo tuddee alxudduus bi nga xam ni nag moom la énergie négative bi jël moom it yóbbul ko ñi nga xam ni ñooy weddi yonent yi boobu lañoo tuddee almuntaximu waaw ñu ni kon sunu génnee 17 noms divins yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd pendant des milliards et des milliards d'années ci Muhammad boobu ñu ni ñaar yi nga xam ni ñoo taxoon nu mën ko tuddee dix-neuf benn bi moom la énergie positif bi yóbbu ci yonent yi ak ci axtaab yi mooy alxudduus beneen bi moom la énergie négative bi yóbbu ci ñi nga xam ni ñooy détracteur yonent bi ak yonent yi ak saalihiin yi te mooy almuntaqim ñu ni kon moom 17 bi rek moo ko concerné ci nekk ci asmaullahil husna waaw waaye su ko defee it lumière am boobu nekkoon foofu dafa forge ci biir composant yi benn parenthèse bu extraordinaire parce que parenthèse bi moo doon mu créer fa liaison diggante énergie positive bi la moo dégagé ak énergie négative bi la moo dégagé mu créer fa liaison waaw Muhammad moo créer liaison bi de waaw foofu la yàlla tombee dogal ni amul benn mission buy exister ci mission yi war a am ci kaw suuf mu concerne mission yonent yi walla mu concerne mission xutbu yi mu ni amul bu ciy exister te lu dul lieson boobu Muhammad créé woon ci kaw dana feeñ ca mission waaw na mooy ñi baax ñi dinañu ànd nekk ci côté ndeyjoor bi di liggéey ci mission bi waaye mu ni itam ñi leen di contre ak di leen sabote dana nu nekk ci côté càmmoñ bi di sabote mission bi te liaison bu Mouhamad créé la woon entre énergie positive bi ak énergie négative bi waaw looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani wax ni yonent bi ba mu demee taayif mag ñi wax ay xale ni leen bu ñëwee nangeen ngeen ko sànni ay xeer waaw bu ñëwee rek na ngeen ko sànni ay xeer waaw mu ni parce que xam nañu li ko indi xeex indiwu ko dialogue moo ko indi te comme bëgguñu dialoguer ak moom bu ñëwee na ngeen ko sànni ay xeer waaw Cheikh wax ni boo gisee bi ñu ko sànnee xeer ak li ko yàlla demande yépp pour mu alag ñu yonent bi bañ nee na boobu ma ngay yëg ni su fekkoonte ni du ñaari énergie yooyu ca xay ba te mu créé ci lieson kon ñii duñ ko sànni doj waaw kon sànni doj bi dëgg la metti na ci moom waaye xamoon na ni doj yaa ngi koy xaar waaw ndax ñaari énergie yu ku leen boole dana am côté bu baax waaye dana am côté boo xam ni dafay yàq waaw mu ni compréhension bi yonent bi amoon yépp ci mission nee na ca xayb la jóge waaw looloo tax bi muy justifier prophétie wam moom yonent bi ndax yonent bi dafa doon justifier sa prophétie waaw xam nga lu tax mu jóg ni dana justifier prophétie moom yonent bi mooy dafa am lu ko yàlla jàngal waaw li ko yàlla jàngal te mu dégg ko mooy yàlla wan na ko ni moom yàlla mooy yàlla waaw waaye bëgg ñu xam ko ak bëgg ñu reconnaître nguuram tax na mu ni dinaa bind ba noppi yabal ku ko jàngale moo tax mu bind yonent bi waaw bind bi mu bind yonent bi yépp moom borom bi lenn ko waral mooy bëgg ñu reconnaître nguuram ba bu ñu waxee maalikal mulki ñu xam ni moom moo yore mérite bi waaye itam mu bëgg ku ko jàngale ba bu yonent bi jëlee alxuraan wax ni fax faxlamu annahu laa ilaha illallah ñu mën a xam ni kat dara nekk fi lu dul moom yàlla waaw waaye loolu yépp teewul yonent bi jàng si ni moom kon war na mën a justifier sa prophétie donte soxlawul woon justification mu jaari ko ci benn côté bu extraordinaire côté bi mooy mu activer jawhar bi waaw xaqiqatu muhammadiya bi mu activer jawhar bi jawhar bi génne ñaari synthèse synthèse buy représenté xatmiya ak synthèse buy représenté katmiya waaw synthèse biy représenté xatmiya defar ay nit ñooñoo tuddee wëli yi al wëli yu le maître l'auxiliaire mooy synthèse ba ñoo tuddee xatmiya waaw synthèse ba ñoo tuddee xatmiya génne réalité la ñoo tuddee la réalité de la quintessence des secrets prophétiques waaw ñu ni l'intermédiaire entre le prophète Mohammed paix et salut sur lui et les autres prophètes yonent bi nag xam ni lii mën na ci jaare justifier sa prophétie te boobu ni mu décider jaare ci pour justifier sa prophétie mooy xam na ni bu loolu amee assemblée général dana am te bu assemblée général amee ki nga xam ni mooy président de séance ba dana wax la pour pourquoi ñu créer assemblée bi walla pour quoi assemblée générale am te moo jur xadaratul ilaahi te loolu moo jur xadaratul ilaahi waaw moo tax yenent yàlla Idris mu wax ni su ko Muhammad invité moom yenent yàlla Idris moo ko wax mu ni ba noppi saal bi ko Muhammad invité ñu jox ko ko fauteuil ni ko toogal ndax yaay président de séance bi nee na dana nangu teraanga ndax kenn du ko delloo waaye su paree ca nangu teraanga ba ba noppi nee na dafay ñëw ci Muhammad fa mu toog teg tànkam mu toog ca diggante ñaari tànkam moom yeneent yàlla Idris moo ko wax ca diwaanul xiraa ndax dañu ko invité ci neuvième jour ci shahru muharram bi mu ñëwee ñu ni ko Muhammad nee na yaay président de séance bi mu wax ni danaa ko nangu ndax teraangam kenn du ko delloo waaye su ma ko nangoo ba noppi mu ni nañ ma tegtal fu muy toog bu ñëwee bu toogee ba noppi ma toog ci diggante ñaari tànkam waaw ñu ni ko lu tax mu ni ndax li mu liggéey ci ñun yonent yi moo tax waaw li mu liggéey ci ñoom yonent yi waaw kon ñoom ñi ngi bàyyi xel seen démb seen démb ni Muhammad la woon waaw li yenent yàlla Idris wax ca diwaanul xiraa noonu lañ koy déggee mooy ñi ngi bàyyi xel seen démb ni seen démb Muhammad la woon waaw ndax ci énergie positive bi la waaw loolu moo tax keroog bi mu ko waxee Cheikh Tijani dafa jóg def synthèse salaatul fatiha waaw ni honneur bi nu mën a réserver Muhammad mu ni mooy ñu àndandoo wax ni allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatiha li ma uxliq waaw moom mi tijji li tëju woon ba léegi mi ngi ci énergie positif bi mi ngi ci énergie positive bi te ñoom yëg nañ ni ndeke lieson bi am ci diggante ñaari énergie yooyu nga xam ni bu ci nekk ci composant wu buulu lumière Muhammad la bi yàlla jële ci leeram moo indi tey mission mën a am ñoo xam ni dañuy taxaw ca beneen wet ba ni duñu nangu waaw ak kat li yonent bi jànkoonteel yëpp waaye gis nga comme jawhar bi foofu dañ ko fa bàyyi woon rekk muy émettre waaw te wutaluñ ko finalité waaw jawhar bi nga xam ni moo nekkoon ci diggante ñaari énergie yi dañ ko fa bàyyi woon muy émettre te wutaluñ ko finalité muy xaqiqatu muhammadiya ba yàlla ci xereñam créer beneen situation ci dundu yonent bi te créer ko uniquement pour wutal jawhar ba finalité pour wax la ni yàlla lu mu décider def dina ko wutal sabab seetal dafa bàyyi ba yonent bi gane àdduna ci wàllu shahaada mu natt ko ba natt ko ci mission bi mu ko nattee ci mission bi ñu daldi wax ni yàlla nee na dafay tester mission bi lim ko jaral moom Muhammad waaw te pour mu tester li ko mission bi jaral mu créer xeex waaw mu créer xeex waaw bataille de Badr waaw bi Badr amee yonent bi décidé. jàmmaarloog yéeféer yi waaye fekk boobu ñoom yéeféer yi ci nombre dépassé woon nañ leen waaw yonent bi activé waat mu activé waat énergie positif bi waaw ca la malaayika yi wàcc jaare ci énergie positive bi ca la nitu yàlla yi fekke badar wàcc jaare ci énergie positif bi ñu ànd ñoom xeex ba yonent bi remporter victoire bi waaw muy victoire éclatante waaye fekk na ba léegi borom bi parewul ndax ma ngay wutal finalité jawhar ba mu jóge ci boobu ni comme bii énergie positive bi moo réagir kon jawhar bi pour mu réagir moom pour am finalité damay créé waat beneen bataille mu indi Uhud mu daldi indi bataille Uhud waaw ba noppi bàyyi yonent bi moom comme moo amoon ñetti composants yi ni ko yow yaay chef de guerre bi tey stratégie yëpp muy stratégie militaire yi yow mii lañ ko dénk yaay wax nañuy def waaw yonent bi wax la mu wax jullit yi keroog dem ci ligne de front bi rëdd waaw ni leen fii ngeen di positionné wu waaw rëdd beneen côté ni yéen it fii ngeen di positionné ni bu yéeféer yi ñëwee nañu perse fii song leen waaw waaye buñ leen songee yéen ñii position bi bu leen fi jóge bàyyi leen ñee song te ngeen garder position bi waaw fekk yàlla mi ngi wutal finalité jawhar bi waaw yéeféer yi attaqué song position bi nga xam ni ñoo yore woon wàllu riposte bi ñoom ñu jóg riposte waaw bi ñu ripostee rek yàlla ci xereñam mu bàyyi ca riposte ba tiital leen ñu commencé daw seen bagage ya di wat waaw position bi yonent bi waxoon ni lu mënta xew bu leen déplacé wu ñu bàyyi fa kàddu yonent bi dem topp yéeféer yi di di forcé ni ay marchandise ak seeni bagage waaw yi dem ba gis ni bàyyi nañu position boobu ñoom it ñu percewaat retourné ñëw wër leen ndomb waaw rey ci ñu bare blessé yonent bi te lépp yàlla ngi seetaan di ndax jawhar bi rek lay wutal finalité mu créer lu mel noonu seetal boobu organisation moo tax yàlla kenn du ko mesurer waaw di wutal jawhar finalité tax nga créé jullit yi seen bopp nu désobéir yonent bi waaw ñiy ñàkk ci seen bakkan ñu blessé yonent bi waaw mu mu metti ci ñoom waaw ñu rey Hamza te boobu Hamza moo doon jàmbaaru lislaam boo xam ni kenn weranteetul woon jàmbaara waaw ñu rey ko waaw te lépp yàlla di seetaan yonent bi wëlbatiku am lu ko naqadi waaw te li ko naqadi moom yonent bi du sax rek rey ba ñu rey Hamza mooy ñiy tuddee seen bopp ni ay compagnon lañu wax ni ko yow la yàlla jox lanoo tuddee wàllu prophétie muy nubuwa yow la yàlla di wax nga dinu wax mu wax leen ba noppi nu désobéir wax waaw yonent bi am lu ko naq waaye gis nga foofu yàlla def fa benn xikma bu am solo te mooy yonent bi keroog la muy am lu ko naqadi lu ko naqadi compagnon mi ñoo ko ñoo gën a am lu leen naqadi ñoom waaw ndax ñoom dañu ni responsable lañu ci ñaar tey responsable lañu ci ñun ñoo désobéir ordre boo xam ni bu ko yonent bi waxee ci yàlla lu jóge beneen bi mooy ñun ñoo xoole ci suñu ñàkk dégg ndigal ba ñu blessé Muhammad waaw te Muhammad di suñu prophète ñuy xoole ba ñu blessé ko waaw ñuy xoole ba deret ji sang ko ba xàmmeetuñ ko te bu ñu taxawoon fa mu ñu waxoon kon loolu du am kon gis nga yonent bi fa mu nekk ma nga fa di naqarlu waaye compagnon yi it ñoom ña nga fa di naqarlu waaw fi yonent bi di naqarloog ak nañ ko blessé fa ko yàlla déewee ni ko jawhar bi am na finalité tey waaw mu ni ko jawhar bi tey nommé nañ ko xilaafa nuuru muhammad waaw ca Uhud laa wax fa la nomination bi ñëwee waaw mu ni ko jawhar bi tey di xaqiqatu muhammadiyee bi nommé nañu ko xilaafa nuuru muhammad te sa njaboot ñoo koy donnante sa njaboot ñoo koy donnante waaw xatmiya bee koy donn xatmiya bi bu fi jógee moom it nu koy donnante waaw xam nga moo tax Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu waxoon njabootam ca fees ni leen su ngeen ma suulee dellu leen ay numaadi nu ni lu tax mu ni parce bu ngeen fi toogee nu fal leen xalifa te man sama xalifa yonent bi moo koy tànn wax jooju ñu bari dégguñu ko boobu moom ci quintessence mystique bi mu deteniir yëgoon na ni ca Uhud la yàlla jëloon comme décision mooy jawhar bi tey mu nekk xilaafa nuuru muhammad nu di ko donnante te moom bu ko donnee ndax mooy xatmiye bi su ko keneen dee donn it yonent bi moo war a apprécier parce que moo ko moom waaw moo tax mu firil ka njabootam moo tax mu firil ka njabootam waaye gis nga saxaaba yi amoon li leen naqadi it ñoom ba jaaxle ndax boobu am na ñu daw ci groupe bi wax ni euh, rey na nu yonent bi waaw ndax gisatuñ ko woon réer na ci mbooloo mi te deret ji sang na ko waaw am ñu daw ni kon mission islaam ba jeex na ñu ni lu tax ñu ni ndax dégg nañu ni rey nañu yonent bi jullit yi bàyyi nañu seen position attaqué nañu yéeféer yi dégg nañu ni rey nañu yonent ba waaw saxaaba yi nga xam ni jotuñu woon vérifier ndax yonent bi mi ngi dund ñu am tiitànge boo xam ni mooy mission islaam bis bu échegee tey ñoom ñooy nekk vrai responsable yi ndax ñàkk dégg ndigal waaw ci jaaxle boobu ci tiitànge boobu yàlla xamal yonent bi ni ko bis ni ki tey ci seen tiitaange bi ñu am ci bi ñu yëgee ni blessé nañ la fay naa leen ci yiw waaw gis nga nit dina fonk leer fonk bi mu ko fonk dong tax ñu fay ko ci fonk ba noonu la yàlla defal sahaaba yi ca Uhud waaw mu wax ko yonent bi ni ko ci tiit bi ñu tiit rekk ni blessé nañ la ñu jaaxle ba xamatuñu li ñuy def yàlla ni ko fay naa leen ci yiw yonent bi ni ko ban yiw nga leen fay yàlla ni ko léegi damay changer damay changer sama appréciation ci ñoom dootuma leen atteeti ci seen jëf dama leen di atte ci seen volonté wax ju am solo la yàlla ni lu ñu jëfati ci sa wet yow yonent bi man baaxal naa ko waaye duma ko xool lan lay xool mooy seen volonté pour ëllëg waaw lan la leen mission bi jaral yàlla ni tey lañ ma koy commencé wan suñ ma ko wanee ma noté leen lu baax wala ma noté leen lu baaxul kon seen volonté lay àtte bis ni tey keroog bi ñu demee ñoom ba retourné yonent bi wax ni nañ leen woo wax leen ñu ñëw ndax seen erreur bi ñu defoon yàlla am na loo xam ni ci seen tiitaange tey récompensé na ko mooy bis tey yàlla dootul xoolati seen jëf seen volonté lay xool inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ñu ni engagement nag mooy am waaw engagement bi mooy seen bakkan ak seen alal walla seen alal walla ñi amul alal indi seen bakkan waaw walla ñu boole ñaari yi muy seen volonté xam nga bi Umar duggee ci islaam dafa am bu mu laaj Ababakar dafa ne Ababakar moom même bi muy nekk sax ci biir noonu islaam yi dafa mës dégg ñoom ñuy wax Ababakar ci tabeem waaw Umar moo ko wax Ababakar mu ni ko même bi may nekk ca beneen côté bale nga xam ne ñëwaguma ci yéen ñi ma nekkaloon dama daan dégg ñuy wax ni yow Ababacar da nga tabe waaw ma laaj leen lu tax ñu ni ndax tey jii boo gisee mënuñu gañe ba léegi Muhammad ci wàllu ni mu néewee woon doole Ababacar mii bokk na ci ñu koy financé waaw ñu ni dafa tabe ndax tey jii moom alal ji mu am mënoon na ko dencal boppam wala mu dencal ko waa këram wala mu toog sax ñu boole ko ci dignitaires yu mag yi muy dugal ci marché bi di génne ci marché bi lu ko neex waaye dégg nañ ni ma ngi koy partagé ak Muhammad waaw Umar ni ko boo gisee ma ma wax la ko nag mooy jottali la ñoom lañ doon wax mu ni ko mooy réponse laa ciy jublu mooy nga wax ma lu tax ngay def noonu Ababakar ni ko dafa am lu ma yonent bi yëgal mu ni bi ma déggee mu ni sunu volonté moom la yàlla di xool ba léegi volonte bi ma amoon dama ko xeeb waaw lu ma def tey bu subaa ma def lu ko ëpp waaw mu ni ko ndax wax na ma ni léegi xam naa fi ma yàlla di jaare mooy ci sama volonté la may xoole Ababacar wax ko Umar waaw moo tax Umar nag keroog mu wax ko ni ko su ma néewee doole man sax danaa wane volonté ci xeex waaw te boobu beneen facette la ko doon jox ci wàllu volonté daf ko bëggoon wax ni ko volonté du rekk nit ki am alal jël alalam di def nit mën na ñàkk alal ba noppi am beneen facette bu mu wane volonté mu ni ko ci ban facette mu ni ko ci xeex waaw kër ni ko ñun ñëpp ñooy xeexandoo mu ni ko bu xare amee ñun ñëpp ay xeexandoo Umar ni baax na bu ñu dematee xare naa la wan sama facette ci wàllu volonté waaw bu nu ñëwatee xare Umar tànn lu tolloog juróom fukk ni bàyyi leen ñii ak man te ngeen res ñeneen. ñu di ko ci seetlu te ñoo ñëpp dana leen gañe ci xeex ba keroog bi ko Ababacar di seedeel ni ko sa volonté ci xeex ñëpp seede nañ ko moom it mu ni ko yow sa volonté ci sa def ci islaam ñëpp seede nañ ko mu ni ko te li ñu yonent bi jàngal muy Muhammad mooy ñu fexe ñun ba ku nekk mën a apprécier sa moroom ci côté bu positif waaw lu am solo la waaw lu am solo waaw parce que boobu yëgoon nañ ni ñoom loolu fu mu am jëw bu ñaaw dootu fa am waaw ñoom yëgoon nañ ni loolu fu mu am jëw bu ñaaw dootu fa am jëw bu rafet rekk fay am waaw looloo indi boo toogee ak mu ni la da ngay wut ku baax nga ni waaw mu ni demal seeti Umar waaw nga toog ak Umar ni koy ci yow la ñu wax mu ni dangay wut ku baax ñu ni waaw mu ni demal seeti Ousmane nga toog ak Ousmane mu ni da ngay wut ku baax ni waaw mu demal seeti Alioune nga dem ci Alioune mu ni dangay wut ku baax nga ni waaw mu ni demal ci Ababacar dafay dellu fa mu jóge woon waaw parce que yëg nañ ni jëw bu ñaaw mënatul am ndax nee na yonent bi la mu bëggoon ci ñoom mooy ku ci nekk jéem a apprécier sa moroom ci côté bu positif waaw mais li am solo mooy waxuñu ko woon ñoom comme dañ ko bëgg a wax dañ ko liggéey waaw dañ ko wane waaw wax ko Umar ni ko suñu demee ci xeex yi mu ni ko damay dem ba damay bëgg sax nekk sa fan si ci biir xeex bi ndax ñi ngay tànn ñëpp ñu balaak ñoom nga fexe ba kenn ci ñoom du accéder ci yonent bi waaw ñun ñu nekk ca beneen côté ba di xeex mu ni ko waaye yow itam su ma gisee nga jël sa alal mu ni ko di ko def ci diine ji damay bëgg bokk ci safaan si ndax la nga amoon yépp jël nga ko def nga ci islaam waaw ñoom ñaar ku ci nekk apprécier sa morom ci côté bu extraordinaire waaye fekk boobu gis nga yàlla lam doon bëgg mu am finalité am na finalité waaw muy jawhar bi jawhar ba am na finalité waaw looloo tax bi mu décidé Uhud ni créé nañu tey ca xayba xilaafa nuru Muhammad te kenn du ko donn lu dul nga bokk ci xutbu yi waaw ñu activé waat énergie positive bi ndax xutbu yi ci énergie positive bi la ñu jóge ci composant Muhammad la ñu jóge kon xilaafa bi génnul ba léegi Muhammad ci boppam waaw xilaafa bi ba léegi Muhammad waaye mu dem mu dem ba yëg ni du ñëpp ñoo ci am accès te it du ñëpp ñoo ko mën a xam waaw mu ni koon nag moom yonent bi ci boppam bëgg na nu siiwalaat xilaafa boobu waaw nu siiwal ko bëgg koo xam ni sax munoo fa am ndona mais nga xam ni mu ngi existe waaw mu activé waat moom yonent bi jawhar ba waaye nit day bàyyi ba ca mujjub jamono bi cheikh feeñee ci shahada ak la mu yor yépp keroog ba ñu ñëwee ci condition yi ba moog yonent bi nu toog yonent bi lam ko wax dafa ni ko nañu àggale lañu waxante woon ca xayb waaw te mooy nu siiwal nag jawhar bi waaw cheikh ni ko nan lañ koy siiwalee mu ni ndax ñi ko donnul mën nañ ko bañ xam te bëgg naa ñépp yëg ne existe waaw cheikh ni ko nag nan la ñuy def ca la ni ko jëlal pulim waaw cheikh jël pulim mu ni ko bindal mu ni ko lu may bind mu ni ko bindal allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutaxaqiqatil xaaitati bi markazil fuhumi wal maani wa nuuril akwaanil mutakawinatil adami taahibil xaqi rabbaani cheikh di bind di bind di bind ba jawharatul kamal jeex mu ni ko ku la jawhar bi ci sama biir diggante énergie positive bi ak négative bi mu ni ko wan ko këyit baa ngi de mooy jawharatul kamal moo tax moom mooy xaqiqatu muhammadiya ci li ñu mën a liir waaw moom jawharatul kamal waaw mooy xaqiqatu muhammadiya ci la ñu mën a liir waaw parce que la ñu mënul teg loxo ak li ñu mën a gis ni mi ngi nii ñu wax ni doore na nàngam ba finalité am nàngam la ci xaqiqatu muhammad yi benn représentation la am muy jawharatul kamal waaw leneen lu ñëw rek dañ koy delloo si biir waaw waaye bii la ko yonent bi wax ni boo yeboo nga bind ko pour pour nu siiwal ko waaw mu bind ko mu siiwal ko loolu moo indi nga gis koo xam ni mënul donnu xilaafa googu mënul yëg existence su xilaafa ga waaye mën na yor kurusam jàng douze jawharatul kamal ci malaanu wasifa waaw te yonent bi wax ka nag ni ko fuñ ko jàngatee ma seede ko waaw su ma ko nangoo waaw moo indi juróom-ñaari per yi ñëwam boobu waaw mu ni ko fuñ ko jàngatee su ma ko nangoo rek dinaa ko seede moo indi juróom-ñaari per yi mu teew waaw waaye itam mu ni ko su may teew di ko sedd it danaa ànd ak ñi nga xam ni ñoo ko doon mooy indi mbooloo xay bu ba muy àndal suy ñëw ci malaanu wadif waaw pour wax la lenn lu ca nekk waaw lenn lu ca nekk dañ ko organiser minutieusement lenn lu ca nekk dañ ko organiser minutieusement xamoo looloo tax li yàlla defal saxaaba yi ci Uhud bépp compagnon missionnaire na nga bàyyi xel loolu waaw mooy di nga toll ci foo xam ni sa jëf rekk dootul compter mais sa volonté mooy compter te moo indi domination bi ñu mujj am ñoom domination bi ñu mujj am ñoom ndax toll nañu foo xam ni dañu dem ba yéeféer yi wax ni comme ñun ñoo leen ëpp alal nañu jël alal bi tekk sur la table jënd lu ñu mënul jënd ba pare dem combattre leen waaye keroog bi ñu génnee jënd jënd jënd bi ñu leen waxee Ousmane jaar na ci marché bi moom it jënd na jënd na dañu xam ne mënatuñu xeex ak mission yonent bi jaari ko ci alal. seetal boobu hikma ndax seen volonté rek lañu yàkkaar waaw ndax seen volonté la ñu yaakaar waaw gis nga volonté boobu yàlla di topp looloo tax yenent yàlla Suleymaan aleyhi salaam yonent yi bu ñu leen di insérer nubuwa bu ñu leen di insérer nubuwa dañ leen di delloo ci cadre Fathul Kabir cadre Fathul Kabir bi tubaab di tuddee la grande ouverture dañ leen di delloo ba ñuy gis ñoom ba ñu nekkee leer xam nga ci ñetti étape la leen yàlla di jaarale ñoom yonent yi cadre nuuraani mooy cadre bi njëkk ci ñoom cadre roxaani yu mooy seen deuxième cadre ba cadre bi nga xam ni ca lañuy dem ba dund ci shahaada ñu wax ni bokk nañ ci bani aadam waaw moo tax yonent yi nag bu yàlla dee def ci ñoom prophétie bi di ko fi insérer fatwul kabir bi leen di dikkal daf leen di delloo ci seen cadre nuuraan yi waaw ñuy gis seen démb ci gis boobu ñuy gis seen démb janook moom muy bi ñu nekkee leer ca lay borom bi di jaarale ci sëkkëram insérer leen seen nubuwa waaw waaye gis nga kawu yeneen ci yàlla suleymaan aleyhi salaam bi yàlla décidé insérer ko nubuwaam daf ko xamal ni ko dinaa fexe activé ci yow fathul kabir waaye su ma ko activé doo gis cadre bi nga nekkee woon nuuraani waaye cadre bi nga nekkee woon roxaani ngay gis ci yenent yàlla Suleymaan te yonent yi loolu seen naturel ci ñoom suñu activé pour dugalal leen seen nubuwa rek seen cadre nuuraani yu la ñuy jàkkaarloo yàlla de ci xikma yonent yàlla Suleymaan ni ko su ma lay defal fathul kabiir sa cadre roxaani yu ngay jàkkaarloo ca moment boobu ca lay insérer sa nubuwa ci sa biir rox waxu ko ci sa biir leer yenent yàlla suleymaan jaaxle ci waaw jaaxle ci loolu ndax xam na ci nawleem yonent yi du doxe noonu d'habitude waaw kon lu tax moom ak lu tax euh, ñu doxale noonu ci moom waaw walla waaye yàlla bàyyi loolu rekk mu gane àdduna yàlla bàyyi ko noonu waaw ba léegi waxu ko réponse bi waaw mu commencé diriger ay sànceem waaw sànce yi mu am yëpp waaw ak ay pale waaw ñu bàyyi ko noonu waaw ba benn bés yenent yàlla suleymaan toog di def méditation ci digganteem ak borom bi mu defee méditation ba yàgg benn malayka jóge alamul malakoot ñëw ni ko sa borom nee na loo ñaan ci sa méditation bi sa digganteeg moom rekk dana la ko accordé suleymaan wax malaayika bi ni ko soo demee nga wax ko lenn rek laay ñaan mooy lu tax bi may defal fathul kabir sama nubuwa inséré wu ko ci sama kaadur nooraani waaye sama cadre roxaani yu la ko inséré waaw te muy yëg samay nawle yonent yu bare ci seen cadre nooraani yu lañ ko inséré malaayika bi dem ca alamul malakoot tuuti dellusiwaat siwaat waaw ni yenent yàlla suleymaan sa boroom nee na nga ñaanal ko sa bopp waaw maanaam bañ ma yónni mu ni ko nga ñaanal ko sa bopp waaw yenent yàlla suleymaan di waaja ñaan loolu mu tàllal loxoom yàlla dippi làmmiñam ca ñaan mu répondre ko changé ñaan ba mu ni rabbi ixfir li wa habli mulkan laa yanbaqi li ahadin min ba'di te boobu kat dafa doon ñaan pour yàlla tontu ko malayka bi nee na nga ñaanal kese sa bopp mu diside ñaan loolu ba noppi tàllal loxoom faf ñaan yàlla rabbi ixfir li wa habli mulkan laa yanbaqi li ahadin min ba'di pour wax la yàlla lu mu bëgg nga ñaan ko rek nga koy ñaan waaw ndax boobu parewul woon pour jox ko explication bi te wax na lu mu ñaanati fii dana ko ko may yàlla yokk nguur ga waaw yàlla yokk nguur ga waaw pale yi gën a bare jinne yi koy liggéeyal gën a bare ñépp ñëw wëlbati ko ci ci ci wetam léegi fi mu ne moom yonent yàlla Suleymaan laajatul sax réponse ci question waaye amatul temps bi ndax guddi ak bëccëg mi ngi superviser chantier bi waaw mi ngi koy superviser waaw guddi ak bëccëg waaw bu njëkk ba day méditer rek di wax ni euh, réponse bi kañ la réponse bi kañ la lu tax ñu insérer sama nubuwa ci sama cadre roxaani yu te bañ ko insérer ci cadre nuuraani bi waaw dem ba malaayika bu jugewaat alamul malakoot ñëw ni ko sa borom nee na nga ñaanal ko sa bopp mu faf ñaan la mu ñaan te alxuraan indi ko waaw waaye mujj na pale yi di bare di bare ba mujj na moom sax talatul léegi di laajaat question ba waaye mu ngay gérer jinne ma ngay gérer nit ñi jinne yaa ngay voyager te bu ñuy voyager aussi moom ci moyen de transport am la ñuy voyager parce que moo leen di teg ci bassin jàngal leen secret ba muy jàng ñu soog a jóg dem waaw mu leen di gérer ba mujj am liggéey bu ko doy sëkk waaw waaye gis nga keroog pour wax la yàlla xere ñoom kenn xamul lan bi mu demee ba bés moom yenent yàlla Suleymaan muy superviser jinne yi ñuy liggéey ak nit ñi bi mu leen di superviser rek yàlla annoncé malaaka mawti ni ko mission Suleymaan jeex na waaw te itam war na kon dellusi si fa mu jóge woon muy ci xayb malaaka mawti nag demandé borom bi ni ko mission yonent suy jeex buñ koy annoncé malaaka mawti dañ ko koy annoncé lu tolloog soixante-douze jours avant waaw mais kenn du ko ko annoncé nii ci urgence waaw ñu ni lu tax ñu ni ndax yonent dafa am lu mu yore te malaaka mawti dafa àttanul loolu ñu ni lan la ñu ni yonent dañu def ci moom loo xam ni bokkul woon ci moom ci xayb la jóge te dafa diis ba malaaka mawti àttanu ko nu koy tuddee nubuwa waaw muy sa prophétie moo tax buñ ko ko annoncé nag ci soixante-douze jours avant yàlla dina yabal malaayika yoo xam ni ñooy dem di jël étincelle nubuwa bi benn par benn di jël étincelle nubuwa bi benn par benn ba malaaka mawti buy ñëw dana fekk ni nu booba dem na waaw ndax du moom moo koy yóbbu du liggéeyam waaw moo tax léeg-léeg nga dégg malaayika nga nga liggéey bu dul liggéeyam malaaka mawti jëli nubu woo ci yonent di delloo asamaan du liggéeyam waaw jëli bakkan lañu ko sant mooy jëli rox waaw looloo tax bu waree jël yonent nag dañu ko koy annoncé soixante douze jours avant su boobaa cortège u malaaka yi nga xam ni ñoom la war a contacter yëpp mu contacter leen ñu dem def seen liggéey mooy di roñ étincelle yi benn par benn di roñ étincelle yi benn par benn ba moom bu ñëwee fekk jeex na mu soogay jël rox ba yóbbu bi concerné Souleymane mu xëy rek ñu ni ko tayal te Souleymane ma nga samp yat ba ma nga ca sànce ba mu demande waaw demande waaw ni léegi nag lu cay pexe yàlla ni ko danaa def beneen organisation bu am yàlla woo jibril aleyhi salaam ni ko prophétie bi nekk ci suleymaan muy nubbuwaam waaw jël ko nga solal ma ko ci yat bi mu yore woon moom Suleymaan kaan bi mu daan yore nga xam ni moom la samp ca instant boobu yàlla ni Jibril jëlal prophétie bi nga sol ko ci biir kaan bi waaw Jibril demandé ni ndax euh, prophétie bi euh, kaan bi dina ko àttan yàlla ni ko préparé naa ko démb tey ay dikk moo tax bi ma koy defal fatul kabir inséré wuñ ko ca ba mu nekkee nuuraan yu dañ ko insérer ca ba mu nekkee ruuxaan te yat boobu muy gàddu ca loxoom ñaqu loxoom yi nga xam ni ñooy laal yat bi def na yat bi lumière boo xam ni am na degré ni roxam toll moom kon mën na denc nubuwa bi moom yat bi xoolal fi réponse bi jóge waaw jibril ñëw jël nubuwa bi dugal ko ci yat bi waaye comme Souleymane mi ngi téye yat bi nii ba léegi dafay connecté waaw ngi téye yat bi te nubuwa bi prophétie bi transféré nañ ko ci biir baton bi mais comme mi ngi téye bâton bi ba léegi looloo indi connexion bi ba moom Souleymane sax yëgul woon ni nubuwaam transféré nañ ko parce que xam prophétie su nekkee sa rox connexion bi ngay am su nekkee ci loo téye sa organisme jàpp ko même connexion bi lay doon du te boobu mi ngi téye yat bi moom moom Suleymaan ci la malaaka mawti ñëw ndànk jël rox ba dem waaw mu continuer tey yat bi jinne yi di liggéey nit ñi di liggéey fekk yenent yàlla Suleymaan génn na àdduna ba noppi continuer tey yat bi nit ñi di liggéey jinne ji liggéey parce que ku ko xool mi ngi téye yat bi ni sëpp sànce bi di superviser palais bi benn jinne ñamewul woon arrêté liggéey ndax euh, ñëpp a ko ragaloon ca nam daan superviser waaye alamul malakoot yépp ñu ngi déglu borom bi waaw ndax Suleymaan jël nañu roxam waaye yat baa nga fa te yat bi moo def nubuwa bi waa alamul malakoot di demande ni waaw léegi bu fekkente ni kenn ci taalibe mi ñëw na jël yat bi nag day doon nu boobu bi wala nu muy dem parce que loolu lu bees la ci ñoom mësul am ci kaw suuf ñu fekkee ko situation bu mel noonu fekk yàllaa leen di wan xereñam yàlla daal di activer xasharaat yi ni leen nañ ko ci génneel 313. ci ay la tuddee max mu yabal leen max yi su ñu demee ñu dugg ci yetu suleymaan bi ñu indil ko nubuwa bi ay max laa wax max yi di wàcc kenn par kenn jóge xëy bi di dugg ci yat bi di wàcc kenn par kenn jóge xëy bi di dugg ci yat bi ba mu mat 313 ñu commencé seen roñ max bu ci roñ étincelle naaw dootoo ko gisati ñuy roñ ba trois cent treizième bi ba mu roñee génne ca la nubuwa ba jeex ca biir yat ba delloo nañ ko xëy ba yat bi daal di fracturé damm yeneen yàlla Suleymaan daanu ñu ñëw jinne yi daw seeg nit ñi xool ndekki génn na àdduna depuis bërkaati démb te kenn yëgu ko te ñépp a ngi doon jaaxle ci toogaayam bu yàgg bi waaw kaan bi damm mu daanu ñu ni ah moom buur bu toll ni moom daawul daanu ñu ñëw xool ñu ni ndekk génn na at parce que li teewoon kaan bi ak force bi mu amoon mooy nubuwa ba ñu defoon si biir mais gis nga yàlla ci xereñam mu mu roñloo ko ay max roñloo ko 313 max ñu jël ko ñoom delloo ko ca xayb waaw te boobu li ci borom bi jublu woon mooy dafa doon bëgg wan malaayika yi nit du ñoom rek la am ci comme mbindeef bu mu mën yónni waaw parce que mënoon na yebal malaayika yi ñu dem ci yat bi jëli étincelle lumière yi mais borom bi dafa ne su defee noonu day désorganiser processus biñ daan dem di retirer nu bu wa yonent parce que processus bi ñu ko daan retiré mooy 72 jours avant que muy génn àdduna te kii nii génn na àdduna waaw te li des euh, daawul am mooy nubuwa bi mu ngi ci baton bi waaw te il fallait ñu retirer nubuwa bi delloo ko ca xay bu ndax ca xay bi lu jóge mu yebal max yi seen nombre du 313 waaw yàlla may leen nag puissance boobu. yàlla may leen puissance boobu waaw ñu retirer lumière yi benn par benn di retirer di dem di retirer di dem waaw waaw bi ñu retirer ba trois cent treizième bi ba muy dem fekk na nu a nekkatu fa bant bi daal di damm waaw yent yàlla Suleymaan fa mu fa mu toogoon te bant bi mu daanu ni ñu daw si xool ndekk génn na àdduna te ñoom yëguñu ko yàlla jaare ci nag jël max fal leen fal leen jox leen puissance boobu mooy ñu mën di réagir te doo ko yëg yow waaw mën a dugg ci biir xam nga euh, dañ daan wax ni su ñuy dugg ñoom dañuy dugg ci bant bu wow waaw ñu ni lekk bant bi te xamuñu ni am nañu puissance dugg ci bant bu tooy Cheikh Tijani Chérif mës na leen yónni fii ñoom si si constaté ko xam nga lu tax mu yónni leen fii ngeen di jàppoo dañu jël benn màng ma ni dama fii ji màng xoox bi ma bind laata ma koy ji bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ma daal di ko fay eh, teg dal di koy suul waaw màngo boobu bu yàgg la màngo bi commencé di sax di sax di sax ba commencé di màgg waaw si si xëy rek ñëw ne ma màngo bi de max yi ñu ngi koy lekk mais lu ma jaaxal mësuma gis max muy lekk màngo bu tooy waaw ma di ci jaaxle cheikh ni ma la nga bind laa leen wax nañ ma ko jëlil moo tax ñu nekk ci biir mu ne loolu la ñuy rocc keroog bi ñu ko roccee ba ixlaas ba ma bindoon jeex màngo bi dafa woo koŋ dama mujj ni leen man jiwatum fa màngo màngo boobu ngeen ji siisee ko siisee ko fa ji <laughs> ba ñuy jàpp dama mujj découragé si man ji boobu demoon na ba mag waaw mu ni ma loolu la ñuy jëli te xam naa lu tax ñu jëli ko parce que degré de puissance bi ma bindee woon sooratul ixlaas boobu dafa doon ragal ku ñëwati dagg ci doom dégg lañoo waxante ñoom waaw ndax c'est mystique parce que c'est mystique waaw loolu c'est mystique waaw loolu la doon ragal mu dem ba am doom mu ñor ku ca daggati yooyu ca dara di dégg loo daawul dégg mu yebal ay max fii ni leen nañ ko jël ñu jël ko si si mi ma ko wax ni ma daan naa gis max di lekk bant bu wow waaye bant bu tooy xepp moom dem na sax euh, dégg naa jëndi yooyu di di rey def def teewul ñu de ñu dem seen yoon ni ko max yooyu di jël secret yi te gëw ma ni produits chimiques yi mën na leen rey waaw waaw parce que bu doon loolu fa ñu dugg ci yenent yàlla Suleymaan ak karoom ya na mu sete karo ya nga xam ni jinne ya koy fobeeri guddi fobeeri bëccëg fobeeru suba fobeeru ngoon ba karo yooyu dafa daan melax moom yent yàlla Suleymaan mu teg ca baton ay max dugg ci moo tax bi ñu nee max ñu ni fu muy jaar xanaa max kay ci bant boo xam ni sax dafa samp ci suuf lu yàgg mais bu tegu ci karo karo yu brillé karo yoo xam ni vert la waaw nga xam ni jinne yi moom la ñu décoré woon palais yenent yàlla Suleymaan yëpp muy melax waaw moom lañ ko décoré woon waaw waaye yàlla fexe ba ci seen cadre ñoom hacharaat yi mu créé ci énergie boo xam ni fu ñu ko jëme lu ñu fa bëgg rocc daañ ko rocc waaw yàlla may leen puissance boobu yàlla may leen puissance bi moo tax yonent bi bi muy jàngal sahaaba yi dund yonent yàlla suleymaan daf leen wax ni dafa naw yonent yàlla suleymaan ci ñaari fasetam yu bokkul Alioune ni ko ban faset mu ni benn bi mooy Suleymaan li muy doon yonent yépp nee na mësul noppalu ci liggéey ba ñàkk waaw foo ko fekk mi ngi supervise vingt quatre heures sur vingt quatre point bu nekk ci pale bi bu ci manqué dana taxaw laaj la pourquoi waaw te boobu yonent la yonent en même temps bu nekk buur waaw waaye mu leen di superviser ba nga xam ni amul benn jamono joo xam ni dana ni dafay noppalu te du superviser liggéey bi ñuy def waaw ba ca sance ba gis nga ca la génne àdduna yonent bi ni Alioune naw naa ko ci benn facette boobu mu ni beneen facette ba mooy Souleymane fexe woon nag ba ñi nga xam ni ñi ngi liggéey ci ay paleem ñu xam ni lañuy liggéey ca la seen sutura nekk waaw kon du ñu ko yàq ca la seen sutura nekk taalibeem ya doon liggéey ñii di nit ñi di jinne yi daf leen wutaloon salaire daf leen daan fay waaw te loolu néew na nga gis ko ci kër buur waaw yonent bi ni ñaari facette yooyu neex na ma lool mu ni parce que ña fa daan liggéey fa la ñuy ndékkee fa la ñuy añe fa la ñuy reere ku yore seen ndékki seen añ ak seen reer ñu ni ko Suleymaan mu ni kon kay moo yore seen salaire mu ni ko beneen bi mooy tëddul bàyyi leen ak liggéey ba waaye amul benn point bu bu mu ca dul superviser mu ni moo tax keroog bi max yi ñëwee ñoom ñu jaaxle fu max di jaar waaw ndax ñoom guddi ak bëccëg fu ñu toll mu ni ñu ngi ci fexe di raxas fexe di bale fexe ba benn poussière du des yàlla indi ay être yoo xam ni loolu du doonul seen problème te loolu li tax yàlla def ko mooy yàlla dafa doon wane variété yi mu bind waaw gis nga li mu bind moom yàlla diversité bi la doon wane su ko neexee mu activer xasaraat yi su ko neexee mu activer alamul malakut su ko neexee ci yooyu yëpp mu bàyyi dogalam réagir ca na mu defaloon taalibe yenent yàlla Suleymaan ba ca secret kun fa yakun ba secret kun ba dogalam moo fa réagir xamuloo looloo tax yeneent yàlla daawuda aleyhi salaam moo tax mu miin moom daawuda téeréem bi nga xam ni moom la ko yàlla joxoon waaw ci jamono waaw zabuur moom yonent yàlla Daawuda moo tax mu miin Zabuur waaw ndax yonent yi soo seetaanee seen manifestation da ngay gis ni ku ci dem xayb rekk sa yitte dootul nekkati ci téetéere bi la yàlla joxoon di ko doxantoo waaye sa yitte day nekk ci nombre de rox ya nga xam ni jot nga ko sauvé bi nga nekkee ci àdduna ku ci jàmm yàlla moom lay wàññi waaw te yonent bi loolu jàngal na ko sahaaba yi waaw yonent bi mës na ñëw wax sahaaba yi ni leen romb naa yonent yàlla Moussa ma ngay julli waaw ñu ni ko julli mu ni waaw yonent yi bu ñu génnee àdduna yi du leen tee nu continuer di jaamu yàlla waaw ndax boobu li mu leen doon jàngal dafa bëggoon sahaaba yi bañ foog ni maanaam bu ñu génnee àdduna rek euh, léegi jeex na waaw ñoom yonent yi comme julli amatul Euh, jaamu yàlla amatul yonent bi wax leen ni romb naa yeneent yàlla Moussa mi ngi julli waaw ñu ni ko lu muy julli mu ni julli ja méditation la ndax rox ya mu sauvé woon ci jamonoom ci ñoom lay médité waaw mi ngi seet ëllëg fan la leen yàlla di terale mi ngi seet ëllëg fan la leen yàlla di dajale mi ngi seet ëllëg nan la yàlla di réagir su génnee moom mu ñëw ak mbooloo waaw loolu mooy julleem loolu mooy jullee moom yonent yàlla Moussa waaw loolu forme jaamu yàlla ca barzax gënu ko rëy waaw forme jaamu yàlla bu mel noonu ca barzax gënu ko rëy waaye yonent yàlla Daawda moom muy doxantoog Zabuur waaw muy doxantoog Zabuur waaw moo tax gis nga suñu daje ba. li ma leen nettali léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bi muy wut finalité jawhar bi ma laajee yonent yàlla daawda ni ko lu tax fu mu toll di dox ak zabuur dafa ne ma finalité zabuur lay wut waaw parce que mu ni ma paragraphe bii ci passage bi lañu bind lom de la fin des temps te àdduna tukkeegul mu ni ma te àdduna tukkeegul waaw mu ni moo tax may doxantoog moom ci xay bu ku ma ko laaj ma ni la finalité bi lay wut waaw ndax li nekk ci téere bi du lépp jàll am na lu jàllagul waaw te wax na dëgg waaw te wax na dëgg pour wax la ñoom ni lu ñu yor dafa am lu tax lu ñu yor dafa am lu tax waaw Isaa ibnu Maryam it lu mel noonu moo am ci injiil keroog seen waxtaan ñoom ñaar moom yeneent yàlla daawud ak isaa ibnu maryam te isaa ibnu maryam ci injil mu présenté moom it fa nu tuddee muhammad ba tax ñu dem sànni téeréem waaw pour bañ a gis version bi nga xam ni bu ñu ko xoolee xam ni euh, muhammad seen le profet de l'islam seen lieson ñoom ñaar moom yenent yàlla daawda ak isaa ibnu mariam waaw ndax dégg nañ bi ma leen di nettali toog ba daawda mënoon na toog ak beneen prophète isaa ibnu mariam mënoon na toog ak beneen prophète lu tax ñu toog ñoom ñaar keroog di waxtaan xam nga ci liñ doon waxtaan mooy dafa am lu leen boole ñoom ñaar mooy yenent yàlla daawda aleyhi salaam zabuur bi mu yore te wax dafay wut finalité Zabour ba page ba nga xam ni ca lañu bind lom de la fin des temps feeñu nit kooku dafay dëppoog waxuma sax wàccu Isaa ibnu Maryam ci axiru zaman ni ko yonent bi prédire waaye dafay dëppoog ni Isaa ibnu Maryam daf ci am liggéey xam nga maa ngi leen di wax ni yent yàlla daaw da ma ngay wax ba naan dëkk ma nga nii waaw lu fa indi dëkk parce que dafa bokk ci mission Isa ibnu Mariam dañu ko wax ni que nitu axiru zaman boobu réew ba moo ganee àdduna booy dem xay ba di dénkaane sa yat xut bu ba nga koy dénk ci nationalité réew moomu la war a ame kooku ci liggéeyu Isa ibnu Mariam la bokk kon gis nga ñaari énergie yonent bi doxaloon fële muy énergie positive bi ak énergie négative mu indi liaison bi lu mel noonu dafa am ci diggante Zabour ak Isa ibnu Maryam waaw parce que sa Zabour noté nañ ca dëkk ba nga xam ni fa la nitu aaxiru zaman ba war a dëkk te Isa ibnu Maryam it wax nañ ko ni ko sa yat bi ngay yore xutbu moo la ko war a gardeel waaye xutbu bi la koy gardeel nationalité bi mu war a amee ca réew ma mu ganee àdduna nationalité bu mel noonu la imaam al mahdi war a ame waaw te moom nga ko war dénk waaw kon am nañu liaison ci loolu lañ doon waxtaan moo tax la fekk ñu wax ñu dem leen ca waxtaan ba daf nu concerné waxtaan ba daf nu concerné gis nga yonent yi wala axtaab yi bu ñuy def seen waxtaan ca xay ba bu la concerné dinañ la ko yëgal fa nga nekk ni demal nga fekkee ji ndax réalité baa tax réalité baa tax te ñoom dafa am lu leen yonent bi jàngaloon Muhammad Muhammad ñoom dañu jàpp ni ni ko yàlla def mu doon gën gi mbindéef yàlla bind kaat cadre bu mu bindul kenn te tey soo demee ca kuréelu yonent yi dañuy wax ni yonent bi seen nawle la waaw boo demee ci seen kuréel dañuy wax ni yonent bi seen nawle la te ñoom yonent yi kenn ku nekk xam ni moom mënul doon nawle yonent bi waaw ñu ni lu tax ñu ni parce ko fi ko borom bi binde la balaat yépp la balaat yépp di génn ci moom ñu ni ñoom yonent yi looloo tax tey ñu am prophétie muy nubuwa bu dul woon énergie positive bi kon ñoom kenn du ci am nouveau waaw kenn du ci sax nekk nag waaw te yonent bi wax na ko ana minallahi wal muminuuna min ni waaw muminuun yooyu du kaadul rek ñun ñu nu foog ni ci xeetam la ñu bokk moo tax ñu tuddee suñu bopp comme muminuun wala alxuraan tudde nu ko wala yàlla tudde nu ko même muminuun yooyu yonent yi ca la ñu bokk maanaam moom ak yàlla la mii ñëpp ak moom la ndax énergie positive bi moo tax waaw yonent yi nag du nu gëm loolu ba noppi dellu di ko jàppe nawle waaw ñoom du gëm loolu ba noppi dellu di ko jàppe nawle waaw moo tax ñoom dañu ni ñëwam ci ci ci mujj ñëwam ci mujj nekk la dernier de prophètes moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ñëwam ci mujj nga xam ni ci gannaawam yonent dootu fa am ñu ni loolu ñoom dañu jàpp ni moom mooy seen finalité ndax dañ ni moo leen uufoon kay démb kon suñu tàggawee bay demit lépp loo xam ni defoon nañ ko ci loo xam ni lu ñu war a baleyee la ki leen koy baleyeel ba rafetal ko ñu ni mënul doon ku dul Muhammad cheikh ni moom laa leen indil ci salaatul fatiha waaw il fatihi li ma uxliqa wal xaatimi li ma sabaq moom moo tijji li tëju woon waaye moom moo tëj aussi la ko jiitu woon léegi nag ñu ni ci réalité boobu moo tax ñoom bu ñu xoolee Muhammad ñu ni ñoom mënuñu ko jàppe lu dul koo xam ni yàlla moo leen ko jox ko muy seen cadeau di seen biddéew ci ci seen biir waaw xam nga looloo tax sahaaba yi mu am bés ñu am lu ñu waxtaan ak Ababacar waaw daje waxtaan ak moom ñu ni Ababacar ni ko Aïcha yaa ko yar waaw waaye daal gis nañ ñu ne eh, Sayyidatuna Aïcha bu demee ci kër yonent bi ñu ni ma nga ne euh, ma ngay kursu ma ngay daw buy dawit di rawante gis nañu keroog yonent bi di rawanteeg moom waaw ñu ni ko gis nañu itam am na ñu doon jàll gisu leen mu wax ni na ko yonent bi ti ngom mu xool leen te ñu ni ñooñu kat euh, muy wax nañ ko ti ngom marché ba la ñu jëm waaw ñu waxtaan ak Ababacar ni ko est-ce que woon woowaat sayyidatuna Aïcha nga waxtaan ak moom waaw ñu ni ndax kii muy àndal yonent yi sax defuñu ko nawle waaw yonent yi sax defuñu ko nawle ndax la mu leen rawe waaw mu ni waaye daal gis nañ ni Aïcha daal mi ngi jël temps waaw ndax mi ngi rawanteeg moom keroog ma ngi koy tingoom te xam naa dafa baax rek waaye talu ko ñu ni léegi nag comme nun mënuñu dem ci moom di ko ko wax ndax Aïcha soxnaam la léegi yow Ababacar est-ce que waroo woo Aïcha ci kër gi nga waxtaan ak pour mu bàyyi lool waaw Ababacar ni leen waaye dafa am problème bu ci ne ñu ni ko lan la mu ni parce que bi ma ko mayee boobu laa ci pare te léegi nag nan laay waxtaanee ak moom ah mu ni xanaa bu ma ko gisee rek ma laaj ko ba xam li ngeen di wax mi ngi jël temps wu yonent bi wala jëlul temps wu yonent bi waaye nag mënuma ko yedd mu ni ko ndax kilifteefam yépp ci Muhammad lay dellu waaye yàlla dogal ci xereñam laata Ababacar di gisanteeg Aïcha mu foofu njëkk gisanteeg yonent bi nuy julli ji rek nu daje julli ji mu ngi xalaat nan laa koy nettali Muhammad ba yàgg mu ne ñemewuma ko ko nettali fekk yonent bi ci hikmaam yàlla xamal na ko ko ñu julli ba noppi yonent bi woo ko bi ko yonent bi woowee yonent bi ni ko Ababakar mu ni ko waaw mu ni ko léeg-léeg del consacrer tuuti temps say soxna ni ko dëgg yaa ngi ci mission bi yaa ngi ci guddeeg bëccëg jàkk ji mais day consacrer tuuti temps ci ñoom di kaf ak ñoom di reew ak ñoom léeg sax nga daw ñu daw léeg sax boo leen mënee ti ngoom nga ti ngoom leen di waxtaan ak ñoom mu ni ko nag nga firi tuuti <laughs> Ababacar wan ko gannaaw ni ni ni dootuma ci dugg parce que lam doon bëgg laaj wax nañ ko ko su demee lu muy wax te boobu dafa giñoon ni ndigal bu ko yonent bi jox dana ko def moom mi ngi bëgg wax sa taanaa nga mu faf ko ni ko del jël tuuti temps waaw ngay waxtaan ak ñoom mu ni ko leele sax bu la neexee nga rawant bu la neexee nga tingoom leen mu xalaat ni mu xalaat ni eh, la ma doon bëgg wax dafa mel na doxe nan ma gannaaw boole ma te kenn boolewu ko yàllaa ko wax yonent bi ci xikma yàlla ko xamal yonent bi ci hikma te boobu la mu ko doon xamal daf leen bëggoon wax ni kenn ku nekk ci sa niveau na mu toll ca noonu la ñuy waxtaaneek yow waaw waaw loolu la leen yonent bëggoon jàngal yonent ya nekk ca xay bu te sa yi wax ni gis nga defuñu ko sax nawle ñu seen niveau tolloowul ak niveau sayyidatuna Aïcha waaye sayyidatuna Aïcha yi niveau du tolloog niveau ñeneen ñi nga xam ni ñu ngi interprété course ya mu doon course ak keroog bi ko yonent bi tingo mu bëgg leen ni yàlla dina dem ba ku ci nekk fa sa niveau toll mais mu bàyyi la fa sa niveau toll waaw bi Ababacar demee nag xam luñ ko waxul xam lañ ko waxul moo tax moo tax bi mu dajeeg Umar Umar ni ko nan nga mujje mu ni ko ni ma mujje de mooy di jéem a toppandoo Muhammad te xam naa ni mënuma ko toppandoo waaw mu ni ko lu tax mu ni ko ndax dafa amee Ababacar a koy wax de pour wax la ñoom ni nu jug ko yonent bi mu ni ko dafa ame patience bu ma amewul waaw lu jafe la waaw lu jafe la mooy amee dal bu nit amewul yonent bi noonu la mel maanaam lu nekk mën na xew waaye gis nga dalam ba kenn du ko ci jël waaw waaw te nee ñu boo amee patience rek mën muñ waaw nee nañu boo amee la ñoo tuddee patience nee na rek nga mën muñ waaw parce que nee nañu muñ ki ko mën. mooy koo xam ne lu nekk àttan na ko dégg waaye dara du ko ca ébranlé ndax xam na ni lépp dafa am temps waaw lu am solo la waaw lu am solo la moo tax yàlla gis nga bi mu demee bay féetale bopp mu ni inna allaha maa sabirin waaw yàlla ni boo may féetale danga may féetale ci muñkat yi waxul muñkat yi comme yi nii def euh, maanaam ni ñu koy waxee ci wolof rek mën na ko faj waaye du ko faj déedéet yàlla dafa ni moom il faut mu nekk ku patient ndax moom mooy as-sabuur waaw nee na patience am moo tax yowmal xiyaam mu mën a woo nit wax la ni defoon nga nàngam loolu nga defoon am na téeméeri at ak lu topp tey lañ lay àtte waaw kooku amul patience bi mënu ko kooku ku amul patience bi mënu ko looloo tax nag yonent bi ñu wax ko ni ko énergie négative bi mu doon dégager ci càmmooñam te mu dem ba jur ñi nga xam ni ñëpp jàpp nañ ni ñoo doon contre contrecarrer mission ñu ni ko ndax am na finalité wala ndax daan ko wutal finalité waaw yonent bi ni leen finalité énergie positive bi mu ni leen d'accord naa ci finalité jawhar bi mu ni leen d'accord naa ci waaye mu ni finalité énergie négative bi nag mu ni dama koy bàyyi ci loxo yàlla waaw xam nga lu tax mu wax ko yërmandeem moo tax waaw yërmandeem moo tax mu ni leen finalité bi nga xam ni moom la énergie négative bi di dégager mu ni dama koy bàyyi ci loxo yàlla waaw yërmandeem moo tax waaye comme bàyyi na ko ci loxo yàlla yàlla ni kon man may obligé wutal ko finalité énergie négative bi laa wax. yàlla ni man may obligé wutal ko finalité ñu koy xaar di xaar finalité bi kañ la ba xëy suba dégg yàlla wax ni bismillaahi rahmaani rahim tabat yadda abi lahabin wa mooy finalité bi ana abu lahab te ba léegi xale yeen koy jàng ba àdduna di tukki xale yi ñu ngi leen di jàngal ci daara ji tabat yadaa abi lahabin wa tab ah. mooy finalité bi képp kuy contre ci mission prophète walla mission xutbu ci foofu lañ lay dugal waaw te mooy énergie négative bi waaw gis nga moo tax soo defee taxaw seetlu ci yonent bi moom waaw da ngay gis ni li taxoon yàlla fejet ci lumière am bind ca leer ga ak ñetti composant yi benn bu ca nekk la mu waroon liggéey ci monde shahada liggéey na ko waaw énergie positive bi moo tax ba léegi jigéen mën a ëmb doom doom bi juddu ëpp ka xam nga dañ loo ëmb ëpp doole waaye nga ëmb doom doom ji juddu ëpp la leer énergie positive bi moo tax waaye ba léegi jawhar bi moo tax ñu mën donnante xilaafa ba ñoo tuddee nuuru muhammad waaw xalifa yu mag ya nga dégg yépp fa la ñu bawoo waaw xalifa yu ñu la wax yépp représenté nañu yonent bi ci xilaafa googu la ñu amee seen dona waaw te ci jawhar bi la jóge mooy xaqiqatu muhammadiyya moom lañu am sur le papier mu représenté jawharatul kamal waaw di refléter image bi waaye énergie négative bi moom la xale yi di jàng naan tabat yada abi lahabin wa tab waaw kon boo jàngatee yonent bi ak ñett ñi nga xam ne ñooy composant yi mais gisoo ci benn boo xam ni tey dafa nul gisoo ci benn boo xam ni tey dafa nul te it xam nga li yéeme ci loolu xereñu yàlla na mu mel mooy ñett yépp ñi ngi koy jëfandikoo waaw xam nga Muhammadul Busayri bi mu taggee yonent bi ba fa mabluxul ilmi fiihi annahu basharun yonent bi ni wa annahu xayru xalqillaahi kullihim mu am ca succès ba mu ca am yépp ak wér-gi-yaram dafa am mbokk mu dem ba ci moom di taalibeem ni ko tey boo ma doon euh, senteesal Muhammad mi nga doon tagg ba mu feeñu la ba wéral la nii ba jox la lam la jox euh, ban synthèse nga may defal bi mu ko waxee Muhammadul Basiir yu ni ko synthèse bi ma la mën a defal ci Muhammad mooy moom moom léppam lu baax la amul dara luy jóge ci moom loo xam ni dañ ko war a sànni mu ni ko synthèse boobu laa la mën a defal ci ba taalibe bi dégg ko comme qualité yonent bi dégg ko comme jukko yonent bi dégg ko comme melokaanu yonent bi mais ma ni boobu bu gënee xóot ba nga yëg ci xaqiiqa mais da ngay d'accord ak imaamul Busayri la mu wax ndax boo seetloo bi yàlla fejatee leeram bind ci yonent bi utiliser ñetti composants yi nga jàpp sa baaram bi ci jiitu muy énergie positif bi moo tax yonent am moo tax axtaab am moo tax ay wëliyu am kon loolu du lu ñuy sànni lu ñuy jëriñoo la soo utiliser bi nekk seen diggante muy jawhar bi moo indi xaqiqatu muhammadiya moo tax tey ñu naan xatmiya moo tax ñu naan xalifa yonent bi moo tax ñu naan xilaafa nuru muhammad léegi nag xam naa bi des ñu ni waaw kon léegi énergie négative bi ñu sànni ko ma ni déedéet énergie négative bi moo tax ngay julli jàng faatihatul kitaab taxaw ci masjidi rasul wala taxaw ci masjidil xaram ñëpp di la déglu nga pare fatihatul kitab ni tabat yadda abi lahabin wa tabb basaar ba di jeex ñu rukkoo ànd ak yow ñu sujjóot ànd ak yow est-ce que lu ni sànnikoon mu ngi ci waaw même énergie négative bi ñu ngi koy utiliser ndax bu dee finalité bi mooy tabat yadda abi lahabin am nga droit tëri ko ci julli am nga droit tëri ko yaa ngi jiite ay imaam soo paree nga rukkoo ñu rukkoo nga sujjóot ñu sujjóot seetal boobu nga ne kon boo dajalee cadre Muhammad yi dangay gis ni ñetti composant yi li Muhammadul Busayri waxoon taalibeem boobu moo fa feeñaat waaw mooy la mu waxoon ni dafa yëg ni ci biir loolu amul ndeke luñ ci sànni waaw ñu ni ko lu tax mu ni parce que lenn lu ci nekk njëriñ moo ci ne waaw gis nga moo tax baat bi ko yàlla wax te ñépp miin ko waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaw gis nga miineel boobu ñu miin baat bi ñu bare sens bi daf leen raw waaw parce que xam nga lu tax ñu miin baat bi ba noppi sens bi raw leen mooy dangay gis ni ñépp dañuy dellusi ci benn hikma hikma bi mooy wax ni yàlla nee na euh, yónniwul yonent bi lu dul pour mu doon yërmande ci xeet ñu ni kon ëllëg euh, kenn ku nekk kenn ku nekk ñu ni mën na la ram waaw maanaam ñu jël li ñuy jëriñoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp basé ko ci xaar rekk mu ràmmuñu waaw te xamuñu ni su fekkente ni dégg nga dëgg-dëgg aaya bi mën nga fexe yow ràmm sa jëmm ci yonent bi waaw ràmm sa jëmm ci yonent bi te mooy tawasul waaw tawasul bi ordre divin la waaw parce que boo demee ci cadre bi nga xam ni dañoo minimiser wàllu soufisme da ngay dégg ñoom ci seen côté ñu ignorer tawasul waaye xamuñu tawasul bi génnul yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndax yonent bi bu dee lumière lan lay doye lumière bu dee lumiere yi ci moom la bawoo lan lay soxloo nu dolli ko lumière kon julli bi ñuy julli ci moom loolu mooy tawasul ba parce que réalité am ci côté lumière mooy jóge ci xaqiqam di ñëw di arroser sunu rox waaw te kooku fa la tawasul yam moo tax ñu ni baatu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mais jëriñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais weesuwul weesuwul nga julli ci moom lumière bi jóge ci moom ñëw ci yow léegi nag ordre boobu yàlla jox ñu mais ordre bi mooy mooy représenter tawasul bi waaw gis nga cadre boobu lu jar a bàyyi xel la waaw ndax dafa am ñaar yu am côté nuuraani yu te yonent bi présider lépp loo xam ni daf cay génn côté zulmaani yu te Iblis présider lépp loo xam ne daf cay génn waaw léegi ñu ni kon sunu dellusee ci yonent bi dañuy gis ni dundam ak après dundam yépp guerre la mook Iblis waaw ci dundam ñu ni guerre bi mook Iblis ñëpp comprendre nañu ko li ñu bari comprendrewul mooy après dundam. lan mooy guerre bi mook iblis ñu ni njabootam gim fi bàyyi te yéene leen aljana moo tax nu tuddee ko guerre xam nga xàmme lu am solo la gis nga yàlla dafa dogal en 2008 mu am benn homme bu siiw au Sénégal il est respecté au Sénégal mu sama benn njaboot bu ñuy wax Ibnu Diouf mu wax ma ni homme politique boobu nee na bu sañoon daal nga dimbali ko resevoir ko en 2008 ma ni ko man de xam nga ni resevoir euh, ñooñu ma ni ko du sama priorité waaye ibnu ni ma xool ma ci rek ndax sama kóllëre la ma ne ko kon baax na mu ni ma léegi nu nii def ma ni ko na bàyyi ba mercredi soir bu ma julleegee ba noppi mu fekk ma seen kër gannaaw raay kër ñoom soxna xadiloo mu téléphoné ko ko wax ko ko moom homme politique mu ni baax na danaa fexe ñëw ibnu ni ko maa insisté pour mu recevoir la de parce que xam naa ni moom bu la audience bi rawee tey moom gëmatuma sax ni dana la accorder audience ndax jamono yi nee na dafay wéer di tàllul dara ba maa ngi ci sama wéer du man en 2008 bi ñu jullee gee ba noppi ñu toog yàggul tuuti garde corps am ñëw fëgg bi mu fëggee ñu ni ko bismillah mu dugg si daldi ni diw moo agsi te man kese la àndal ndax nee na euh, visite bi bëggul woon mu nekk visite officielle ñëpp di ko yëg euh, léegi nag mu doon xool ndax mën na ñëw walla ñu ne anamu mu ni mi ngi ci oto bi ñu ni ko waa wax ko mën na ñëw bi mu ñëwee ma entré ko ci néeg bi ibnu daldi jóg génn ni kon ma bàyyi leen ngeen waxtaan bi mu dugg see toog mu ni ma dama am benn góor saalum mu ni ma góor gu bari xam-xam sama carrière politique def na ci lu nekk mu ni góor gi dafa ma wax ci fan yi loo xam ni bokk na ci li ma gëstuloo ma ni ko lan la mu ni ma góor gi dafa ni ma moom daal euh, ci mujj dundam la nekk kon du ma ma du du mën a continuer di ma accompagner léegi nag ma ni ko waaw yow kon man léegi nu may def parce que man yow rek laa xam post yi ma am yépp ci administration bi yow yaa tax nee na mu ni ma demal ndar di nga fa gis benn xale mi ngi war a toll ci vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom fexeel gis ko waaw soo ko gisee nga wax ko mu ñaanal la accompagner la waaw nee na ma ni ko demal ndar rek euh, seeti benn xale bu am vingt cinq gis ko euh, mu ñaanal la accompagner la ak ndar nu mu yaatu nee na ca la tàppe benn numéro téléphone jox ko ni ko dangay woo kii soo ko way dana am comme la woon léegi nag numéro boobu moo woo ibnu wax ko ko waaw ni nga xam naa ni sa waa ji lay wax waaw mu ni nag loolu moo ma indi woon maa ngi toog di ko déglu rek mu ni léegi nag ma bëggoon euh, xam ñaata laa lay fay waaw ma ni ko man ñaan du sama liggéey mu ne ko man ñaan du sama liggéey ku muy liggéeyam la ñuy fay mu ne ah, dama xam ni kat boo ñëwee ci kilifa lool nga koy wax ndax demandé naa renseignement it balaa muy ñëw góor gi woo woo woo nañu ko laaj nañu ko mu ni kooku la te itam wax wax nañ ni 1983 nga judd kon nii yaa ngi ci 25 ans kon yow la waaw ni ma léegi nag ma bëggoon euh, ñu xool daal kon comme ñaan du sa liggéey léegi nan lay def. ma ni ko nan ngay def mu ni ma waaw ma ni ko soo delloo sa bureau ca Dakar mu ni ma waaw ma ni ko am na quatorze bougies sondeel yooyu taal di fay làmp courant ba soo demee fayal sondeel ya te nga taal làmp courant ba toog na trente secondes waxu maa ngi liir boobu problème am ni mooy renseignement yooyu kan moom a ko war a jox waaw toog 30 secondes yàggul mu ni ma euh, sakkanal courant rek laa ci jublu ma ni ko comme da nga ci jublu sakkanal courant soo demee fayal 14 bougies dégg nga taal lampe ba nga xam ni moom moo war a leeral bureau ba mais pas sondeel mu ni ma léegi ni ñuy def ma ni ko waaw mu ni ma mooy damay dem après une semaine euh, ma ñëwaat fi waaw ma ñëwaat fi nu gisee ma ni ko waaw laajuma la dara benn condition la soo ko fayee rek mën nga dellusi waaw waaw keroog ba muy génn maa ngi gis te il est très respecté au Sénégal mais mu ngi mi ngi tremblé. mu génn yàggul ibnu dugg si wax wax ni ma nee na semaine bii day ñëw ma ni ko du ñëw mu ni ma lu tax ma ni ko parce que sondeel yooyu du ko fay mukk waaw mu ni ma lu tax du ko fay ma ni ko loos bi mu bokk ñoo ko ko sant bis bu ko fayee pare na ni ko loos bi mu bokk ko ko sant bis bu ko fayee pare du ko fay mukk waaw waaye keroog lañ ko gëj a dégg fayu ko seetal loolu léeg-léeg nu imposer la yoo xam ne doo xam lan la te il est très respecté waaw mais noo ko sant loolu ni ko naka def ci bureau waaw te dafa tiit ba ni ma man damay sakkanal courant rek ma ni kaa da ngay sakkanal courant mu ni waaw ma ni waaw boo demee nga fay ko nga taal lampe bi ba pare seetal ma euh, yu mel noonu waaw ibnu ni ma nee na semaine bi dana ñëw ma ne ko du ñëw mu ni ma lu tax ma ni ko bis bu ko fayee am ak problème loose bi ko sant mu tàllal leen yooyu ci bureau waaw amul droit ma ni ko tàll lampe courant ci bureau buy liggéey sondeel lañ ko tàlloo te 14 lañ ko tàlloo waaw te boobu man la bëggoon ma accompagner ko waaw ma jox ko sama condition te góor googu waxoon na ko pour man ma accompagner ko waaw waaye keroog lañ ko gëj dégg ba ba muy disparaître ci seen politique. pour wax la ni gis nga réew mi ku ci deful attention di kilifa dinga dugg ci lu nekk waaw waaw di dugg ci loo xamul waaw dugg ci loo parce que yu mel noonu duñ duñ la ko wax mukk waaw mel noonu ñoom duñ la ko wax mukk waaw te loolu dafay dellu dafay dellu seen cadre boobu ñoom ci cadre zulmaani yi waaw te cadre zulmaani ak cadre nuraani mais mënuñu cohabiter waaw waaw yonent bi moo ko njëkk rejeté moo njëkk ni zulmaani yu ak nuuraani yu mënuñu cohabiter moom kay nee na nuuraani yu dafay effacer zulmaani yu ba mu jeex tàkk mu installé wu waaw mu ni walla au contraire kay ngay seetaan zulmaani yu ba mu effacer sa nuuraani yu moom mu installé waaye nee na cohabitation ñoom ñaar neen mënul nekk waaw mu ni cohabitation ñoom ñaar mu ni mënul nekk te gis nga ci réalité bi mu ko delloo moom yonent bi mooy dafa xam ni xaqiqatu muhammadiya synthèse am dëgg-dëgg bu ñuy tànn ca xadaratul ilaahiya kuñ koy jox xaw subi lañuy ñuy tànn waaw te xut bu baa nga fa de waaw mafatihul kunus baa nga fa labdaal baa nga fa mais synthèse am dëgg-dëgg xawsu la ñu koy jox xam nga lu tax parce que xawsu mooy seul bu ñu may seul bu ñu may bu génnee àdduna secret ba ñu ko joxoon ba tax mu nekk xawsu mu dem barzaq présenté ko ay soppe xawsu lañ ko may moo tax ñu ni synthèse u xaqiqatu muhammadiya bu ñu koy tànn ca xadaratul ilaahi ñu ni moom lañ koy jox ndax xawsu mooy sël bu ñu may mu génn àdduna balaa nu koy teral wala dara ca barzak mu seet ay soppeem dajale leen présenté leen secret ba ko def xawsu waaw ba du génn saaru alxuraan wala verset coranique waaw soit secret bi di dellu ci suuraat boo xam ni dafa nekk dans le Coran sacré wala mu nekk verset boo xam ni verset bu nekk dans le Coran sacré la waaw ca la ñu namee xaws waaw te léegi pour loolu mu wax ko ay soppeem sa barza dañ koy wax mu tafsiral leen ko waaw mu firil leen ko moom bu ñëwee daf leen koy firil donte ñoom xam nañu loolu la muy tekki waaw tey bu dee xawsu bi sekkereem sooratul fatxi la bu génnee àdduna bu demee ca barzax dajale soppeem ya sóoratul fatxi lay firi bu dee sekkareem sóoratu yaasin la su génnee àdduna dem ca barzak bu agsee sóoratu yaasin lay firi waaw bu dee sóoratu charxi bu agsee sóoratu charxi lay firi waaw kon da gis ni xawsu loolu lañ ko sant mooy présente sekkareem ca barzak moom rek ngay gis muy waliyu boo xam ne day dem ba barzax di fa firi saaru alxuraan ay soppeem di déglu waaw xam nga ñu bare dañuy defe ni maanaam sawarteem la mais du sawarteem lu ko war la waaw lu ko war la jour bu ñu ne génn na àdduna jour bu ñu ne génn na àdduna moom xaw xawsu duñ ko may vingt quatre heures duñ ko may vingt quatre heures te demul barzax dajale ay soppeem présenté leen secret su boobaa ñoom ñu déglu ko mu jël alxuraan bu dee aaya la bu ko defoon xawsu mu firi aaya ba bu dee saaru alxuraan la mu firi saar ba su ko defee ñoom ñu dégg ko ñoom ñu apprécier waaw su ko defee ñoom ñu dégg ko ñoom ñu apprécier waaw mais loolu dañ ko koy imposer waaw dafa nekk lu crucial ci avenir am ëllëg ca barza lu crucial la ci parce que dafa nekk loo xam ni jour bi mu génnee àdduna moom xawsu bi xadaratul ilaahi waratuñu amaat assemblée te assemblée bi ñu am semaine bu nekk jeudi waruñu ko am te ci assemblée boobu rendre ruñ leen compte ni xawsu bi kat ndekete nangam mooy sekkareem ndax firi na ko waaw waaye xam nga lu lay jaaxal ci biir euh, organisation boobu. mooy gis nga buy dund buy dund moom xawsu bi du wax kenn secret bopp waaw gis nga xawsu buy dund du la ni sóoratu yaasin mooy sama secret du la ni sóoratul fatxi mooy sama secret du la ni sóoratul ixlaas mooy sama secret parce que bis bu mu ko bu mu ko waxee nit mu dégg ko fii bis boobu la sanction bi di daal looloo tax nag ñu may ko ni ko soo génnee àdduna nag léegi présenté ko waaw kon moom secret daf koy protéger ba ba muy génn àdduna bu génnee àdduna nag mu présenté ko waaw bu demee sax dajale ay soppeem mu ngi mel ni koo xam ni koo xam ni yàlla dafa dogaloon mu am ñu ko namm euh, ña ko mu gis ko rek mu indil leen cadeau bi nga xam ni mooy charité bi mu leen indaaleel noonu lay def moo tax ku ci génn àdduna ci ñoom xawsu yi soo demee léegi ca bàmmeelam fekk ko muy présenté secret waaw nga mën a retourner nag ni moom ndeke lii moo ko defoon xawsu waaw parce que gis nga barzak léeg-léeg nga dégg kuy laaj ci wàllu contestation boo demee ci religion révélée yëpp léeg-léeg di nga fa fekk nit koo xam ni léeg-léeg loolu lay wax mooy lu tax ki génn àdduna dellu siwul lu tax bi diw deewee dellu siwul au moins ñu xam ni euh, nangam ak nangam am na mais ñu mu ñu bëgg rek basé wu ci téere waaw ñu bëgg basé wu ci téere alors que yàlla munoon na bàyyi kenn mu dellu si wala ñaar sax ñu ñëw nettali après demaat ma ni dañu xamul yàlla Euh, fonctionnement waaw yàlla dafa am lu muy fonctionner waaw gis nga yàlla bari na looy calculer yow moom borom bi calculer wu ko waaw parce que moom du natt borom bi du natt ni kii ci nii lay gëme wala kii ci nii lay wedde xam nga moom buy natt ci li muy natt mooy ci coobareem moom waaw moom buy natt day natt ci coobareem te nee na li gën a yéeme mooy coobareem mu wax ni lu ko ca neex lu ko ca neex rek wala mu soob ko ca dafa naan nekkal mu nekk muy kun fa yakun léegi yow su fekkee da nga utiliser sa intelligence en tant que mbindeef nga ni borom bi su defoon nangam <laughs> am na xeet yu ko waxoon am na xeet yu waxoon ni euh, borom bi lu tax muy yabal nit pourtant bu yabaloon malaayika euh, malaayika bi euh, jóge asamaan wàcc mën na am ñu gëm waaye bu yebalee nit ni ñun borom bi delloo leen ci Muhammad ni leen nit ni yéen mooy seen avantage nit ni yéen mooy seen avantage boobu la wax ni la laxad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun aleykum bil muminina raufun rahim waaw mu ni ki jóge ci yéen bokk ci yéen mais mooy seen avantage parce que moo mën a miin seen culture moo mën a miin seen civilisation waaw moo mën a miin seen culture moo mën a miin seen civilisation kon kooku moo leen mën a comprendre ci seen diggante ak seen borom ni ngeen di jëfandikoo ak moom moo tax mu ni kon suñu yabal nañu yabal kooku ñu ni waaw bu ñu xoolee kooku nag euh, la muy waxte xamuñu ko mu ni xul innama anna basharun mislukum waaw yuha ilayya annama ilahukumu ilahun wahid nee na réyalité bi yëpp mais c'est un être humain comme vous ngeen di sol muy sol ngeen di euh, dox muy dox ngeen di wax muy wax mais nag dafa am particularité particularité bi mooy dañu def ci moom la ñu tuddee la si mu ami nubuwa te yéen amul leen nubu waaw xam nga moo tax bi yonent bi demandé benn jour le pourquoi le pourquoi nit mën a bokk ci euh, njabootam mën ko wax loo xam ni loolu day am te warul xam loolu kooku fan la ko war a dégg yàlla ni ko nubuwa ci yow la yam waaye wax yu ba léegi dama koy continuer ah. parce que wëli yu mursal yi seen bopp mais wax yu lañuy ñuy demee ah. te wax yu il faut ñu lay wax looloo tax ñi nga xam ni dañuy créer pour contester religion islamique wax ni lu tax bi diw demee barzak euh, dellu siwul barzak du fu ñuy dem di dellu si barzak du fu ñuy dem ñu ni génn na àdduna suul nañ ko après ñu ni dellu si na gis nga euh, cadre boobu du cadre bu ñuy attee ca barza moo tax ñiy wax wàllu réincarnation yëpp ni religion islamique daf ko rejeté ñoom da fekk xamuñu cadre bi ñuy waxee cadre bi du cadre néew bi génn àdduna ñu ni néew bi dellu si na kooku ci biir espace intermédiaire yi la kooku jotewul dara ak espace intermédiaire ba ñoo tuddee barza waaw gis nga barza projection limitée la projection limitée maanaam xam nga ni ñu la ko mën a misaalee scientifiquement mooy gis nga sunu monde bii di monde shahada dafa mel ni dafa am benn éclair bu muy dégager barzak am éclair bu muy dégager léegi nun sunu monde bi éclair bi muy dégager muy monde shahada bi dafay mel ni benn fil boo xam ni. fil bi dafa am fa mu jëm fa mu jëm mooy fil bi dañu dem ba lié ko ba lie ko ak monde ba ñoo tuddee barzak lan moo ko lié du ay fil mais ay tunnel moo ko lié moo tax bu néew bi génnee àdduna gis nga rooxam ci tunnel yooyu lay jaar waaw tunnel yi nga xam ne ñoo lié monde shahada ak barzak bu jaaree ci tunnel bi traversé bi su jeexee fa muy génne foofu la ñoo tuddee barzak mais barzak moom éclair bi muy dégager éclair boobu jëluñu ko lié ko ak monde shahada à part tunnel yi amul beneen euh, liaison diggante barzak ak monde shahada parce que éclair bi dañ ko def su forme de grille grille bi mooy moo tudd barrière ba moo tax boo doxee loo ñëw ñëw dangay ngay tax da ngay gis barrière bi barrière bi téye la nga taxaw te barrière bi waxuma téye nit waaye rox la gën a mën a téye kon du barrière yi nga xam ni euh, maanaam nit mën na ci jaaral lu ko neex waaw moo tax nitu yàlla yi ñoom bu ñu entrer en contact wala ñuy def gi guidée ca barza mais ñoom ñu di utiliser tunnel yi waaw parce que boo utiliser tunnel yi mi ngi mel ni nit ku génn àdduna ñoom li ñuy def mooy dañuy utiliser lumière bi monde shahada di dégager comme éclair ñu ñëw ba ci barrière bi ñu taxaw ñu jàkkaarloog monde barzak waaw ñu jàkkaarloog monde barzak waaw waaw su boobaa ci seen liaison mystique bi ñu am muy seen pouvoir ki ñu contacter suñu waxeek moom daf leen di dégg. moom aussi bu waxee ñoom dañ koy dégg te li gën a doy ci côté boobu mooy xam nga dañuy wax ni ki génn àdduna nekk barzak ñu ni benn langue rek lay dégg muy arab ñu ni langue boobu rek lay wax waaye li ñu fàtte ci biir paramètre boobu mooy ki ngay waxal arab mooy ki génn àdduna ni yow nekk barzak ni yow mais wali buy entrer en contact ak yow mu nekk ci monde shahada langue bu mu utiliser su ko waxee malaayika yi déggloo la langue boobu dama la bëgg wax ni tey boo demoon ca néew bi yow déggoo lu dul anglais nga taxaw ci armeel yi yàlla may la pouvoir mystique nga mën a entrer en contact ak moom boo làkkee anglais ñu dégguloo ko anglais buy wax ak yow ci anglais lay wax ak yow bu dee français de même bu dee wolof de bu dee espagnol de même mais ki nga xam ni du dégg lu dul arab pour wax ak moom mooy ki génn àdduna ni moom nekk ak moom ca barsax paramètre boobu la ñu fàtte paramètre boobu la ñu fàtte gis nga moo tax ñoom ci seen gëstu ndimbalal yàlla ñoom dañuy gëstu ndimbalal yàlla dañ koy wër waaw fu ñu toll ñu ngi wër ndimbalal yàlla gis nga seen gëstu ndimbalal yàlla mooy kenn ku nekk ci ñoom ña fa nekk ñaanam bi gën a rëy ci li muy ñaan mooy yàlla boole kaak nitam bu baax nit ki ñëw seetsi ko mooy lañoo tuddee ziyaara te mu mën wax ak moom su ko waxee mu dégg ko waaw xam nga moo tax mag ñi bu ñu daan jóg ñu daan bare lu ñuy tànn benn jour wax ni ñu ngi dem euh, ziyaare ji armeel ya waaw parce que dañu yëg ni ña fa ne dafa am ci ñoom ñoo xam ni dañoo soxla ku leen ñëw seet si boo mënee wax ak ñoom nag moo leen gën soo mënul wax ak ñoom it nga ñaanal leen te gis nga yit lu baax rek moo am solo rawatina boo nekkee ci àdduna boo nekkee ci àdduna ci li nga war a góor góor lu dëkk mooy fexe ba sa digganteeg yàlla rafet fexe ba sa digganteeg yàlla rafet lu am solo waaw xam nga man yàlla dafa dogal période bi ñuy faral di tudd baaba kër Sèye dama ko daan dégg rek mais période bi muy am ba assassinat bi di am en 1993 boobu pratiquement xale bu tuuti la pour mën di intervenir ak di laaj ci li xew ci wàllu politique waaw parce que nit boo amee fukki at foog naa dinga am yeneen yitte yu dul dem di demander le pourquoi waaw mais mësuma xam ni. ni nu koy tuddee moom ci wàllu politik mbaaxam moo ko ëpp waaw ni nu koy tuddee ci wàllu politik mbaaxam moo ko ëpp waaw gis nga maître kër Seye dama ko gis mu sol benn demi saison boo xam ne ni demi saison bi rafete ëpp na kanam gi di melax nu tegal ko benn fauteuil bu rafet mu toog ci ni kanam gi di éclairé ma ne ko euh, lii lumière salaatul fatiha waaw moo leeral sa kanam nii waaw mu nangu ko waaye ma ni ko nag li ëpp solo ma ni ko mooy lii occasion en or la te ma nga bari sàq de ma ni ko nan la mbir mi demee ndax ñii neeñu ñii neeñu ñii neeñu mu détaillel ma ko point par point point par point détaillel ma ko point par point keroog ba ñuy tàggoo dama yëngal sama bopp dama ni gis nga moo tax nit ñi il faut ñu def très attention bare na looy fokki rumeur fekk demewul noonu point par point te boobu dama tegle dama tegle ay at fu ne ma laajte ko fa waaw fu ñu ko denc léeg-léeg ñu ni ma fii léeg-léeg ñu ni ma fa yàlla dogal benn bis ma dem ceem rek ni fu ñu ko denc ka kay garde ni ma ma nga ne leen wan ma sax ca gannaaw ni ma bàmmee lu am ma dans soo ko nekk ca gannaaw ma ni occasion en la waaw waaye pour wax la ni gis nga dossier yooyu tudd top secret mais ñu bari fii ñu ngi dox mais xamuñu sax li xew moo tax li ma gis muy réalité mooy am na yoo xam ni maandu ci faratu piir la waaw am na yoo xam ni bañ ci accuser nit sax lu am solo la waaw mu ni mën nii la demee nii la demee nii la demee lépp la ma wax waaw waaye ni nag regretté wu ko ma ni ko lu tax mu ni xoolu fi ma ni ku toog ci canapé sol demi saison bu rafet. sa jë leer nañ yaa ngi aljana ban problème nga amati amoo benn problème amoo benn problème te keroog dama ko def exprès wax naa ko mbokk yi ba ma xëyee dama photo euh, xabru bi nii euh, daal di koy def statut bind ci la ma ca bind waaw ñu bari laaj ma lu tax nga photo ko nii ma ni comme xam nañ ma bu ñu gisee ma foto ko dinañ xam ni léegi kon xam naa li xew. ma yem foofu waaw waaw ah dama ni comme xam nañ ma xam nga xam nga ni El Cheikh moom dem ci néew yi wax ak ñoom ñu wax ko li xew jaaxalu ko léegi bu fotoo bàmmeel kon waxtaan na ak borom bàmmeel kon xam na li xew jeex na ah. te loolu mooy li am solo te loolu mooy li am solo mooy gis nga nit ñi il faut nuy def très attention ah. parce que bare na loo xam ni danga koy dégg di ci wax di wax ba dugal sa bopp fekk. rumeur la rek waaw waaw moo tax il faut faire très attention yonent bi sax boo seetloo même ci làmmiñu jullit li tax mu waxoon lii sensu làmmiñ bi dëgg-dëgg mooy mu fexe ba di ci wax lu ko wóor mais xam na lu tax mu wax parce que am na ñoo xam ne tey utiliser nañu ay làmmiñ détruire nañu ay famille ñii détruire nañu ay euh, nit ñu honnête ñii détruire nañu ku ne te fekk dëgg-dëgg même la vraie histoire duñ ko xam waaye gis nga la mu wax rek am solo mu ni ki nekk aljana kay euh, sol demi saison toog ci canapé nii ban problème la amati amul benn problème waaw parce que martyr la waaw martyr la te martyr bi bi bi bi ëppati yiw sax mooy martyr boo xam ni sax man naa ci sa liggéey ca lañ la assassiné waaw waaw kooku yaa ëppati yiw yonent bi moo ko jàngal ñoom Ababacar yonent bi moo wax ñoom Ababacar ni leen ki nekk ci chantier te di jullit buy liggéey ba bâtiment ba daanu ci kaw mën nañ ko jàppee shuhada ñu ni ko foofu la yam mu ni ki nekk ci ndox wala muy liggéey ci ndox mu ni ba lab ca ndox ma te di jullit shuhada la mu ni kiy liggéey ci loo xam ni dafa jege safara mu cay liggéey ba loolu lakk ko muy deew mu ni mën nañ ko jàppee shuhada te shuhada yi seen teraanga ëllëg mooy ñoom bu ñu demee bay taxaw yowmal xiyaam bay taxaw yowmal xiyaam yàlla day yabal ay malaayika yuy ñëw dalal seen xel ba noppi waaw yàlla day yabal malaayika yuy ñëw dalal seen xel ba noppi wax leen kat fii ngeen di taxaw na leen leer ni du ngeen fi jële dara lu dul ngëneel waaw ci bis boo xam ni kenn ku nekk yaa ngi jaaxle waaw bés bu nekk yaa ngi jaaxle kañ la yowmal xiyaam kañ lay génn àdduna su ma demee la may fekki ñoom ñu ni même su fekkente ni génn nañu àdduna par surprise ndax nit li ci bari li muy liggéey ñu ni looloo ko mu looloo ko mujj rey surprise lay doon ci moom ndax ki xam ni tey bu demee ca chantier ba chantier ba batiment bi daanu ci kaw xam nga ni du xëy waaw moo tax ñu ni nag ñoom ëllëg yàlla dina leen booleek ay malaika yoo xam ni dañuy ñëw dalal seen xel ba noppi malaayika yoo xam ni dañuy ñëw dalal seen xel wax leen yéen kat fi ngeen di taxaw yiw rek ngeen fay jële waaw yonent bi ni ay shuhadaa lañu waaw mais nee na waxul waxul moom yonent bi mu ni képp koo xam ni rek da nga génn àdduna ci façon boobu shuhadaa nga ni ko ñenn ñi di wax dafa ni su la fekkee nga nekk jullit waaw loolu mooy précision de taille bi mu ni su la fekkee nga nekk jullit waaw loolu mooy précision de taille bi. te pour xam loolu li mu jàngale woon moom yonent bi ci digganteem ak Alioune tënk na façon njàngale boobu waaw jàngal na ko Alioune wax na ko Alioune Alioune di ko dégg te boobu Alioune mi ngi dund Alioune mi ngi ànd ak xelam waaw yonent bi ni ko yow Alioune martyr ngay doon mu ni ko martir ngay doon waaw te yonent bi ni ko xam nga lu ci grave Alioune ni ko déedéet mu ni ko mooy ki nga xam ni moom moo lay dóor jaasi bi ba sa bakkan jaare ci dafay revendiquer ni sama xeet la bokk waaw te boobu Alioune mi ngi dund yonent bi wax ko ko xam nga foofu la foofu la foofu la euh, wax ju wax ju wax ju wax joo xam ni wax ju ñu war a dégg la fa la mën a yam nga toog ak yonent bi mu leer ni lum la wax nam la wax noonu lay deme noonu lay amee yonent bi di waxtaan ak moom Alioune a ngi toog waaw jékki saa yonent bi ne Alioune xam nga kan moo gën a texee di ci xeetu samut Alioune ni ko déedéet. yonent bi ni ko mooy ba ñu indee gëléem nga yonent yàlla saalix ba mu indee gëléem ga ka jamoon gëléem nga waaw mu ni ko ka jamoon gëléem ga mu ni ko moo gën a texee di ci xeetu samut waaw ko nag xam nga ki gën a texee di sama xeet alli ni ko sa xeet mu ni waaw mu ni ko mooy ki lay dóor jaasi Aliou ni ko lu tax yonent bi ni ko parce que sama xeet la bokk lay mbubboo waaw moo tax keroog bi nu ko dóoree jaasi moom Aliou <laughs> bettu ko woon waaw donte par surprise la mais bi mu xamee kan la bettu ko woon waaw te fekk na boobu dara ñoru leen lu dul tas islaam waaw fekk ñu mësul tàggalikoo nekk benn ànd ak yonent bi ci mission nga xëy rek naan kii kii naan kële waaw ku ko moytuwul rekk indil sa boppu problème waaw waaw lu jar moytu la waaw lu jar moytu la boobu ñoom ñu ñëw ñu ni ñii ñooy partisan Ousmane ñu ni ñun ñooy partisan Aliou waaw ñu fas yéenee def guerre boo xam ni kenn du perte ci guerre bi ku dul islaam dem assasine ji Ousmane ñëwati assasine Alioune waaw te boobu lu nekk jéem nañ ko pour jaxase pour jaxase sax kër yonent bi waaw te ba léegi jóguñu ci waaw ba léegi jóguñu ci ndax ba léegi mooy conflit bi dox ci diggante ñi naan man chiite laaj moo tax lii laay wax duma wax lële ñi naan man chiite la waaw moo tax booy apaiser rek nga apaiser moo ciy tane waaw dafa am benn chiite bu fi mës a ñëw fii ci man xaw na fi sax yàgg waaw jël fi wérd ñuy waxtaan mu wax ma benn baat ma ni ko baat bu nekk dégg naa ko waaye bii moom maa ngi koy soog a dégg waaw ndax dañu toog di waxtaan mu ni ma. man nangul naa léegi Ababakar nangul naa léegi Umar nangul naa léegi Ousmane ndax yow yaa tax mu ni ma yow yaa tax ma nangul léegi Ababakar nangul Umar nangul Ousmane waaw ma ni ko man di dégg naa ba tàyyi ku fi ñëw ni ma nangul naa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ndax yow waaye mësuma dégg ku ni ma nangul naa Ababacar ak Umar ak Ousmane ndax yow ma ne ko loolu yaa ma ko njëkk wax waaw mu nekk dëgg ci moom mu jël wérde waaw di wér di wérdam ku am pas-pas la waaw dafay jox ko daaw demi lu bare waaw dem ba ni même sunu imam ba ñu fa jiite ca jàkk ji mu ni dafa ragal ndax pression bee metti foofu mais naa ko fi indi waaw mu ni ma dafa ragal nag ndax pression bay nekk foofu bi gaa ñi di wax di wax lu muy ragal lu muy ragal ndax gaa ñi demoon nañu ba ñu ni dañu koy defal sax interview waa Medina Cheikh TV mu leen bàyyi leen ma bind rek waaw ñu ne ragal ragal ma ni ko ñooñu du ñu ñi nga xam ni dañuy critiquer ñooñu bu ñu xamee ni génn nga ca àttan nañu jël sa bakkan ma ni ko ndax ci guerre la ñu nekk de waaw ma ni ko ci guerre bu metti la ñu nekk boo demee siri boo demee Iran boo demee Irak boo demee Najaf boo demee Karbala ma ni ko bastion yépp loolu nga fekk. siid yi jóg nañu daal nañ ci sinit yi sinit yi jóg nañu dal nañ ci siid waaw te ma ni que bu ñu revendiquer ni ñëw bokk benn religion doo comprendre xeex boobu la pourquoi mu ni moo tax bëgg naa fi indi imam bi moo may moo may jàngal sax mu ni waaye pression bee tax mu xaw ragal xool na video yi xool na lépp bëgg na ñëw waaye daal neen def ndànk-ndànk rek waaw waaw te ko am pas-pas la nag daal da xam na ko waaw pour wax la ni gis nga si enseignement dëgg nit dana ci gindeekoo waaw gis nga ci enseignement dëgg nit dana ci gindee ko waaw te li am solo mais loolu la ma wax ni ma li ma dégg yépp mais maa ngi ko déggee ci les enseignements max di te ñun sunu gëstu yépp lool la te ñun xàmme nañu xam-xam te ñun dofuñu aussi waaw mu ni ñun xàmme nañu xam-xam ñun dofuñu ñun xàmme nañu leer ñun xam nañu yan xam-xam moo concerné l'homme de la fin des temps ak yan xam-xam ñoo ko concerné wu waaw bu doon livre ngay wax doo ma gis fi waaw mu ni may lu tax ma jóge guyaan ba fii xam naa la pourquoi waaw ni ma nag comme nag doyloo naa la ah loo waxati lool la nee nga yonent bi la nee naa yonent bi nee nga Ababacar la nee naa Ababacar la nee nga Umar la nee naa Umar la nee nga Ousmane la nee naa Ousmane la nee nga Alioune la nee naa Alioune la ma ni ko waaw kay yamale leen ñoom ñëpp nag. waaw ma ni ko ñoom ñëpp muy xulafaawul arba xalifa yonent bi lañ waaw bu leen kenn diviser ma ni ko ndax ñoom amuñu benn division ci seen biir waaw su ko defee ma ni ko ay idéologie rek ñoo leen di ñiy jëm fii ñiy jëm fële waaw mu ni ma bis ni ki tey nangul naa leen waaw pour wax la ni gis nga enseignement bu otantik loolu la yonent bi doon wax sayyidatuna Aïcha ni ko li ma la jàngal yépp mu ni ko bu jamono neex walla sama gannaaw ba nga changé ci dara waaw mu ni benn bu ca nekk na ko indi na nga xam ni euh, noonu laa la ko waxe waaw Aysa laaj ko ni ko lu tax mu ni ko alxuraan mu ni ko ci man la wàcc mu ni ko waaye amul benn baat ci alxuraan bu ma changé walla benn baat boo xam ni ni mu wàccee ci man dama ko jël indee ko neneen waaw moo tax bi ñu ñëwee ci sayyidatuna Aysa euh, ni ko yonent bi moom li mu la wax yëpp lan mooy jukkoom mu ni leen alxuraan mooy jukkoom mu ni leen alxuraan mooy jukkoom parce que base yi mu wax yépp mu ni baas yi ci alxuraan la ko teg waaw tegu ko ci leneen mu ni base yépp ci alxuraan la ko teg tegu ko ci leneen waaw defee ñoom ñu dégg ko waaw ñoom ñu dégg ko bi ñu ko déggee nag ñu xam ni kon ndekete sayyidatuna Aïcha baat yi mu jàllale waat yépp ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko ko wax amul dara moom it lu mu ci changé waaw te yonent bi kat gis nga kerseem moo tax de waaw xam nga xam nga lu doy waar la gis nga am na lu ñoo euh, laaj léeg ci wàllu diine nga dégg ñu ni loolu question la boo xam ni euh, lu tabu la kenn du ko wax yonent bi nee na ci diine islam li ñuy jàngale mais lépp loo xam ne daf ko concerné ci ay àtte mais nee na da nga war a véhiculer message bi ba mu àgg ci nopp ki ko war a dégg waaw loolu moo tax ci jotaayam dafa daan toog léeg nga gis jigéen ñi ñëw laaj ko dara waaw comme moom dafa bare kersi euh, da ngay gis dafay woo Aïcha euh, dee ko ko euh, ba noppi nag ni ko léegi dangay bàyyi ba ma jël sama kaala def ko nii jublu ne nga wax leen ko léeg-léeg Aïcha comme xale la mu tooñ ko ni ko boo jubloo ne ma jublu ne ànd ak yow mu demandé ni ko doo dimbali euh, yonent yàlla bi ci mission Aïcha ni ko naaka dimbali mu ni ko kon demal nga wax leen te dafay am kerse ci wax ko jigéen ñi te war na leen ko wax ndax dañu koy laaj seen farat kon war na leen wax seen farata na muy mel waaw ba noppi it am na kerse ci jàkkaarloog ñoom di leen ko wax mu dee ko Aïcha waaw léegi su ko defee nag comme Euh, naa Aïcha xam na ko dafay bàyyi ba mu jublu nee rek mu bërifitu wax leen wax leen su ko defee yonent bi jubluwaat nii mel ni ku ko dégg waaw te moo ko wax Aïcha di waaw amoon seen diggante moo war a am ci diggante bépp couple lu am solo la mooy entente dañoo dañoo dañoo dañoo déggoo waaw waaw te gis nga nag entente balaay am il faut am kenn ku def sacrifice waaw loolu foog mu am. entente balaa am muy déggoo ci couple yonent bi nee na foog mu am ci ñoom ñaar ko def sacrifice moom kay ñu ni góor gi moom lu ñu wax mu baale wala ñu ni jigéen ji moom lu ñu wax mu muñ waaw waaye su kenn deful sacrifice kooku bis bu ne ñu ngi xeexo parce que tooñ dafa sew nit ma na la romb sax fekk tooñ na la ndax nam la rombee neexul waaw loolu moo tax ñu wax ni góor waroo bare seetlu waaw waaw waroo bare seetlu bu ëpp. bari seetlu bu ëpp baaxul waaw waaye am na ñoo xam dañu mën a seetlu mën a seetlu ba da ngay sa jaar waaw waaw waaw te balaa nuy seetlu nag euh, fekk ñu ngi ci biir seeni xarit waaw waaw waaw bi nee na wàññi ko wax na dëgg waaw waaw parce que boo seetloo rek gis loolu moo ci rek waaw ndax nit ki aussi mënul mot. nit ki mënul mot yàlla bind na ko ak ay manquement manquement yi benn bu ca nekk li tax manquement ba dañ walla mu dem ba nekk qualité mooy ngeen di waxtaan waaw te waxtaan balaa am entente am waaw ngeen di waxtaan boo fexee bàyyi lii boo fexee doxe nii boo fexee doxe waaw ci teggin su ko defee mu dégg ka waaw ci teggin su ko defee mu dégg ka waaw du doon sax teggin boo xam ni day mel ne rek euh, kilifa gu toog di waxtaan ak taalibeem walla mais mu nekk ci diggante harmonie waaw waaw mu nekk ci diggante harmonie mooy nga nax ko wax loo xam ni dana ci jaare sax ci nax ba ba euh, dégg ko waaw su ko defee ci loolu la la yàlla di yokke waaye boo nee dangay seetlu dong doo doo waxtaan doo indi wàllu harmonie doo doo doo bàyyi dara kooku dara du sotti waaw waaw kooku dara du sotti loolu yonent bi daan éviter xamul loolu la yonent bi daan éviter zaman bu ne loolu la daan éviter waaw waaw loolu la yonent bi daan éviter waaw wax na ko Umar wax na ko Umar bis bi bis bi bi ñu demee ba soxna yi ñu wax ni léeg ñu dégg kan ndekk dañuy xuloog yonent bi ak na mu mel waaw ak na mel Umar dégg ko rek am lu am lu rëcc ci moom fitam rëcc ndax lu tax boobu moom mi ngi bëgg mi ngi bëgg mi ngi bëgg écraser kër ga ndax ku wax benn baat rek bu dalee sa kaw dootoo waxati mu jékki saa rek dégg ñu ni léeg-léeg soxna yonent bi sax dégg naa leen léeg-léeg nu xulu mu ni xulu ki gën ci mbindeef ñu ni waaw mu dem laaj leen ñu ni moom ñoom moom nañu dëkkee ak moom dañuy xuloo léeg-léeg <laughs> ah mu dem ni kon ba yóbbu ma muñ rek <laughs> waaw te boobu fekk na ku wax benn baat rek kër ga bëgg tas mais ñoom seen qualité mooy dañuy jàng ci yonent bi mooy seen qualité waaw la boo xam ne nag yonent bi waxoon na ni aaxiru zaman loolu dafay commencer di raar. nee na axiru zaman loolu dafay commencé di raar ñu ni lu tax mu ni parce que dafa bokk ci jukko yiy yéeg di dellu xay ba waaw nee na volonté bokk na ci engagement bokk na ci détermination bokk na ci yooyu yëpp yonent bi nee na mu jub jamono balaa àdduna di tukki dootul am waaw pour nga gis ko am volonté da wër ba sonn pour nga gis ko am détermination da ngay wër ba sonn pour nga gis ko am engagement moom doo ko sax gis waaw mu ni mais nag dina dem ba pour ku roy jukko ju baax nag nee na mooy doon coona coona zaman kenn dootu ko gis waaw mu ni roy ko ju baax waaw te wax na dëgg wax na dëgg ndax boo xoolee société musulmane bi ni muy doxee léegi nga gis ni bés bu nekk message yi véhiculé les enseignements du prophète Mohammed paix et salut sur lui mais ñu néew ñooy dégg enseignement yooyu ba noppi adopté ko waaw ñu néew ñooy dégg enseignement yooyu ba noppi adopté ko waaw te yooyu nag société bi su demee ba toll foofu dangay dangay dangay ngay def compromis waaw boo dee góor dangay bàyyi seetlu bu ëpp waaw boo dee jigéen itam nga bàyyi lijjanti bu ëpp waaw su ko defee kër gi am jàmm kër gi am jàmm góor gi kay bu seetlootul nag jigéen ji moom it bu mu di lijjanti <laughs> loolu mooy compromis su ko defee kër gi am jàmm waaw su amee rek kër gi am jàmm lu am solo la. parce que kenn ku nekk dana xam luy farataam moom it mu nekk ci waaw waaw loolu bu amee rek jàmm am waaw parce que kii bu defee sacrifice kii foog mu def sacrifice waaw loolu la yonent bi jàngale waaw su ko defee rek jàmm dal di am waaw ndax loolu mooy li ci ne waaw loolu mooy li ci ne te yàlla aussi balaa muy barkeel njaboot ci kër mooy njaboot gi ñuy yar leen ci la ñoo tuddee sagesse waaw ci wàllu teggin. ci wàllu teggin gis nga wàllu teggin moo tax yonent bi wax ni boo amee sa doom mu ni li nga ko war a njëkk tànnal mu ni ko mooy tuur bu rafet waaw mu ni boo ko tànnalul tuur bu rafet nee na xale bi su demee ba xàmmee islaam ba màgg na am fulla gu moom mu tànn turu jullit bu rafet waaw waaye waxul nga continuer noonu de waaw te ñu bari nag defe nañ dangay ngay continuer noonu waaw yonent bi dafa ni soo amee njaboot na ko tànnal tuur bu rafet yow baay bi nee na soo ko tànnul moom na am fulla gu tolloog bu demee ba mag ba xàmme mu tànn moom ci turu julli di tur bu rafet mu tuddee ko bopp waaw ku ko woowee ti leneen mu ni ko mu ni la wooyu ma lii man lii laa tudd waaw wax na dëgg waaw waaw mu ni nga yar ko waaw mu ni nga yar ko ba noppi nee na encadré ko waaw mu ni nga yar ko ba noppi mu ni nga encadré ko yonent bi nee na ci noonu mooy mooy defar kër mooy defar kër ndax nee na yow ki nga yar ci biir kër gi di ko éduquer di ko encadré di ko wutal tur bu rafet di ko jàngal jikko yu tedd nee na li ngay xaar ci moom mooy ëllëg moom it mu samp lu mel na la nga samp te su fekkee éducation euh, spirituelle bi nga gis ci alxuraan ba adopté ko mais da ngay bëgg éducation boobu di continuer waaw tey crise des valeurs yu bari da ngay gis ni loolu bokk na ci la ko indi loolu bokk na ci li indi crise des valeurs. moo tax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen cadre lenn kese la woon waaw mooy ku ñuy woo dañ lay woo ci li ñu nekk ñoom waaw soo waxee ni ah yow kat ci li nga ma woo ñu ni yàlla moo ni yaa ayyuha na amanu li lima taquluuna ma la tafaaluun waaw su ko defee ñu ni suñ la wooyee ni la sangul nga ni waaw war na fekk ñun ñu sangu ba noppi waaye mënuñu la wax mukk lan dul def waaw ñoom noonu lan daan def léegi nag boo gisee ñu bare déglootuñu conseil yu ñi la koy wax mooy nit day xëy di la digal ay conseil baaxal melal nii attan na sax jël téere alxuraan firil la te moom moo gën a bëgg musiba ci àdduna waaw wala firil la alxuraan julli day maandu julli day mel ni nga taal internet bi rek dégg ko ma ngay wax loo xam dara wóoru ko ci ba noppi bu subaa mu ñëw sa kër ni daf lay jàngal wala daf lay waar doo ko déglu waaw loolu bokk na ci li anéantir espoiru jullit yu bare yoo xam ni seen priorité moo doon déglu nit ku baax mu wax ñu topp ko ca wax ji ñu topp ko ca wax ji looloo tax nag yonent bi daan wax ni ñun suñu cadre moom mooy képp kun ci woo mu ni dañuy fexe ba wax la nii la ñuy jëfandikoo nii la mel nga mel noonu ànd ak ñun te keroog ca feebaram ba bi ko Ababacar demandé ni ko lan nga may dénk parce que xam naa ni moom nga bañ ko wala nga bëgg ko ñëpp daañu wëlbati ndono bi ci man waaw te bu jullit yëpp dajee man ko ñëw ni ma Ababacar léegi yaa fi sës looy def mënuma leen wax lu dul li nga wax waaw yonent bi ni ko soo ko defee wàcc nga mu ni ko lu tax mu ni ko parce que soo ko defee wax nga leen li yàlla wax mu ni ko man ci sama dund mësuma wax lu yàlla waxul alxuraan ñëw dëggal ko wa ma yantixu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waaw mu ni ko kon ñoom bis bu ñu dajee bu ñu ñëwee ci yow wax la nga wax leen rek li nga xam ni moom laa daan wax wax nga leen li yàlla wax waaye nag mu avertir Ababacar ci loo xam ni ñu ngi koy dund ci aaxiru zaman yonent bi nag ni ko nanga xam ni nag gis nga li Iblis dajoon ca aadam aleyhi salaam. mu ni ko waaw mu ni ko moom lay daj ci yéen moom lay dajaat même ci sët yi mujj yi judd waaw parce que moom du tàyyi mu ni ko moom du tàyyi te zaman bu ne dana fexe jéem a yokk puissance am pour xool nan lay réagir waaw xamoo njaboot yooyu tey euh, moo indi yi noo tuddee afaarit waaw ifritun minal jinni waaw moo indi tey ya ñoo tuddee afaarit seen armée seen combat li ñuy def fii ci Sénégal ak yépp yàq moo leen tax a jóg jamono yi passé maa ngi koy wax daaw da ni ko mësuma gis ñu mën tooñ ni afariti waaw parce que ñoo xam ni duñu defar waaye dañu yàq rek waaw te xam nga li li li grave ci seen côté mooy dañuy dem ba ci biir reñ animal xam nga jàngaloon naa leen la règne animal na ñuy fonctionner ak le règne végétal dañu dem ba ci biir règne animal ñu ciy détourner ay animal yoo xam ni dañ leen di def seen animal de compagnie ñoom afariti waaw gis nga yi ci nekk senegal fii di doxantoog di créer accident yi koo ci gis mi ngi ànd ak benn tigre tigre lañuy ànd àndal tigre la ñuy doxantoo waaw mooy seen animal de compagnie te tigre ñëpp xam nañ ni caractère lépp lu jëm ci moom day plonger contre carré la waaw bokk na ci yi ni teg ci tali bu ñu séenee oto yiy daw te ñu fas yéene ko daaneel muy ñëw mystiquement tigre bi contre carré nga gis ñu ne oto bi def na tonneau mbëkk na wala kële daw na boox nañ ko ba dal ca kaw keneen ñu def ko seen animal de compagnie di ko doxantu dem ba jël ci reñ animal ay animal de compagnie di ànd ak ñoom. xam nga pour wax la ni foofu boo fa tolloo ci guerre kon xam nga ni guerre bu metti la te yooyu la yonent bi ni woon ñoom am nañu ay puissance yoo xam ni dinañu dem ba ba coloniser même xolu doomu aadama yi waaw te ni ñu coloniser xolu doomu aadama yi boobu jaaxaloon na ñu bare ndax dañuy wax a ah, koo xam ni kay yàq ka tax a jóg kooku doo ko dugal sa xol ñu ni déedéet kiy utilise njabar dugal nag dugal na ñooñu ci xolam booy utilise njabar dugal nga ñooñu ci sa xol te tey bu ñu tànnoon ci réew mi ñaata nit a fi nekk gëmunu lu dul njabar waaw gëmunu lu dul njabar waaw te benn baaxu ci waaw islam reconnaître ko waaw am na ñoo xam ni foo leen fekk ña nga takk petaaw ña nga takk bé euh, béjjën ña nga takk boppi ganaar ña nga takk tànku xaw ma tànn yu kenn xamul su ko defee ngay attirer euh, force maléfique yooyu ci yëpp ngay nga leen di attirer du lu islam apprécié parce que islam li mu apprécié mooy alxuraan waaw islam li mu apprécié mooy alxuraan waaw te ni islam waxee nanu ko gérer alxuraan mais booy gérer alxuraan noonu dina dem sax ba doo tal di ko takk parce que dafa ni alxuraan ki koy gérer fépp foo xam ni. fu salte nekk la waru fa dugal alxuraan waru fa nekk ak alxuraan waaw kon da ngay dem ba xam ni entretien bi ngay def ci sa yaram su fekkee alxuraan ngay utiliser mais entretien la boo xam ni bu bu bu bu jafe la waaw mais yonent bi ne nag ni kañ lay dem ba force du mal yépp coloniser seeni xol mu ni su ngeen demee ba may leen accès ci seen organisme prédiroon na ko de. prédiroon na ko te boobu kenn xalaatagu ko woon waaw mu ni dingeen dem ba jël force forces du mal may leen accès ci seen organisme saxaaba yi laaj ko kañ la mu ni dana xew ca axiru zaman waaw gis nga lii moo taxoon nga daan dégg ñu ne la saxaaba yi lépp lu jëmoon ci ay takkaay ak yii daawuñu ko jege parce que loolu lañ daan éviter waaw mais mësuñu éviter alxuraan mais li ñuy éviter mooy njabar la ñuy éviter waaw njabar la ñuy éviter. parce que xam nañu ni effet négatif bi nga xam ni am na ko ci doomu aadama ak ni doomu aadama di fonctionner ak ni doomu aadama di fonctionner gis nga moo tax yenent yàlla daawda aleyhi salaam ndax léeg-léeg nga gis ku demande yenn façon bàgg yi góor yi di takk ndax baax na mu ni mi ngi dépendre ci li nekk ci baag bi waaw mu ni bu dul baag en ordre mi ngi dépendre ci li nekk ci baag bi waaw mu ni ci loolu lay dépendre waaw mais du looy jël di ko sànni da ngay laaj lu ci ne ñu wax la li ci ne bu dee lu valable la ci alxuraan ah bu la neexee nga takk ko comme du or su nekkee lu valable ci alxuraan nag bu la neexee nga rejeté ko. waaye ma ni demandé ni ndax kii war na ko takk da ngay demandé lu ci nekk ba noppi lu am solo parce que yenent yàlla daawud alayhi salaam moom la yàlla dénkoon xam-xamu mu mën a tëgg moom la yàlla dénkoon xam mu mën a tëgg loolu la yàlla wax ci alxuraan ni daf ko tàggataloon weñ yi ba weñ yi daf ko daan xotti comme ni ngay jëlee kayit pappiye ni nga koy xottee ak sa loxo noonu la yenent yàlla daawud daan xottee daan xottee euh, weñ yi waaw di ko defar di ko defar di ko di ko di ko di ko changé ci façon bu ñu ko bëgg ñii mu defar leen ci gopp ñii mu defar leen ci euh, lu ñuy lu ñuy togge waaw mu defaral leen ci kàddiir moom la noo tuddee tëgg waaw gis nga moo tax ma ni danger bi nekk ci danger bi nekk ci aada yi am fii ci réew mi ak ci yeneen réew léeg nga dégg nit euh, nit ñëw ñaan si doomam mu ni duma ko ko may ndax dégg naa tëgg la na ma ni koy tëgg mais yenent yàlla Daawda moo paree ni képp kuy tëgg bu dee tëgg mooy defar ay weñ moom la yàlla moom la yàlla joxoon moom yenent yàlla Daawda mu mën ci ay loxoom mu xotti ci ay weñ alxuraan tudd na ko mën ko defar ñii mu defaral leen ci gopp ñu yóbbu tool ñii mu defaral leen ci kàddir ñii mu defaral leen ci marmite ñii mu defar leen ci inde mais gis nga lu xaqiiqa nangu rek daañu dem ba aada yàqu ko waaw lu xaqiiqa nangu daañu dem ba aada yàq ko waaw te mooy indi loolu aada mooy indi loolu waaw aada mooy indi loolu te loolu mooy réalité bi waaw boo seetloo moom la xakim bi euh, Sayid Cheikh Ahmed Tijani si al Maktoum daan wax waaw bi muy wax ni ñi wax ni léegi ñoom géwal lañ ak ñi ni géer lañu mu ni léegi ci ban aadam lañ jóge ndax aadam géer ba wala aadam géwal ba ndax mu ni moom de benn aadam la xam te moo jur ñëpp waaw pour wax la ni bare na loo xam ni danga koy delloo ci xeet waaye boo ko delloowee ci xeet maanaa waxi waxi bakkani aada ngay waxe waaye waxoo xaqiiqa nag waaw waxoo xaqiiqa waaw parce que bi yàlla jëlee maam Adam aleyhi salaam génne ko ca jardin de luxe ba mu nekkoon wàcce ko ci monde shahada bi aadama benn priorité la amoon priorité bi mu amoon moom Adam aleyhi salaam mooy nan lay fexe ba sauver soxnaam ba nga xam ni mooy sayyidatuna Hawa sauver waale famille am ci loolu rek la doon liggéey nan lay fexee ba sauver soxna sauver wàlle famille waaw te boobu aadam di def loolu mi ngi mission bu metti boo xam ni kenn mënu ko nettali waaw benn mission yàlla dénk la ci ñetti mbir yoo war a gere waaw te lépp ñu wax la sa mission la bokk aadam dañ jël prophétie am ni ko sa prophétie moo war a gérer garab yi ak gàncax gi li ñuy bari bari yépp beneen bi aussi moo war a gérer univers bi muy kaw nu bi la fa nekk yépp moo ko war a gérer te lu ci réagir rek na nga xam le pourquoi waaw moo tax ma ni boobu du woon ay question wu frontière ay question wu euh, continent ak ay question wu leneen ak leneen parce que boobu lépp neexoon ba ci garabu siddéem yi ngay gis ak seeni dëkk amuñu woon dëkk garabu sump ya ngay gis ñu am dëkk amuñu woon dëkk waaw géej yi dañu taqoon nii nekk benn waaw mënoo fi woon toog naan océan Pacifique ak océan Atlantique océan Indien mer Rouge di wax waaw waaye loolu yëpp yàlla wutal ko sabab waaw ma nga sa hajaral aswad waaw toog di méditer di def xajam waaw yore hajaral aswad jékki saa rek gis dérivation yu commencé géej yi di séparé wu îles yi di créé wu siddéem yi di sax ay dëkk sump yi di sax ay dëkk garab yi suufe woon di gën a kawe waaw mu demandé la pour pourquoi ñu ni ko sa ñaari doom ñoo rayante muy xaabil ak haabil comme kirim am na ci kaw suuf nag léegi foog suuf commencé naqadi waaw te loolu yépp moom bu sañoon du am parce que boobu bëggoon na li ko dal ba ñu jële ko ca jardin de luxe ba bañ a dal njabootam waaw waaye itam ci biir metit boobu aadam am mais ca la satisfaction mit feeñe waaw mooy mu yëg ni ci biir njabootam yi am na ci ku tudd Muhammad waaw te Muhammad moomu ñu ñu ñu génne ci moom mu nekk maam ci moom ñu ni Muhammad moomu ku yàlla bind moo la gën kon aadam lépp dana ko mën a muñe Muhammad waaw looloo tax nag yowmal xiyaam su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee yonent yàlla aadam li muy njëkk fàtte li muy njëkk fàtte mooy li mu defoon bu ñu wàccee ko ci kaw suuf waaw loolu lay njëkk fàtte waaw moom yonent yàlla aadam waaw te ñëpp jàpp nañ ni kat loolu fu mu nekk nii mooy doon euh, obstacle am bi gën a mag. fekk bis bu gisee Muhammad mu génn yowmal xiyam yeneen yàlla aadam li muy njëkk fàtt mooy li mu defoon ba ñu wàcce ko ci kaw suuf parce que dafa naan sama xeet comme am na njaboot bu mel nii kon sama xeet yëpp texe nañ loolu moo tax yàlla dénk la doom ju baax mu am solo waaw looloo tax yàlla dénk la doom ju baax mu am solo parce que doom ju baax ji su génnee da ngay fàtte lépp loo xam ni. nekkoon na sa erreur waaw nan nga koy fàttee mooy comme am naa lu mel nii ci sama kër kon am naa jàmm li indi jàmm ja mooy bu ma gisul lu ma xam ma dem jàpp ci moom waaw ñu ni su ma gisul lu ma xam ma dem jàpp ci moom gis nga moo tax réalité bahrul kanzi réalité bahrul kanzi Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif dafa ni réalité bu jar médité la waaw ñu ni ko lu tax mu ni gis nga lumière xam nga koo dégg mi ngi koy sàkku damay sàkku lumière dama bëgg euh, am lumière waaw mu ni lumière su demee ba moom maanaam organisme doomu aadama bi mel ni acier ci moom. maanaam nga xam ni léegi organisme bi day mel na acier lumière bi nekk aimant nga xam ni bu nit ki dee dox lumière yi dañuy xëccu di bootu ci roxam cheikh ni moo tax réalité Bahrul Kanzi mu ni jar a méditer ñu ni ko lu tax mu ni pouvoir spirituel bi su nekkee ci nit ki ba ñu wax ni moom au lieu muy dem di wëri lumière bi mais lumière bi mooy ñëw di ko rencontrer nee na war nga xam euh, lu tax ñu ni ko lu tax mu ni mooy espace bi nga nekk espace Muhammad la ndax loolu Muhammad rek moo ko am espace bi nga nekk espace Muhammad la mais xam nga espace Muhammad lu tax ñu ni da ci war a méditer mooy espace Muhammad dafa am lu mu laaj te li mu laaj te muy base fondamentale bi mooy teggin tegginu zikr laa wax alaa bi zikrillaahi tatmainul qulub waaw tegginu zikr waaw tegginu zikr nag soo ko indee ci ñaari fànn nga koy àtte benn bi mooy kiy jàng li muy jàng nan la koy jànge waaw waxuma nan la koy jànge ci li nit ñi foog de mooy comme mokkal na buy jàng walla euh, dafa xaw a bar walla dafa xaw a diib déedéet nan la koy jànge mooy yéene njàngin bi yéene njàngin bi maanaam boo koy jàng tey sa yéene moo war a nekk jaamu yàlla waaw moo war a nekk jaamu yàlla yéene bi ngay jiital waaw yéene bi ngay jiital mooy moo war a nekk jaamu yàlla waaw xam nga la ma ci xaw a reeloo tuuti mooy bi ma waxtaanee ak yéen ci suba ba noppi bu nu wasifa ba noppi sax dangay ngay defe ni dafa am wasifa bu amaat bi ñu leen joxee dog bi parce que kenn jugul dañoo toog <laughs> dama dugg ci bâtiment bi dajeeg Mawlana Cheikh Ahmadou Tijani mu ni ma gaayee ngi ñaan rek te xamuñu ni ñaan yi kat ñett yu njëkk ya lay nangu waaw te loolu waxoo leen ko <laughs> ma ni kon am nañu capable ñaan lu ëpp ñett di dem kon ma yéeg ci kaw surveiller fii ba yàgg ree jàpp ma waaw ah. mu ne ma gars yi ngi ñaan te xamu ñett yu njëkk ya laay nangu te loolu yow waxoo leen yow da nga ni leen ñaan bi ba timis rek waaye waxoo leen ni ñett yu njëkk ya ca ñaan ba laay nangu waaw maanaam waxul ñetti nit ñi dafa ni ñaan yi ngeen di ñaan ñett yu njëkk ya ngay wax waaw loolu la wax waaw waaw mais waxul nit ñi dafa ni ñett yu njëkk ya ngay wax waaw léegi nag léegi nag foofu la problème bi di nekk <laughs> wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan parce que boobu xam na moom ci yéeneem ni nit dina zikr ba noppi di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba ñaan li mu soxla yépp ci àdduna waaye kiy nangu moom di garanti bu ne ñaan bu njëkk ba boo waxee nangam ma ni nangu naa nga waxaat nangam ma ni nangu naa nga waxaat nangam ma ni nangu naa nga waxaat ma ne ah nu bàyyi ba beneen <laughs> mu ni ma mu ni ma te yow waxoo leen loolu waaw waaw mu ni ma yow te waxoo leen loolu waaw waaye fekk man am naa sama tontu ma ni ko yaa ma ko fàttelu waaw parce que xam nga ni su ma ni leen woon ñett yu jëkk yi ñëpp dañuy wuti bik wuti wuti fëy xool yan ñett la ñuy jiital yeneen yi ñuy dolli ma ni ko yaam ma ko fàttelu mu def ma ree nag ma yëg fii di xool gars yi ba yàgg ree jàpp ma waaw waaw pour wax la ni ñoom lu ne la ni analyser waaw ñoom lu nekk la ñuy analyser te it bettuñu xam nañu moom noonu lay noonu lay doxalee loolu xaalam la waaw loolu xaalam la waaw parce que loolu ba ci fathul kabir ñoom dañuy doxalee noonu waaw gis nga fathul kabir buy arrivé nit ki ñett la ñuy jël ci moom ñett la ñuy jël ci ñoom mettre leen en exerce bi ci jiitu mooy xelam beneen bi mooy xolam beneen bi mooy roxam waaw ñoom ñett dafa bokk ci dafa bokk ci seen àtte ñoom ñu jël xelam jël xolam jël roxam waaw benn bu ca nekk day mel ni nit kii dafa nekk ci benn état second boo xam ne du xam sax la pour quoi waaw fatxu bu lay arriver lool la waaw soo doon pousse sa pour mu xalaat sa xel dootul xalaat dañ koy contrôler li ñu bëgg mu xam rek lay xam waaw soo doon pousse sa xol pour ni xol bi bëgg nangam du bëgg dara lu ñu ko pousse mu bëgg rek lay bëgg soo doon pousse sa rox pour mu dem fenn du dem fenn fañ ko yebal rek lay dem ñu xam ni fatxu bi nag bi ngi dikk waaw loolu léeg-léeg nit zikr ba tollu ci biir ci xaal boobu waaw mu day dem ba yëg ni contrôlé dara waaw boo contrôlé dara nag mooy indi nga nekk ci benn état second waaw ñu ni waroon na xalaat ni warul jaar fii ñu ni ko la wax mën na xalaat ñu ni waroon na xam ni kat euh, bu bëggee lee it xolam waru ko ko la wax ni xolam euh, moo ko yore ñu ni roxam kat fa mu dem mu mënoon na dem fee ñu ni ku la wax moo fa yóbbu bopp waaw ñu ni fatxul kabir ñoom noonu lañ koy doxal moo tax bu ñu waxee ñoom ci ñaan ni kat ñett la ñuy jël da ngay xam lu le pourquoi ñu jël ñetti waaw soo miinee seen langage rek da ngay xam lan la waaw parce que bu dee li concerné xel mooy li nit ki du dundee ci àdduna xel mi muy def ba mën a am dépense wala xel ma muy def ba mën yor kër waaw muy liggéey wala mu nekk ci entreprise wala mu nekk ci dara wala muy créer projet bu dee ci xolam dañuy xam ka nga xam ni moom la bëgg àndal ci dundam. li mu bëgg àndal ci dundam xol moomu kan moo ca nekk waaw waaw loolu am solo la wax naa ko gis nga ni euh, nitu lumière boo gis ci këram yàlla tànnal na ko njaboot bu nuroog moom su dee ko am ñeenti soxna la yàlla tànnal na ko soxna bu déggoog moom mais doo leen xàmme waaw rey bu ñoo koy tànn waaw yooyu du yow yaay jóg di ko tànn rey bu ñoo koy tànn suñ ko tànnee ñoo koy ñoo koy def nag waaw day nekk ci sa xol. ñooñu aljana boo dëkk soxna soosu ñuy tànn wala njaboot googu ñuy tànn aljana bi ngay dem ëllëg ñoom seen station dootul compter tant sa station moo féete kaw sa station bi féete kaw ñoom soo par exemple su njaboot ba wala soxna ba waroon dem station 2 yow nga war a dëkk station 8 ñoom station 8 lañ leen di dëkkal ci yow waaw waaye nag bu njaboot ba waroon dem wala soxna si station 8 yow nga war a dem 2 dañ lay bàyyi sa 2 ñoom ñu dem sa 8. <laughs> loolu mooy contraire <laughs> loolu mooy contraire bi <laughs> loolu mooy contraire bi su ko defee ñoom noonu la ñuy contrôler xol bu ñuy contrôler rox nag euh, la yonent bi amoon ca laylatul mi'raj subhaanallazi asra bi ab di abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa waaw voyage bi yonent bi amoon nu tuddee ko voyage spirituel mais ba léegi théorie boobu boo demee ci islamologue yi wala nga dem ci ñi nga xam ni sax ñu ngi jéem a maîtriser wàllu science mais dañ ci xalaat parce que ñoom ñëpp nee nañu benn point moo leen jaaxal ci voyage bu yonent bi nan la yonent bi mënee jóge ca Makk ca masjidil haram dem ca masjidil aqsa Jérusalem ku xam actuellement diggante euh, Makk ak masjidil haram ak masjidil aqsa beneen bi ñu ni mu monte jóge ca masjidil aqsa asamaan yi kenn ku nekk ak taxawaay bi mu am ak yonent yi jiite bi mu leen jiite ak découverte yu mu def waaw ñu ni loolu yëpp alxuraan dëggal ka mais ñoom lu leen jaaxal mooy nu dellu wax leen ni yooyu kat bi muy xew soo ko doon natt fii dafa mel na nit ku xef balaa muy xippi loolu yëpp am na waaw ñenn ñi dem ba ñu leen dafa mel na benn kaasu ndox boo xam ni dafa doon tuuru balaa kaas bi di jeex yonent bi dem na def voyage boobu def découverte yooyu jiite yonent yooyu ba dellu si waat fekk kaas gi jeex ñoom ñu ciy xalaat waaw scientifique yi di ci xalaat islamologue yi di ci xalaat waaye kenn ci ñoom trouvé gul dëgg-dëgg vraie formule bi tax loolu mën nekk te fi ñu juume ñoom ñëpp walla ñu fàtte mooy ni ñoom dañuy calculer dañuy calculer. du yàlla yi ca xayb bëgg ko jël calculer ko ni ñuy calculer sunu montre yi fii wala sunu matière yi fii te bokkuñu waaw te bokkuñu parce que tierce bi ngay xool ci sa montre gis ni tierce bi gaaw na benn segond bi soixante tierce yaag ngay xool di natt di natt gis nga tierce yi nekk ca xayb yamuñu ak yii waaw matière yi nekk foofu yamuñu ak yii organisation bi am foofu amul ak fii moo tax c'est tout à fait normal parce que man ñi ko laaj ñëpp dama ne mais yéen ama ni mais yéen alxuraan tontu na leen bi alxuraan di wax ni bu nit dundee cent ci kaw suuf dund téeméeri at ci kaw suuf nga dem génn àdduna ba nga génnee àdduna yowmal am ñu lay àtte ñu laaj la ñaata fan nga paase ci kaw suuf nga ni benn suba wala benn ngoon lam yalbasu ila ashiyatan aw duhaa benn ngoon laa fa passé wala benn suba te nga dund cent ans ñu wax ni yàggaayu bis bi xëy na moo tax ma ni déedéet parce que dund ba ngay dund foofu la nga vivre ca benn journée ca yowmal xiyam wecc na li nga vivre fii bu fekkoon dund nga mille ans wala nga dund deux cent ans benn journée ba wecc na ko mu ni pourtant benn journée la de mais journée ba moo toll noonu léegi nag journée boobu yàlla di ko natt di ko natt di ko natt ba natt ko moom ci ay atam indi dure cinquante mille ans waaw te benn journée rek mën a représenté yow presque deux cents ans yoo fi jaaroon wala cent ans yoo fi jaaroon dem ba boo dundoon téeméeri at ni man benn suba laa fa jaar wala benn ngoon kon nga xam ni euh, calcul yu bokk ñu léegi nag laylatul mi'raj bi yonent bi jógee ca masjidil haram di dem ca masjidil aqsa bay rencontrer profet yi mais yàlla daf ko indi woon ci notion boobu notion bi yàlla doxale voyage bi mooy notion bi nga xam ne mooy notion wu temps yàlla na muy évoluer waaw mais indiwu ko ci notion wu sunu temps wu àdduna ni muy évoluer loolu moo tax ñu ni demam ba la muy yéeme yéeme yëpp mi ngi mel ni xef ak moo tax ñu ni demam ba la muy yéeme yéeme mi ngi mel ni kaas boo xam ni ndox mi dafa doon tuur balaa ndox mi jeex yonent bi dem na ba dell waaw te kooku boo ko laajee nitu yàlla yi ñoom dañu koy xam. ñoom ak seen hijab dañ koy xam waaw parce que réalité yi nii enregistré waaw gis nga réalité yi nii enregistré réalité yooyu kenn mënu ko enregistré ci ay minutes waaw kenn mënu ko enregistré ci ay minutes waaw pourtant ñu mën nañ ko enregistré ci benn laps de temps ay secondes sax waaw ay secondes ñu enregistré réalité yoo xam ni mën nañ ci waxtaan quatre heures de temps ci ay secondes. nan ngay enregistrer dara ci seconde waxtaan ci quatre heures de temps mais parce que notion bi muy doxe foofu ak notion bi muy doxe fii bokkuñu moo tax ñi am échec yépp ci laylatul mi'raj mu jaaxal leen ba léegi dem bi jaaxalu leen ndax dem bi alxuraan moo ko dëggal waaw dem bi alxuraan moo ko dëggal mais ñoom li leen jaaxal mooy gaaw bi mu gaaw ñu wax ni xef a xippi la ñu wax ni kaasu ndox bu doon tuuru la balaay jeex yonent bi dem na ba ñëw te yonent bi nettali leen rencontre mag euh, malaayika yaag rencontre mag ña mu gis safaraak rencontre mag yonent yaag waaw ñu ni rencontre yooyu yëpp ñu ni war na mën a gaawe noonu waaw ñu koy natt fii ndeke kenn du ko nattee fii ci notion bële la ñuy utiliser xam nga loo tax li ñuy tuddee espace intermédiaire yi benn bu ci nekk ci ñoom dafa am la muy liggéey waaw benn bu nekk ci ñoom dafa am la muy liggéey gis nga yàlla yàlla liggéeyam kenn xamul lan la waaw di nga sonn ci dara di nga am perception ci dara di nga nekk ci dara mais bu yàlla ñëwee mbiram si nga xam ni dëgg-dëgg yàlla moo mën a organiser xam nga Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dañuy waxtaan. bi ñuy def organisation mission bi mu ni ma dinañu yokk nawaamis yi ñu la affecté woon fekk boobu nawaamis yi ñu wa affecté woon lu mu doon bare bare weesu wu ñu te quatre-vingt-dix-neuf yi kenn leen yilifoon te pour man loolu doyoon na mu indi cent quatre vingt dix ni ma dañ koy yokk parce que dañu réorganiser mission bi réorganisation kooku moom soo xamee mission xam ni toujours day am waaw mission ci ci réorganisation la dëkk diggante xayb ak shahada bi ñu waxtaanee suufu Médine suufu Médine wax la mu bëgg moo tax yàlla créé gàddaay mais yonent bi mënoon na dund ca màkk euh, nu nangul ko ca màkk wala ñu bañ ko nangul mu xeex ak ñoom te gàddaay du am lu tax mu dem ba Médine soo koy retourné du yonent bi moo fa bëggoon dem suufu Médine moo ko ñaan loolu réorganisation mission la transfert de la lumière la mu ni ma bu nu réorganiser sécurité mooy nekk en premier moo yokk nawaamis yi mu indi 199 mais xam nga boo déggee 199 nawaamis li ngay foog mooy dañuy def benn bloc euh, comme ay soldats la taxaw di garder nit ki déedéet lu tax ma ni yàlla ku mën a organiser la gis nga 199 yi kenn ku nekk. dafa am benn service bu muy dox ci man bokkalug moroomam mës nga gis tey ñu indil la 199 waxuma nawaamis ay nit ñu ni la nit ñi kenn ku nekk am na lu mu yore ci yow bokkul ak li keneen ki yore yow dinga mujj ni waaw kon moom lu ñuy yore lu mu doon nawaamis yi loolu mooy seen liggéey kenn ku nekk dafa am lu muy yore lu bokk lu lu moroomam kenn ku nekk service am day fonctionner indépendant maa ci beneen service cent quatre-vingt-dix-neuf ci benn personne kooku lan la ñuy calculer ci moom lan la ñuy calculer ci moom mais nit ñi ñoo ko dul comprendre gis nga nag sens boobu pouvoir mystique jox na waa mis moo tax ñu wax ni kenn du ko booleeg lu dul xutbu bu amee mission universelle waaw parce que kenn ku nekk dafa am service bu muy yore. te bokkul ak morom ñii lenn la ñuy contrôler euh, boo nekkee ci milieu boo xam ne millier euh, mystique la sa ñaq sa ñaq rek la ñuy contrôler ñiy contrôler sa sueur ci booy nekkee ci milieu boo xam ne milieu mystique la bokkalug ñuy contrôler sa sueur boo nekkee ci milieu boo xam ne milieu d'entraînement la wala beneen milieu. te yow ñaq euh, ñaq rek nga ci xam jël mouchoir fomp sa ñaq ñu dem ba xamal la ni ndekete gutu ñaq yi bokkuñu en fonction ci milieu bi ngay ne te ku ci ne am na bu mu ci ciy contrôler am ñoo xam ne li ñuy contrôler mooy bu bu la nit joxoon ñam mu am euh, bëgg la empoisonné ñoom ñoo war a dindi poison bi keneen ki ko gis yoonam nekk si ñoom lay bàyyi ñu dind waaw nga gis ni kon yàlla ci organiser kenn xamul dëgg-dëgg réalité am lan. moo tax nag boo demee ci espace intermédiaire yi espace boo ci gis ci xay bu dafa am borom waaw espace boo ci gis ci xay bu dafa am borom waaw seen boroom ñoo ciy nekk waaw tey jii boo tuddee xat xatmiya boo nee xatmiya waxuma waxuma nga nga nga déchiffrer xatmiya walla ngay euh, toj xatmiya de waxal xat xatmiya rek. soo ne xat mi espace intermédiaire bu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani émettre na mbooloom nawaamis ya fa ne ña ngi lay déglu soo ne xat mi espace intermédiaire am émettre mbooloom malaayika ya fa ne ña ngi lay déglu waaw ndax bii digganteem ak wali yi la bali digganteem ak yonent yi la waaw te yonent yi ñañ daan envoyé ci ñoom mooy malaayika yi wëli yu yore mission universelle muy wëli yu mursali nawaamis la ñuy booleeg ñoom mooy xutbu yi waaw beneen espace intermédiaire yi noonu lay mel waaw gis nga loolu moo tax xayb am ay bouclier de protection waaw ni bouclier de protection yàggee di am wa yadribu llahu al amsaala linnaas wallahu bi kulli cheyin alim yàlla dafa créer ay bouclier de protection créer ay parabole de protection parabole yi ñooy tiim rox yi di ko arrosé su fekkee nit ki dafay dallu waaw zaman bi ñuy wax ni euh, nitu yàlla bi wala nitu lumière bi ma ngay nelaw parabole yi ñooy tiim roxam di ko arrosé waaw ñoo koy puiser même léeg ba dugal ko ci biir diwaanul xiraa ni ma ko jàngale woon waaw ñu fay nekk di tournoyer di tournoyer ba nit ko di yeewu ñu delloo si ko ci ñoom waaw bu dee bouclier de protection yi nag ñoom ñooy garde-fou yi waaw mooy ñi nga xam ne ñoom bu ñuy réagir rek dafa am ci nu ñuy jaaree réagir waaw mooy boo waxee ci xay ba loo xam ne du sa moomeel waaw boo waxee ci xay bu lu dul sa moomeel walla nga wax ci xay bu lu ñu la santul nga wax ko wala nga feeñal secret ci xay bu warul feeñ waaw bu ñu accéder ci yow kàddu googu bu duggee seen espace intermédiaire seen mission mooy dañuy ñëw manque fan yi ngay dund ba fan yi jeex tàkk ñu bàyyi la ak lumière bi fan yi ngay dund dañ koy gis nii ñoom ñu nekk ci espace intermédiaire yi ñu xam ndax yow daa fi am téeméeri at ndax yow daa fi am 70 ans ndax yow 59 ans ak nangami weer ak nangami fan ak ci ban heure sax ci heure shahada da ngay génne àdduna yépp dañu janoog moom waaw boo duggee nag ci cadre boo xam ne du sa bos nga wax ci xay bu loo warul wax wala nga wékkoo cër boo warul wékkoo wala nga dugg ci domaine boo warul dugg wala feeñal secret boo warul feeñal espace intermédiaire bi mooy indi ña nga xam ni ñoo ko yilif ñu xool fan ya di effacer di effacer di effacer ba mu jeex tàkk ñu bàyyi la ak lumière ba nag xam nga lumière bi loo tax ñu koy bàyyi ak yow mooy sutura la sutura yonent bi la waaw parce que nit ku ñemee wax ji ba dañu xam ni nit la xëy na koo xam ni am na lumière ba dënam tàng ñu bàyyi la ak lumière yi waaye fan ya moom jeex waaw boobu sax nekkul bu danger parce que processus boobu boo demee ca xadaratul ilaahi dañuy wax ni nit ki génn na àdduna waaye dem na àjjana waaw dem na àjjana ndax bàyyi nañ ko ak lumière processus bi dangereux mooy bi nga xam ni moo concerné ñoom nawaamis yi àttan nañu su fekkee ñoom la seen espace intermédiaire émettre ñu ñëw du ñu yam ci manque fan ya ba mu jeex ñu ni génn na àdduna waaye dañ koy manque ba mu jeex ba noppi delloosi ko mu nekk fanu mbugal ci yow maanaam imagineel nit ku nit ku mu nit ku mu dese vingt ans nga war a dundaa ñu manque vingt ans yi ba noppi indiwaat vingt ans yi mu nekk feebar boo war a tëdd doo jóg waaw walla vingt yoo xam ni foo duggee te génn duggaat foo génn dugg génnaat wala vingt yooyu alko seeta lool danger bi foofu la ne waaw moo tax du rekk dañ koy yóbbu bu ñu ko yóbbee kay ni fan ya jeex na nga nga dem àjjana ndax bàyyi nañ nag lumière bi. mais danger bi mooy bu dee seen espace intermédiaire ñoom na waa misi mooy ñu dem delloo si fan yooyu def ko fanu mbugal ci àdduna waaw boobu mooy danger bi waaw loolu moo tax nag seen côté ñoom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ni sooy méditer ci Bahrul Kanzi nee na sa méditation bu demee ba ci ni tombu lumière bu nekk ci nit ñu ni leer wër di ko topp nee na jàppal yaa ngi ci milieu Muhammad ñu ni ko ku nekk ci milieu Muhammad nan la war a réagir cheikh ni salli ala sayidina muhammadin ilfatixa li ma uxlix walxaatime li ma sabax naasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadarihi wa miqdaarihi alazim mu ni ki nekk ci milieu Muhammad nee na na julli ci Muhammad kon li muy jàngale mooy ki toll foofu nee na la mu war a bareel nee na mooy na bare lu muy julli ci yonent bi parce que nee na julli boobu muy julli ci yonent bi nee na loolu mooy firndeel teggin bi mu am ci milieu bi mu nekk léegi nag milieu boobu su xasee ba nga considérer sa méditation ba nga considérer sa méditation waxuma millier bi mooy émètre mais yow sa bopp yaay émettre foofu la nitu yàlla di toll nga dégg ñu ni kii kat ku ko ziyaara euh, bisu altine wala ku ko ziyaara su aljuma euh, say bàkkaar dañ foofu la nitu yàlla di toll parce que dafay dem ba moom dootul basé wu ci millier bi mu nekk mooy émettre mais moom en personne mooy émettre waaw te cadre zikr moo koy def nit wala zikrullahi akbar waaw cadre zikr moo fay yóbbu nit waaye gis nga mooy zikr bi nga xam ni xam nga lépp xam nga lépp li ci concerné xayb waaye xam nga li ci concerné shahada xam nga lépp lu ci concerné xayb waaye xam nga lépp lu ci concerné shahada waaw ndax gis nga réalité yi li ñoo tuddee xaqiqatu muhammadiya réalité cachée yi tax ñuy wax damirul kaw ni ñi nga xam ni ñoo fa nekk yor synthèse bi ñépp xaqiqatu muhammadiya lañ leen jàngal xaqiqatu muhammadiya lañ leen jàngal ñi nekk ci damirul kaw ni yëpp yor synthèse bi xaqiqatu muhammadiya lañ leen jàngal moo tax nag ñoom ñu mën a toog xàmme kiy dund te war dem aljana waaye xàmme it kiy dund te warul texe waaw xàmme kiy dund war a dem aljana xàmme kiy dund te warul texe waaw ñoom ñooy wër nag ci xadara nitu yàlla yi ñoom. di seet nitu yàlla bi li mu ñaan ba nu garanti ko ndax pacte boobu xay bi ñu ngi koy respecté ba léegi wala respecté wuñ ko waaw te mooy la ma leen waxoon ca ziyaara 29 janvier ba waaw ni leen bi may ñaan Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani dama ko ñaan ni ko bu ma booleeg mukk bu ma booleeg mukk ko dul texe ëllëg waaw man it mu nangul ma ko waaw waaw ñooñu nag seen rol mooy dañuy wër ci sa xadara di xool ku ñu gis ni warul texe rek nu rocc ko waaw loolu mooy seen rôle waaw pour nu respecter pacte ba noonu la ñuy def waaw ku ñu gis ni warul texe rek nu teel la rocc waaw soo defee nga gis ni toog ba yàgg naan maa bàyyi fekk bàyyi woo ñoom ñoo la rocc waaw doo ci xam dara nag waaw mais kañ nga koy yëg nag mooy bu ñu la roccee ba noppi nga gis ni. fonkatoo julli gis ni fonkatoo jàmm yàlla gis ni fonkatoo wérd gis ni fonkatoo wasifa nga soo koy comprendre ni ndekete génnewoo sa bopp waaw parce que yooyu yëpp dañ ni euh, c'est automatique tànk yaa ngi ci lumière buy émettre lumière buy émettre euh, boo amee lumière mu branché la boo amul lumière mu branché boo ci rocceekoo nag ñu rocce la ñoom ni nga demalal sa bopp si ngay xool nag ba pare rendre compte ci ni nga vidé ci lumière waaw mais mënoo rendre compte mukk te fekk génnewuñ la ba teg te loolu ñoom organisation li ci ñoom ndax dañ ni pacte bi dañ ko war a respecté waaw ñaan nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam accordeel nañ la lii ñu ni loolu ñoom dañ ko war a respecté su ko defee nag ñoom la ñuy wër ñu nekk comme ñoo xam ni dañuy surveiller ñu ni ñoom dañuy surveiller bu ñuy surveiller noonu lañuy ñuy mooy seen surveillance te kuy texe xàmme nañ la ku dul texe xàmme nañ waaw kuy texe xàmme nañ la ku dul texe xàmme nañ waaw te yow doo si xam dara dañuy ñëw rek xool la bu ñu la xoolee xam ñaata fan la dese ci kaw suuf xam ndax da ngay texe xam ndax doo texe waaw ñu waxtaan ci sa mbir ba pare romb la dem te doo leen yëg sax nag waaw waaw doo leen yëg sax waaw moo tax moom Mawlaay Cheikh Ahmad yi waxoon ni. ñi bëgg texi dëgg mu ni nañuy sax ci malaanu wasifa waaw ñu ni ko lu tax ndax moom dafa yëg ni ñooñu heure bu nu ñëwee di la seet si fekk la ci wasifa dañuy ñaan seen ñaan ba ni ñuy texe nañ walla ku ci texewul sax ñu ñaanal ni yàlla na nga texe dem seen yoon waaw moo tax néew na looy nekk ci mission fonk wasifa ba noppi xëy ñu rocc la sa mission ba lu néew la ndax dañ lay ñaan boo warul woon texe ñu fekk la sama laan wasifa ba dañ naan euh, texe na wala bu texewul woon yàlla na texe waaw contrôle dootul amati waaw te xamoo nag kañ lañ lay contrôler gis nga nii nga gis léeg-léeg euh, inspecteur de l'éducation yi di ko faral def ñoom noonu la ñuy def xam nga léeg-léeg da ngay gis euh, ñiy jàngale xam nañ ko nga nekk di jàngale rek euh, toog ba yàgg ñu ni daañ la seet si nga ni kañ lañ may seet si ñu ni kenn du la ko wax bu ñu la ko waxee da nga koy préparer. nga gis maître bi di jàngale di jàngale bis bu nekk rek mu ne ah, boo moytu léegi ñu seet ma waaw léeg-léeg ñu xëy rek ñëw seet si ko ci kalaasam waaw seen ndax dina apt wala du apt waaw ñoom noonu la ñuy def mooy dañuy xëy duñu tàggu nit ki duñu wax nit ki la pourquoi xëy rek ñëw ci nit ki waaw bu ñu ñëwee nag tombeek yaa ngi ci malaanu wasifa ñu ñaanal la ni texe na wala bu texewul woon it ñu ne yàlla na ci jaare texe te yàlla du delloo seen ñaan te yàlla du delloo seen ñaan moo tax cheikh ni importance bi nekk ci toog ci malaanu wasifa nee na importance la bu kenn xamul na mu toll te néew na mu ni ku nekk ci kër nitu yàlla fonk wasifa ba noppi ñu rocc kaf waaw te wax na dëgg bariwul loo koy seetlu waaw waaye mu ni bu ñu la seetsee nag xool sa kanam ñu gis ni yow mii yàlla dogal na sa destin doo texe te boroom kër gi ñaan na na ñëpp texe nu rocc la ca kër ga te li doy waar mooy bu ñu lay rocc sa imaan la ñuy rocc waaw bu ñu rocc sa imaan loo gëmoon démb xëy weddi ko waaw moo tax léeg-léeg nga gis ko wéer du ba yàgg xëy ni maa bàyyi wér du fekk wér du bee ko bàyyi waaw waaw Cheikh Tijani sax moo ko wax ca fees ñëpp di ko dégg Cheikh moo ni man Cheikh ñu ni ko waaw mu ni kenn mënuma bàyyi man maay bàyyi nit waaw wax na dëgg waaw wax na dëgg moom moo ni man cheikh ñu ni ko waaw mu ni kenn mënuma bàyyi man may bàyyi nit waaw mu ni waaye ku ma bàyyi dooma jàpp de waaw mu ni ku ma bàyyi doo jàpp waaw ñu ni ko lu tax mu ni sama leer la waaw bu ma bàyyee nit mu ni doo ma jàpp waaw ndax bu ma la bàyyee sa organisme laay waxal boo bëggee dem wasifa nga nga tayel tayel ba fi ngay génn di waaj a wasifa ji foytul foofu ngay daanu commencé nelaw <laughs> dootoo dem waaw boo bëggee laazim da ngay sonn ba mën nga sànni sa kurus sax doo ko yëg waaw bu ne xadaratul juma moom sa oom yi day commencé metti metti ba moytul dangay tëdd rek faf ni naa bàyyi ba beneen te doo dem mukk noonu ngay continuer naa bàyyi ba beneen naa bàyyi ba beneen cheikh ni bu la commencé daal mu ni tiital de waaw mu ne ndax su ma la bàyyee rek say organisme laay waxal waaw lépp lu ma la sawarloo woon dama la koy tàyyal waaw waaw moo tax lu jar di bàyyi xel xam nga mag ñi moo tax nga daan gis ci seen melokaan Euh, suñu tàyyeelee tuuti rek nga dégg ñu ne ñaanal leen man de nii dama tàyyeel waaw waaw nga dégg ñu ni ñaanal ñu ne ah ñaanal leen ma rek ndax dama xaw a tàyyeel fekk léeg-léeg sax sa yaram la doomu aadama mooy fonctionné ba yàgg yàlla dogal yaramam mu mu mu dugal ci léeg mu tàyyeel léeg yaram feebar waaw mais ñoom dañu dégg li Cheikh Tijani waxoon moo tax nu ragal ko waaw ndax Cheikh ko wax Cheikh moo ni benn nit mënul taxaw dóor dënnam ni moo ma bàyyi man maay bàyyi nit. mu ni man maay bàyyi leen waaw mu ni mais man kenn mënuma bàyyi te wax na dëgg koo xam ni rox lay contrôler kooku ko mën a bàyyi kuy contrôler rox kooku ko mën a bàyyi kooku mënul nekk waaw kooku mënul nekk man moom duma bàyyi nit waaw man duma bàyyi nit waaw waaw ku ma bàyyi du tax ma bàyyi la waaw kooku ñëpp xam nañu waaw même boo ma bàyyee du tax ma bàyyi la kooku ñëpp xam nañu ko waaw ndax boo ma bàyyee itam boo tëddee man ngay gis ba bëccëg waaw ngay dégg sax leen nit man de bàyyi naa ko waaye moom di mun fexe ba bàyyi ma ne ah déedéet même boo ma bàyyee du ma la bàyyi waaw parce que li ma waxanteeg yow fii ci àdduna faw ñu dem ci kanamu yàlla ñu waxante waat ko fu mu leer waaw yaa jël sa yoonu bopp wala man maa continuer sama mission jeex ndax yaa dem ba yàgg jël sa yoonu bopp wala man maa continuer sama mission waaw bu ñu demee nag bu yàlla waxee ñu xam ne yàlla wax na ñu def li yàlla wax. waaye bëgguma mukk maanaa lay boo xam ni tegul ci yoon waaw waaw ndax ndax ndax priorité bi mooy mooy mission bi te ci mission bi la ñu ne waaw bi ñu santee ba léegi feuille de bi ak ligne de conduite bi ci lañu ne nekk waaw moo tax ngay gis nit demal nga laaj ko mu toog at ñëwul Medina Cheikh wala wax man maa bàyyi waaye boo ko laajee kañ nga ko gëj a gént nga dégg mu ne la fan yi bërki bi keroog bis bu nekk nga ni waaw lu tax te dematoo fa mu ni moom de mu ngi fi ba léegi waaw loolu loolu mi ngi jóge ci raxma yonent bi waaw mi ngi jóge ci raxma yonent bi waaw yërmande bi yàlla def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugal loolu ci xilaafa nuuru muhammad loolu foofu la jóge waaw parce que dañuy bëgg à chaque fois sa xel ñëwaat nga dellu si waaw nga dellu si ndax it yàlla euh, mooy yàlla lu nekk mën na ko jéggal waaw gis nga li ñuy wax yépp boo moytuwul ndàngam boo moytuwul yàlla lu nekk mën na ko jéggal waaw gis nga Abu Yazid al Bastami la waxoon waaw ca euh, débat ba mu doon def ak borom bi te muy dellu ci wàllu spiritualité mais loolu la waxoon waaw bi borom bi di ko waxee ni ka yow kat euh, maa ngi wax ñi nga àndal ni nga mel léegi ñu bàyyi la waaw al Bastami dafa ni ko man maa ngi wax sa yërmande lu mu toll nit ñi ni moo moom jaratul jaamu di yërmandeem nii la toll. ca débat ba borom bi ni ko kon léegi nooy def mooy noppil ma noppi waaw pour wax la loolu waxtaan la diggante xarit ak moromam mais yàlla amul lu mu mënul baale waaw yàlla lu nekk mën na ko baale waaw li mu wax daal ni moom yoonam nekku si mooy sa digganteeg nit ñi waaw te man dama gis ñoo xam ni dañuy ragal seen digganteeg yàlla ba pare ñeme seen digganteeg nit ñi man moo ma jaaxal waaw nga gis nit wax moom ku ragal yàlla la. wane ne mbir yàlla rek mu sujjóot waaye bu jàppee nit ka mara demis waaw te yàlla nee na man sama digganteeg yow amul problème waaw yàlla nee na sama digganteeg yow amul problème mën naa la baal facilement yow mal xiyaam sax léeg nga gis ku ñëw euh, manqué di jooy ak di seet fan lay mottali ko yàlla jékki saa nañ ko dolli lu mu bëgg ñu yóbbu ko aljana parce que aljana yàlla ni du man maa ko soxla di fa dugg di teral sama bopp pour samay jaam la kon yokkal leen ko lu mu bëgg ci yow mu dugg fa waaye bu dee sa digganteeg nit ñi yàlla dafa naan wool nit ki ba mu baal la waaw te nag loolu defe naa ni nit ñi fii boo leen woowee nga dégg nit ki ni la man boobu ba léegi maa ngi manqué war a mottali si la baal <laughs> fay ma ñu woo koo xam ni dafa manqué te bu la baalee moom moom amagul lu ko yóbbu àjjan xam nga ni ci yàqin dafa naan fay ma waaw fay ma ba noppi waaw bu demee aljana ba noppi nag ni bu bu bu beneen yoonatee nu baal waaw fekk beneen yoon dootul amaat waaw moo tax gis nga danger bi foofu la nekk mooy ci diggante nit ki ak moroomu nitam waaw ma ni sax ci diggante jullit bi ak moroomam diggante nit ki ak moroom mi nitam waaw foofu la danger bi nekk waaye yàlla moom lu nekk mën na ko baale waaw moo tax pour man sa xel mi ngi dale ci bu la leeree ni nit ñi amee loo leen xàq boobu la sa xel war a dale boo leen amee lul xàq sa xel na dal yàlla moom lu nekk mën na ko baal yàlla moom du problème bi nit ñi ñooy problème yi waaw looloo tax nag yonent bi daan wax ni di ci bàyyi xel nee na lu am solo la yonent bi nee na di ci bàyyi xel nee na lu am solo la nee na jullit dafay fexe ba digganteem ak moroomub jullitam nee mu di ko sàmm waaw mu ni digganteem ak être humain en général nga di ko sàmm waaw gis nga seetal euh, maqaama maqaama xutbaani yu li mu laaj yow doomu aadama nga gis nga buñ la ràngee màqaama xutbaan yo waxuma gaañ nit mais amatoo droit sax rey melentaan buy romb waaw amatoo droit sax romb garab goo xam ni soxlawoo xob ba nga dagg xob bi waaw boo ci gis la nga am duraa mooy déplacer ko bàyyi mu dem waaw seetal loolu ci màqaama xutbaan yu buñ la ko ràngee waxuma la gaañ doomu aadama mais amatoo droit yow ci boppam rey sax melentaan buy romb waaw amatoo droit sax euh, fekk garab goo xam ne soxlawoo xob bi nga dagg xob bi te fekk soxlawoo waaw te bés bu ne nga dégg tubaab yi seen côté bu ñuy jàngale tey jii wàllu civisme yooyu ñuy jàngale yu mel noonu bul dagg xobu garab gi sànni ci mbedd mi te bu ñu la ràngee maqaama xutbaan yu amatoo droit waaw amatoo droit parce que da ngay dem ba li ñu lay jàngal mooy lu nekk yàlla def ci misaal yàlla def ci misaal grandeur am inna allaha la yi an yadribal masalan ma baudatan fa ma fawqaha waaw yàlla su ko neexee mu misaal ci loo xam ni ma nga mel na yoo su ko neexee mu misaal lu gën a rëy yoo wala mu sax bàyyi leen fa ñoom ñaar misaal ci lu ko gën a tuuti waaw maqaamu xutbaani yu bu ñu la ko ràngee yooyu yëpp dañu la koy wax moo tax nag ñu ni ci cadre boobu li nit war a gën a éviter mooy digganteem ak nit ñi loolu la yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàng waaw gis bi muy dem ba woo Fatima Fatima di doomam di doom bu mu sopp ñëpp xam ni dafa sopp Fatima waaw mais keroog bi mu koy wax li mu ko njëkk laaj dafa ni ko Fatima Fatima di ko déglu mu ni ko alal ji ma bàyyi ci nga bokk sa alal la bu la neexee jël ci lu la neex. waaye sa digganteeg yàlla mu ni ko suñu demee dafa am ay paramètres paramètres yi lan la mooy man man man sa baay laa maay yonent bi yàlla yónni man war naa ramu ñëpp war a ramu jullit yi ak ñi ma yaakaar te yow sama doom nga te sopp naa la waaye ci condition mooy tax ma mën a dalal sa xel ndax doo tooñ waaw ni ko man de ñi ma fàttaliku mosoon naa leen tooñ ñëpp. ak même sax ñi ma xam ni tooñu ma leen dem naa baalu leen xaq mu ni ko ndax doo tooñ sa boroom kër mu ni ka tooñ yi nga yëg suñu diggante baalu naak yi nga yëgul baalu naak te baalu ko sax fekk dara xewul suñu diggante waaw yonent bi ni ko kon de xel mën na dal ci yow waaw xel mën na dal ci yow mu ni ko ci sa digganteeg yàlla waaye bu doon yaa ngi tooñ wala am na yoo amee ah bu ñu demee kat ñooñu bu ñu waxee donte may yonent bi mënuma ci daal. nga xam boobu responsabilité nga xam boobu responsabilité moo tax il faut faire très attention ci yu mel noonu il faut faire très attention ci yu mel noonu te loolu la yonent bi wax Fatima te xam nga bu ko waxee Fatima Fatima di doomam mooy wane ni loolu kon bàyyiwul kenn waaw su ko ko waxee muy doomam mooy wane ni kon loolu bàyyiwul kenn waaw te ni nu fooge ni nu fooge ak ni mbir yi demee bokkul de. nit ñi mbooloon lay topp rek wala nit ñi yaay sëriñ ba rek wala euh, yaay sëtu diw rek jeex na directement aljana demewul noonu de waaw demewul noonu de réalité cachée yi benn bu ca nekk boo demee barzax da nga koy vivre comme si ba nga nekkee ci àdduna noo ko doon dund waaw te ay réalité cachée la woon mooy tey ñu bari xamuñu la ñuy fekki waaye gis nga loo mënta fekki ëllëg fekk na jaar na ci sa dund ci sa shahada yàlla nag moo koy déplier ba nga xam ni soo demee ba barza da ngay gisaat loolu mel ni yaa ko doon dund nii waaw ndax yàlla dafa bëgg lu mu la teg nga xam ni yow yaa ko teg sa bopp waaw yàlla dafa bëgg lu mu la teg nga xam ni yaa teg sa bopp te lu jar a bàyyi xel waaw mas naa leen koy nettali ngeen ci bàyyi xel waaw ma ni gisoon naa borom mbooloo boo xam ni danu ko defaral shérif la sax moom lañ ko tuddee nu defaral ko lu nekk. defaral ko xabru bu rafet waaw ca armeelu corniche yële waaw ma romb ko ña ngi ko teg benn côté rek waaw xabru ba ñu ko defaral fii ca bàmmeel ba boo demoon da nga naan kay kii euh, dépensé nañ ci minimum xanaa cinq cent mille waaw ma romb ña ngi ko teg benn côté waaw mayuñu ko mu wax mayuñu ko mu tëdd ci lal mayuñu ko péex mi dugg ci bàmmeel te xàq bi nga xam ni mooy principal xàq bi ñu koy toppee soo ko doon natt suñu xaalis trois cent francs la yoo xam ni taalibeem la ko laaj taalibe bi dem lebi ku ñëw jox ko toppatootul sax lu ci des waaw xam nga am na ñoo xam ne bu ñu soxloo dara ci kilifa bu ñu nee taali dañuy téléphone taalibee bi yónnee ma nga yónnee euh, après seen yoon nekku ci dul sax laaj ndax danga nga ko leb foo ko jëlee. su ñu laajee sax da ngay dégg ñu ni noo taalibe bi warul laaj ma ni xanaa taalibe bi amul làmmiñ ak euh, xel ak xalaat ba war laaj waaw waaw yooyu mu jàngale na may gis nga ma daf koy jàngale euh, am ñu ciy profité waaw waaw ay mbooloo nit suñu nekkee loolu yonti ba nit ñi dañuy xalaat di laaj di wax di répondre ay questions di demander di di tontu waaw 300 francs yi remboursé wu ko taalibe bi 300 francs ba mu daj ci lu nekk. xam naa kam que laajoon boobu ba moytul nee na ko sàcc nga kaak nangam nangam te ruus na ko wax ni ko sama sëriñ a ko doon laaj rek am lu muy jëndi ma jox ko ma fekk ko fa ñu ni su ko fayul su ko fayul barzaq bañ ko war a yóbbu kenn du ko fa yóbbu bor lañ koy jàppe te bu doon fii bor bu tuuti la waaye tuutiwul ci ñoom ma romb ko def ay paa dem ba yàgg maa ngi di sama wérd ma xaw ko yërëm ndax kooku bi muy génn àdduna mag la il a quatre-vingt-six bi muy génn àdduna ma xam ni it su xamoon lii moo ko ciy fekk du ko defee noonu ndax lañ ko defaral nee naa la boo xoolee ba mel ba su ma la fa yóbboon léegi daal di ma lii def nañ ci 500000 ma dellu si laaj nan la koy faye ñu ne ah xanaa mu nu nu nu wutal ko yiw mu bàyyil ko fi mu bàyyil ko fi que mu jëloon 300 kooku su ñëwee moom bu ñu ko joxee lool loolu dana fay bor ma jàngal ko benn salaatul fatiha waaw. waaye salaatul fatiha boobu defe naa bu ñu ko solee foofu waxuma la kooku mais dama ragal même ki ko mësoon a yoreel sax danañ ko ci fay waaw kenn xamul nuyu ba toll waaw ma génn ni lii tax Cheikh El Hadji nag daan wax ni salaatul fatiha nee na moom mooy li nga xam ni moom rek la yëg ni mën na gaaranti nit ci métit bu mu mënta nekk ca barsax waaw waaw daf ko daan wax moom Cheikh El Hadji waaw dafa daan wax moytu leen barsax waaraate nii la mel nii la mel ñu ni ko waaw góor gi. Ceerno lañu ko daan wax ni ko lan moo fa mën a dimbali nit mu ne ah, salaatul faatihi waaw mu ni salaatul faatihi moom mën na fa xettali doomu aadama waaye wax na dëkk waaye pour wax la ni loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu ci doon insister mais lu mel noonu moo tax waaw ndax moom yonent bi dafa demoon ba lépp lu mu gis ni lii erreur lay juri ci biir société musulmane mu fexe xool nan la ñuy fexe ba loolu buñ ci dugg waaye ba loolu aussi ñu fa ñu moytu ko waaw gis nga moo tax bis bi benn mbokk ñëwee ci moom ni ko dafa am lu mu dégg ci benn waxtaan ñëw ci yonent bi ni ko dafa am benn waxtaan bu ma dégg yonent bi xam nga lan la ko njëkk laaj mbaa yëdduwoo waaw mbaa yëdduwoo dama am lu ma dégg ci waxtaan waxagu ko lu ñu doon waxtaanee de dafa ni ko mbaa yëdduwoo mbokk mi ni ko ah dama dox ba yàgg dégg mu ni ko ñoo mu ni ko déedéet yonent bi ni ko xam nga bàkkaar bu nekk ci yëddu mu ni ko déedéet mu ni ko ñiy yëddu ëllëg bu ñu génnee àdduna mu ni ko xal la ni jël xalu safara dugal ko seen nopp xal bi di dem di dem ba seey ci biir keroog mbokk mi mu ko wax mbokk mi dafa tiit ba wax ko la mu dékk <laughs> noonu la demee ndax dafa yëddu waaw yonent bi nag woo ko dalal xelam waaw yonent bi dalal xelam ni ko nag loolu waxtaanu saxaaba yi la waaw waxtaanu saxaaba yi la waaye yëddu baaxul te xam nga li moom la mu dégg ba yonent bi ni ko mbaa yëdd woo alxuraan la rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni la déggoon gaa ñi di xool loolu dëgg-dëgg ban dégg-dégg lan ca war a am au lieu mu participer ca waxtaan ba mu ñëw taf noppam ci sàkket bi déglu leen déglu leen ba déggul kenn ko mu daw ni daf koy wax yonent bi su ko yonent bi firilee la bëggoon mu dellu si mel ni ku ko déggul ñëw wax ko pour ñun dafa am xam-xam yonent bi laaj ko mbaa yëddu woo ndax dafa ne su ma feeñoo sahaaba yi eh, dañuy xam ni dégg naa ko léegi dafa bëggoon dem wax ko yonent bi su boobaa yonent bi wax ko rabbul mashriqayni wa rabbul maghribeyni nii lañ koy attee lii mooy tekki ba nii la tëdde su dellu see mu ñëw nag indiwaat débat ba daal di wax nii nàngam ak nàngam la waaw moom pouvoir la ci doonul waaye mu wax rek yonent bi ni ko mbaa yëdduwoo waaw mu ne dégg naa leen yonent bi ni ko yëddu ñu koy def ni ko xal la ni dugal ci seen nopp waaw ba mu seey waaw mu mujj tiit kon de maa ngi dem <laughs> yonent bi ne nag loolu waxtaanu waxtaanu alxuraan la ni ko waxtaanu saxaaba yi la waaw waaye nag ni ko nag soo agsee ci mbooloo na nga nuyoo ba noppi nga toog déglu leen bu nu waxee loo xam ni mën nga ci joxe sa xalaat nga jox ci sa xalaat boo ci mënul joxe sa xalaat nga maandu soo ko mënul nga ñëw laaj ma waaw mu ni ko waaye kenn du taf sa nopp nag di déglu ci lu luñ la boolewul waaw pour wax la ni yooyu yonent bi doon jàngale mais yooyu la ñuy dund léegi yooyu la dund léegi te gis nga euh, xam nga lu tax ma soulever waat enseignement yonent bi léegi defe naa ni néeg yi ni ñu ko defaree sax ak euh, ni ñu ko karoo porte yi xew léegi ragal naa ni boo doon yëddu ba suba sax ba moytul doo dégg dara lu nit ñi di wax mais dafa am beneen façon bu ñu koy jaare mooy dafa am paramètre yoo xam ni da ngay gis léegi nit ñi ci kër dañ koy utiliser euh, def ko seen portable message boo jot balaa nga koy liir ñoom ñu jot ko waaw yëddu la c'est très dangereux te am na ñoo xam ne dañ koy def waaw am na ñii dañ koy def seen portable soxna bu nelawee yëgu ko ñii def ko seen portable borom kër bu nelawee yëgu ko waaw nga xam ni message boo jot ñoom dañ koy jot waaw nga gis dañ koy liir waaw loolu la envoyé ñu liir ko ñoom waaw te loolu yëddu la boo ko yëgalee moom bu ko nangoo dara nekku ci waaye soo ko waxul di ko def loolu yëddu la loolu kenn du ko def. loolu yëddu la wala bàyyi ba nit kii nga gé jël kotam euh, mémoriser ko dindi di déglu ay message am loolu loolu yëddu la ah. maanaam nouvelle technologie bi moo indi yeneen façon yëddu yoo xam ne moog bi yonent bi doon wax presque benn la waaw moo tax yooyu dañ koy éviter waaw yooyu dañ koy éviter lu am solo la waaw ndax boo ne yëddu rek nit ñi ni li yonent bi doon jàngale dëgg la waaye yëddu yooyu amul alors que nouvelle technologie bi def na léegi yu mel noonu am ba ci ay logiciel espion yoo xam ne am na bu la neexee fii message yëpp ngay jotandoo yi ñu jot fii te yaa ngi topp waaw te nekkul loo xam ne lu jafe la sax ba ñu la koy jàngal ci nouvelle technologie gi yëpp ndax bari na lu nit di wut fekk mi ngi ci biir portable waaw li may wax toujours rek ni ñu lay jaay crédit nga dem jëndi ko alors que crédit mi ngi ci sa yow te koo wax crédit bi ngi sa mu xool ni man zéro franc moo ci nekk nga ni ko mi ngi ci puce bi pourtant waaw mais li nu def ba doo ko gis moo tax buñ la jaay 1000 francs nga gis 1000 francs ci nekk. nouvelle technologie indiwaat na ci façon bu bees waaw te façon bu bees boobu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa mais loolu amul woon mais yonent bi melokaan bi mu daan jàngale ak sagesse bi islam daan jàngale ba léegi loolu mooy dox waaw mais léegi dañ ko jële ci beneen option looloo tax Ababacar bi mu nekkee amirul muminin discours bi mu njëkk tenir ak musulman yi daf leen wax ni ñaar moo ñu tënk bu leen xool rek ne Ababacar moo fi remplacé yonent bi yonent bi dem na mu ni yonent bi dem na waaye sorewuñu waaw ñu ni ko lu tax boobu waxul woon sax waxi baatin wala waxi xaqiqa wala waxi euh, fatxu waaye wax jim doon wax mooy nee na ba léegi dafa ni leen bu nu waxee laa ilaha illallah luñ ciy te ñu ni ko muhammadu rasulullah mu ni moo kon ñu ngi dëggal mission ba léegi mu ni buñ nee huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa diinil haq li yuzirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahida lan nan cay teg ñu ni muhammadu rasulullah ñu ni kon ba léegi ñu ngi dëggal mission mu ni kon yonent bi dem na waaye jege nañu kon bu kenn xool rek ni Ababacar moo fi nekk yonent bi dem mu ni ñaar moo nu liyee li nu liyee mooy li nu yàlla santoon bi yonent bi di dund ba nii yonent bi làqoo moom la nu yàlla sant ba léegi wàññiwu ci dara beneen bi mu ni cohésion bi jullit yi amoon bi yonent bi di dund ci kanamam du woon ngistal ñu ni ko du woon ngistal mu ni nan ko continuer waaw loolu moo taxoon xilaafaam moom am stabilité waaw moom Ababacar loolu moo taxoon xilaafaam am stabilité parce que loolu mu wax kuñ ko wax bu fekkente ni nit kese nga di nga xam dëgg-dëgg ni kii lam lay wax mooy nañu ànd niñ daan ànd ci jamono yonent bi nañu ànd niñ daan ànd ci jamono yonent bi te Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif nee na looloo tax muy bëgg malaan yi ñuy dend muy malaanu wadifa malaan yi ñuy dend muy malaanu xadara nee na moo tax muy bëgg nit ñi bu ñu dendee benn ind du dox seen diggante ndax mook sàppe bu ñu taxaw di julli benn la waaw waaw dend boobu ñuy dend mbagg ak mbagg nee na moo tax loolu la mu ca jublu mooy benn ind bañ dox seen diggante xam nga loo tax nanguwul moom Cheikh nga ñëw ci malaanu wasifa fekk mu des place ba noppi nga toog ci gannaaw moo tax nanguwu ko pourtant dara nekku ci parce que bu fekkee milieu bi milieu Muhammad la xadara Muhammad yi ñëpp xam nañ ni espace bu réduire ak espace bu yaatu mooy am ci ñoom fu ñu ñëw daañu leeral ñëpp mais lu tax kon nanguwul bu ñuy wasifa malaan ba des place yow nga ñëw toog sa gannaaw toogo ci sàppe bi parce que dafa bëgg cohésion bi Ababacar doon wax jullit yi amoon ko ci kanamu yonent bi mais ñu continuer di ko am cohésion boobu lay liggéey ci société musulmane waaw ndax ne woon na su demee ba dañ rek lépp dañ na waaw ne woon na su cohésion bi demee ba dañ lépp dañ na waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daf ko gëm waaw dafa gëm li muy wax waaw waxuma sax yàlla li mu ko wax rek wa maa yantixu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waaye moom la muy wax dangay gis ni daf ko gëm waaw moo tax ñi ñi daan wax ñëpp naan euh, nu mu mënee xëy rek tey euh, yàlla yónni ko wax ko lu ñu lum ñu waxul ñun waxuñu ko suñu ay maam waaw mën ñu xamal yàlla bu bees ku ci dem ni li ma jaaxal ci moom conviction bi muy waxee da ngay xam ni li muy wax réalité la doonte maîtriser woo waaw parce que dëgg dafay ànd conviction waaw dëgg dafay ànd conviction te yonent bi conviction bi mu doon waxee. ñoom dem nañu ba ni boo ko xoolee rek xam ni dëgg-dëgg même boo maîtriser wul lu muy wax yàlla moo ko yónni waaw yàlla moo ko yónnee waaw su ko defee nag nit moom li mu am mooy yaakaar waaw nit li mu am mooy yaakaar te yaakaar dafa fort ci moom waaye nag gis nga looy yaakaar yaakaar na nga xam ni yàlla ci réalité existentielle yi ci lay créer lu ko neex waaye aussi ci lay génnee lu ko neex. moo tax foofu ñu ni ki ñaan amu fa place waaw ci réalité existentielle yi ci lay créer lu ko neex waaye ci lay génnee lu ko neex waaw te ñoom ñoom dañoo fonk dañoo fonk ñoom réalité existentielle yi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dañ ko fonk waaw malaayika yi dañ koy bàyyi xel waaw yeneen mbindeef yi dañ koy bàyyi xel waaw règne animal daf koy bàyyi xel règne végétal dañ koy bàyyi xel dañuy bàyyi xel juddu yonent bi ba yow sax da ngay defe ni li nga ci def lu xeebu la ci ñoom lañ ciy daj waaw lu xeebu la ci ci ci ci ci ñoom liñ ciy daj waaw xadaratu ilaahi yële passé waxoon naa leen ko bi weeram feeñee la ñu def keroog jël pipiitur teg ko waaw tànn ñetti mag ku ci nekk ñu ni la jëlal ay baat wax ñu dégg waaw ndax bare na lu ngeen waxte kenn déggu ko seen pupitre yooyu nga xam ni yamulug yii ñuy defee fii conférence de presse ndax ñoom seen pupitre yooyu dañ koy lem comme basang suñu paree dañ koy déplier mu taxaw waaw te fii mës nga gis ku mën a jël ay bois léegi lem ko comme basang ni gàddu ko di dem déplier ko mu taxaw normal waaw waxuma bois bu mees de ba nga ni noo am na ñu defar bois yooyu yu yu dëgër comme yii te yamul ak yi waaw ñu taxaw ca ndeysaan ak seeni euh, lumière wax waaw wax ci yonent bi waaw shahada dañuy seede wax ci yonent bi te li ñuy wax yépp ci xaalu yonent bi lañ koy waxe waaw ndax kenn ñemewul wax ci yonent bi mu toog te waxoo ci xaalam waaw waaw wax ci aada kooku yonent bi du ko dégg waaw yonent bi du ko dégg mu ko xaqiiqa rek lay nangu dégg waaw ñu jàng lañu jàng salaatul faatiha waaw wax ca lañu nañu déggee salaatul faatiha la ñu tëgg ñoom ci salaatul faatiha waaw yonent bi bég ci ñu ni loolu kàddu la ci anniversaire am moo tax bu ñu déggee ku wax ni euh, kenn du célébrer anniversaire am dañuy xam ni li la dese moo bare waaw waaw li la dese moo bare te kat léeg li nga dégg ku ni du ñu célébrer anniversaire am te moom bu anniversaire am jotee dafay dem jëndi gâteau waaw woo soxnaam lu tax sama anniversaire bi tey yëgu leen ko reer bi du ngeen ko changé def lii def lii ba pare bu jógee nii euh, bu nu célébrer anniversaire yent yi ma ni yow yaa ngi bëgg doon égoïste waaw ak ni nga sonnee ci sa anniversaire yow. yonent bi anniversaire am yëpp koor la ko daan célébrer waaw mooy woor bi ñu miin ci moom mu koy woor altine waaw Cheikh El Hadj dem na ba altine bésam ba la ko tudde da ngay dégg buy way ni ca bésam ba bu nee ba rek nga xam ne altine lay wax waaw waaw bésam ba rek nga xam ni altine lay wax waaw pour wax la ni cadre boobu mais mooy cadre bi nga xam ni moom ci la daan yar ñëpp waaw moom yonent bi ci cadre boobu ci la daan yar ñëpp ñu mu am. ñi mu daan dajale ñépp ci la leen daan yar daf leen daan wax ni bu leen nangu ëllëg yéen ngeen tudd ni sama xeet ngeen ba noppi ngeen taxaw yeneen xeet gën leen waaw yonent bi daf leen ko daan wax kan la ko daan wax jullit yi parce que ñoom ñoo war a véhiculer message moo tax ndeysaan bis bi ko Ousmane ne euh, Seydina Ousmane ndeysaan ci mbaaxam ak ci kerseem gu bare ku bare woon kerse la waaw ku bare woon kersa la bis bi mu nekk euh, sa xeet moom benn xeet mënu leen gën waaw yonent bi daf ko laaj ni ko foo ko teg mu ni ko ndax yaay yonent bi waaw waaye yonent bi it ku baax la gis nga bi ko Ousmane ne bi dafa ni ko Yuusuf nag waaw yonent la baayam yonent la maamam yonent la waaw kooku nag waaw seetal mu tudd Yuusuf te Yuusuf ci barkeem la amee nubuwa waaye mu ni ko Yuusuf nag ah mu ni naw naa ko de moom yonent la baayam yonent maamam yonent waaw pourtant mi ngi bëgg fàttaloo foofu Ousmane ni ko bul xool rek cadre yonent nga tax sa xeeta fi war a gën nag dellu ni ko yow yow ma ci cadre yonent waaye yaa gën gën Yuusuf yaa gën ñi nga wax ni yonent la ñu di baayam yaa gën ñi nga wax ni yonent lañu di maamam yow la yàlla gënal yow la jiital ba noppi soog a indi ñooñ mu soog a ni ko loolu de mën naa ko nangu ndax dogalu yàlla waaye bu mu yam rek ci cadre nubuwa ndax bu dee loolu Yuusuf am na ko am na ci ndono am na ci ndono ak beneen ndono waaw seetal loolu waaw te dëgg la ñépp ni boobu dafa bëggoon wane wane euh, moom même ay nawleem yi nga xam ni sax xam na ni moom moo leen gën cër bi mu leen jox waaw xoola tagg boobu mu tagg Yuusuf waaw xoola tagg boobu mu tagg Yuusuf waaw te du ci Yuusuf rek wax na ko ko wax na ko Isaa ibnu Maryam ca tagg ba wax na ko Muusaa ca taxawaay wax na ko noox ca coono bi mu daj alfa sanatin ila hamsina waaw neuf cent cinquante ans mu wax ni ku daj loolu ci mission waaw fekk boobu buñ ne ko mission bi metti na rek mu ni bu noox nag waaw bu yeneent yàlla noox nag waaw te saxaaba yi dañ ko daan yërëm ndeysaan waaw dañ ko daan yërëm ñëw ni ko sa mission metti na de waaw leer nañ ñi ñu ni leeroo waaw kenn mësul gis loolu leer nañ ñu ni leeroo jub ñu ni juboo di wax dëgg ñu ni du dëgg waaw saxaaba yi ni ko ñii ñun xamuñu lu ñu bëgg mu ni ñu ni ko ku xool sa kanam géeg leer nañ nii ñu ni leeroo waaw nga jub ñu ni jubuloo ngay wax dëgg ñu ni du dëgg ñu ni ko ñun dañu xamatul nun waa màkk lu nu bëgg yeneen bi tontuwu leen ni patt rek foofu fekk boobu mi ngi xaar euh, Umar la muy wax ilham nañ ko ko keroog la Umar xaalu ni ko gis nga yow léegi sax màkk ñi ngi fii nekk naan doo yonent ak di wax bëgg nañ waaw bul nekk yonent waaw bul nekk yonent bëgg nañ waaw sa baax dong nañ ko roy sa leer doy nañu sëkk ak sa kàllaama gu waaw dafa ni yonent bi dafa naan ko ëskay Umar waaw yonent bi ni ko Umar mu ni ko waaw mu ni ko déglu ma mission universelle laa yore xam nga lu mu laaj mu ni ko ah mu ni ko wax ñu def tere ñu bàyyi loolu la laaj laajul leneen waaw te boobu ñëpp dañ defoon yent bi day wax Umar noonu la kay moom kay fu mu nekk sax euh, nangu leen loolu rek mu delloo ko encore ci mission lu ko nit wax mu delloo la ci mission waaw te boobu ñoom ñëpp dañu jaaxle ndax dañu ni yonent bi nga gis leeram rek doy na doy war na la doy waaye nga gis leeram ba noppi nga ni mënoo ko nangu waaw yàlla ni sumun bukku mun umu yàlla ni sumun bukku mun umu yoon waaw yàlla yàlla lay neex mu jël xol kaste ko waaw su kastee xol bi xol bi du mën a nangu mukk dëkk kàddu lu mu dëggu dëggu xol bi du ko nangu waaw su sëlëmee bët boo ko doon wan lumière exceptionnelle sax dafa naan gisuma ko waaw waaw boo ko doon wan lumière exceptionnelle ci doomu aadama dafa naan gisuma waaw waaye bu fàttee nopp it nopp bi du nangu waaw fu mu déggee du nangu te loolu moo leen daloon ñoom waaw ñoom boobu loolu moo leen daloon moo tax bu ñu leen ne Muhammad rek ñu ni mënuñu ko accepter ñu ni lu tax ñu ni ndax démb fii la yaroo waaw xam nga sa jaar-jaar itam waaw xam nga sa jaar-jaar jaar-jaar boo xam ni miin nañ la nga yaroo nii nit ñi di la xool nga nekk xale donte jub nga ba ñoom ñëpp di la dénk seen alal waaw waaye ku si nekk mi ngi lay bàyyi xel rek waaw nga dem continuer loolu continuer loolu ba nekk sàmmkat ci seen kanam. continuer ak loolu continuer loolu ba nekk commerçant ci seen kanam nga xëy ñëw ni yàlla ma yónni waaw ñu bëgg ni kon lu tax nga doon jot a nekk sàmm lu tax nga doon jot a nekk commerçant lu tax nga doon jot a nekk xale di remettre en cause yoo xam ni xamuñu ni ci organisation borom bi la bokk waaw ci organisation borom bi la bokk looloo taxoon Seydil Hadji Malick waxoon ni nitu yàlla ay mbokkam ñoo ci mujj jëriñu waaw ñu ni lu tax mu ni bëtu démb lañ koy xoole léeg nga dégg moom diw kan la fi mën nekk wëliyu kii bal bi du màkk jëndaloon bal ba muy xale waaw nga jëndal nit bal ba muy xale daf ko tee doon wëli waaw bu ko neexee mu nekk wëliyu ba noppi sax euh, fekk ma nga ca nawetaan ba di football lu muy wàññi waaw wala kuy wëliyu rek da nga war a dagg garam bu daal di koy sol <laughs> garam bu buy bare ñu dagg ko sol ka de yaa ci yaakaar wëliyu rek de waaye wëliyu sore na ko waaw waaw ndax talu ko sax waaw moo da wax ni. boo moytul mbokkam ñoo ci mujj jëriñu ndax loolu moo leen di bloqué waaw loolu moo leen di bloqué te mën nga jàngal nit mu sut la waaw mën nga jàngal nit mu xam ci loo loo xamul ca la nga ko jàngal waaw fathu yàlla moo koy def ci nit waaw fathu yàlla moo koy def ci nit te yàlla moo xam kañ lay dogal fathuwam ci doomu aadama waaw kañ lay dogal fathuwam ci doomu aadama yàlla moo koy def ci nit waaw yàlla mooy seet nit mu def ci moom fathu yàlla mooy seet nit mu def ci moom fatu lu am solo la waaw te yàlla organiser noonu nag waaw yàlla moo organiser noonu waaw cadre am bu exceptionnel waaw cadre moom yàlla cadre bu exceptionnel la waaw waaw ay réalité am noonu la mel waaw ay réalité moom yàlla noonu la mel waaw loolu xaqiqatu rek a ko mën a àtte waaw xaqiqatu muhammadiya dong moo ko mën a àtte démb rek bi maa ngi ci waxtaan ak ñoom shérif yi ñu ñu ci waxtaan waxtaan bu yaatu ma ni leen bare na ma ni leen bare na lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy wax nit ñi duñu gëstu la pourquoi waaw ma ni ko xam nga waxoon naa leen xale yooyu xale yi ma leen waxoon dañu am seen xadara bopp ma ni waaye ba léegi kenn laajuma lu tax ñu am seen xadara bopp parce que officiellement xadara bi ñu reconnaître mooy xadaratul ilahiyya mooy assemblée céleste bi lu tax xale yële amoon seen xadara bopp ñoom waaw loolu lu jar laaj la waaw xanaa mënuñu ñëw adhéré même bu ñu dee ay borom pouvoir ci assemblée céleste muy xadaratu ilahi waaye ñu ber seen xadara waaw dafa am le pourquoi dafa am le pourquoi te seen ay organisation bopp la ñu amee waaw wax naa leen ko 2011 dama cee xuloog ñoom. 2011 waaw te loolu tey su ma ko bàyyi woon mu jàll nitu yàlla dana ñëw ni euh, gis naa yonent bi nee na dossier nangam ak nangam ndeke dossier ba xale yi jot nañ ca ba noppi liir la ñu war a liir xam la ñu war a xam bind ca lu leen neex jox nitu yàlla waaw te du ko mën a ràññee ndax seen pouvoir àgg na fa ma dajeeg seen benn kilifa ca géej ga maa ngi gàddu sama yat jëm diwaanul xiraa mu ni ma dañu bëgg dossier yeey jóge xadaratul ilaahi léegi balaay fay dem na na jaar fii ci ñun ma ni ko duñ ko nangu waaw mu wax wax ma ni ko duñ ko def mu ni lu tax dossier yi war na mën a jaar ci ñun balaa muy dem fa ma ni ko duñ ko nangu waaw dañoo mujj xuloo ma jaar nii dem mu jaar na dem yoon waaw waaw parce que nanguwu ko ma ni nanguwuma ko te su ma ko nangu woon tey wax naa leen koo démb bu mën leen erreur ba mooy nitu yàlla dana ñëw ni yonant bi nee na ma maa gis dossier ba wan na ma ko ci baatin ndeke ñoom récupéré nañ ko seen xadara xool la leen ca neex xam ca lan xam bind ca lan cay bind bàyyi mu dem waaw te ils sont très organisés waaw ils sont très organisés waaw waaw ils sont très seen seen pouvoir la yàlla moo leen ko may waaw ñii bu ñu amee dix ans nga gis seen fatxu ñi ci gën a yéex fatxu bu nu amee 14 ans am seen fatxu waaw seen pouvoir mystique yañ doon liggéey ca xay bu yépp feeñaat waaw te ba léegi ñi ngi concerté ak ñi ngi concerté seen xadara ñoom ñi ngi waxtaan de nii nitu yàlla yi di waxtaane nii guddi aljuma ca xadaratu ilaahi ñoom ñi ngi si seen xadara di waxtaan de waaw ñi ngi seen xadara di waxtaan di liggéey waaw di liggéey li ñuy liggéey waaw ñi ngi joxante mission ci seen biir ñoom xale yooyu ñu ngi joxante mission seen biir maa la ko wax fii waaw gis nga léeg-léeg nit ñëw nit ñëw bokk ci ñoom fekk euh, am na lu ñu la sasoon nga indaale ko wala lu ñu la waxoon ni war nga ko def defoo ko ñu delloo la pour nga jëliwaat ko waaw te kenn xamu ko waaw ñu ngi jël même yeneen yeneen nit di leen dugal ci biir mbooloo yi mbooloo mi waaw waaye mission bi leen tax a jóg nag waaw mission bi la ñuy liggéeyal de. te te mënoo ko xam ci kanamu kenn maa la ko wax waaw waaw dañoo ame seen yëfi bopp waaw dañu amee seen yëfi bopp wax naa ko ñoom Chérif démb ma ni leen euh, am na ci xale boo xam ni xaw na fi yóbbu benn euh, mbokk fii ci xadara bi barza waaw xaw na ko fi yóbbu barza ci marta ba am rek te xale bu tuuti la de ci marta ba am rek waaw mbokk ma jeexal tàkk keroog na ma def ba euh, ñaanal ko dama ñaan ñu ne ah dossier ba seen xadara la jaar ñoom jaarul xadaratul ilaahi waaw te ma xam ni comme seen xadara dañ leen ko respecteel dama bàyyi ba nax xale bi fekk xale bi fii la ma romb ci zawiya bi yore kurusam ma nax euh, nangu kurusam ñaan ñaanal ci mbokk moomu gudd fan delloo ko kurusam te <laughs> deful woon noonu mbokk ma dem na bu yàgg maa la ko wax waaw dama bàyyi rek mu romb fii kurus di daw ma nax ka ni ko alma sa kurus mu alma ko <laughs> te bu ma amul woon kurusam du ma mën dara ci loolu ndax dossier bokkuñu fi ñuy jaar waaw ma ñaanal ko ci kurusam ñaanal mbokk moom gudd fan delloo ko kurusam mu dem yoon waaw te mi ngi foo de waaw pour wax li nii yàlla lu nekk def na ko waaw waaw yàlla lu nekk def na ko waaw moo tax booy dund fii booy dund fii <laughs> phénomène yi xew fii sax ñiy dund fii maîtriser wuñ ko rawatina fële waaw waaw seetal loolu. te ñu ngi fii nga leen di dégg ak Seydi Cheikh nangam ak Seydi Cheikh nangam ak fii la jaar ak kii dellu nag kii ñëw nag waaw moytu leen de waaw waaw 2008 laa ko waxoon waa Medina Cheikh bi mën nan ma seede 2008 laa ko waxoon boobu yéen ñëpp togg leen fi waaw 2008 laa ko waxoon waa Medina Cheikh bii nekkoon fi démb mën nan ma seede waxuma ko léegi de 2008 laa ko waxoon waaw te boobu yéen ñëpp nekku leen fi waaw te boobu kenn fi nekk yàggul keneen judduwaat en 2008 laa ko laa ko waxoon. ñi ñi ñi ñi yàgg ci xadara bi yëpp mën nañ la seede ni waxoon na ko 2008 de te ci conférence it laa ko waxoon dégg leen fii Seydi May Seydi May moytu leen waaw waaw laale leen bant bu gudd de ni ko nit ñi di wax parce que li ñuy waxtaane guddi seen baay xamu si dara waaw même seen baay bu ne maîtriser na ko dafa bëgg cër rek waaye am na lu maîtriser wu waaw <laughs> mën nga bëgg cër nag ni maîtriser naa ko waaye du noon de dossiers yi bokk fi ñuy jaar. mës nga gis xale yu bokkul dëkk te ba léegi ñu ngi waxtaan ba léegi ñu ngi organiser wu waaw te kenn ci ñoom du xëy ni la euh, nangam ak nangam waaw ku la ko wax sax doo xam lu mu wax waaw yàlla lu nekk moo koy def waaw yàlla lu nekk moo koy def waaw su ko defee seen baay mën na xëy suba yor kursam maay diw maay euh, gis diw fekk xale bi li bu gis boo ko gisoon biig doo wax sax waaw waaw te kenn du ko xam waaw kenn du ko xam tànk at bi mu waree feeñee ci ñoom jotul. te ñu organiser leen 2008 laa ko waxoon du léegi laa koy soogay wax te liñ doon ñaan su ma leen ko joxoon tey bari na kuy dem xadara ba dellu si ni yont bi nee na ma ci kayit nàngam juum ga waaw waaw ndax yàlla may na leen pouvoir ñu mën liir la ñuy liir bind ca leneen te doo ko xam te yont bi moo leen may cër boobu di waaw les aristocrates du ciel bu ñu ko waxee waaw les enfants gâtés du ciel bu ñu ko waxee seen organisation tax seen organisation tax ma ni la ci martabaam xale bu tuuti boobu xaw na yóbbu ko barzak maal ko waaw dama ci ñaan ñu ni ma seen dossier kat dossier principal la seen xadara ma ni xam naa nu may def ndax man xam naa seen euh, plan man waaw romb ma yor kurus ma ne nga alma sa kurus ki mu gaawantu alma ko ma ñaanal ci mbokk ma gudd fan delloo ko kurusam jeex na <laughs> dafa mel na moom moo ko ka ñaanal la waaw waaw pour wax la ni léeg-léeg nga jur doom te doo xam sa doom waaw te doo xam sa doom sa xel dal ci ñoom gis nga ñoom am nañu protection de waaw waaw kaay ma yóbbu la fii ñu kii la ñaanal laag ndax wóorul ak yooyu yëpp coono la am na ñu protection bu leen doy sëkk waaw waaw moo tax di simisee ci seen biir sax naan war nañ def nii war wóorul sax waaw na nga leen gisee daal la nga ca mën defal bu yar jotee yar bu wax jotee waxal bu jàng jotee jàngal waaw mais na la leer nag ka leen di jàngal daan ko jàngal waaw bu ñu ko waree jàngal daañ ko jàngal loolu moom na la leer. waaw jàngal leen nag waaw waaye bëgg si nekk nag mel ni yow yaa koy defar abadan ah defal li nga mën li ci des nga bàyyi ko ci loxo yàlla waaw parce que yàlla mooy organiser noonu waaw ñu ciy waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan lu yaatu waaw waaw yàlla mooy organiser noonu waaw loolu loolu loolu wàllu borom bi la waaw loolu wàllu borom bi la waaw ma di leen ko tooñu ñoom di leen ko wax naan leen di si vingt ans rek ma ne leen damay jël benn. Euh, pilien rek ma ni leen daal di teg fii euh, jaaxaan yor sama kurus ni xaaral ma noppalu tuuti ma ni leen ndax lu ñu réglé woon xale yi dañ ma ko réglé waaw lu ñu réglé woon xale yi daañ ko réglé te gis naa bu bare mag ñu bari ñëw di kalaame naan gis nga xale yi léegi ñoo fi nekkoon di wax ma ne ah xale yi de seen pouvoir la ñu yore waaw waaw ma ni xale yi de ku leen moytuwul daañu làqoog yow ci néeg wan la loo xam ne boo génnee dootoo wax waaw ni Aliou Harazim daan def rek <laughs> ku bëgg contester pouvoir Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani waaw mu làqoog yow ci baatin wan la safara soo xam ne bu la ci dugalee su boobaa daa wax lépp ba mu des desiti lu jëm ci Cheikh waaw soo dellu see rek noppi ñu laaj lan la lan la doo wax ndekete biig Aliou Harazim nga nga fanaane gis waaw yooyu yàgg na am ci xadara Tijaniya waaw yàgg na am ci xadara Tijaniya te lumière moo ko ëmb waaw yàgg na am ci xadara Tijaniya te lumière moo ko ëmb moo tax yàlla ku nekk lay may waaw yàlla ku nekk lay may looloo tax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni koo gis rek bul xam li yàlla def ci moom waaw waaw bul xam li yàlla def ci moom waaw te dencu yàlla bi gën a rëy dencu yàlla bi gën a rëy mooy jigéen mooy dencu yàlla bi gën a rëy waaw waaw gis nga ko toll noonu rek nga mën ko ëmb ci sa biir waaw mu am fa neuf mois mu judd nga continuer di ko nàmpal di ko boot ku toll noonu. ku toll noonu waaw nga xam ni xayb ak shahada du dara ci ñoom waaw seetal loolu waaw seetal loolu Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani boo demee en Irak da ngay dégg mu am surnom bu ñu ko tuddee la faucon waaw benn picc bu noir waaw te moo ko révélé waaw ndax moo mës a toog ba yàgg mu ni yaayam ni ko mësoo di xëy di dem ci benn teen ay agresseur naan dañu lay dogale ci teen bi ca àllu Bagdad yaayam ni ko yow loolu noo ko xamee ba may xale bu tuuti la. mu ni ko xanaa xamu picc bi génnoon dàq leen man la waaw waaw seetal loolu ci nitu yàlla wax ko te xut bu zamaan la waaw mu ni ko xanaa xamu picc bi génn dàq leen man la nu tuddee ko loo fa ko waaw seetal loolu waaw te xut bu zamaan la waaw moo tax ñu mel noonu nga di leen am ci kër yàlla mën na denc waaw yàlla mën na denc waaw looloo tax nag ñuy wax ni euh, jigéen ñi itam ñu xam seen bopp waaw ñu xam seen bopp xam ni xam ni yàlla ci ñoom lay denc waaw su ko defee ñu xam seen bopp waaw lii tubaab yi yëpp di leen bëgg wax waxloo di leen bëgg euh, defloo ñu ñu bañ ko waaw te ñu xam seen bopp ndax yàlla ci ñoom lay denc te loolu lu am solo la waaw mais yàlla moom bu bëggee denc moom seetul euh, kii nii la mel keenee la mel moom daal dencam fa mu ko soob noonu la koy defee waaw dencam fa mu ko soob noonu la koy defee waaw su ko defee nga bàyyi ci xel. nga bàyyi ci xel lu am solo la waaw nga bàyyi ci xel lu am solo la waaw te it jigéen dina tollu foo xam ni dina ëmb doom boo xam ni moom jigéen ji soo ko fitnaalee yow maanaam moom martabaam du la dal martaba doomam ba mu ëmb mën na la dal waaw man loolu gis naa ko lu dul benn du ñaar waaw moo tax di leen ko moytu waaw looloo tax mag ñi daan wax ni eh, soxna bu tolloo diggante nee nañu da ngay nekk rek xaritam waaw nekk xaritam nee na di waxtaan ak moom waaw yu bare nga bàyyi ko. parce que léeg ñu ëmb doom joo xam ni ñoom seen martaba bu la dalul martaba doom ji mën na la dal waaw waaw te lu bari nag lu bari nag mi ngi xew te yu mel noonu moo koy indi waaw yu bare mi ngi xew yu mel noonu moo koy indi di ci bàyyi xel farata la waaw waaw di ci bàyyi xel farata la de waaw zaman bu nekk dama koy fàttali waaw bare na góor yoo xam ne yaa ngi gis tey jii ñi ngi sonn ñi ngi wër mënuñu am dara lu nu am mu yàqu fu nu dugg mu yàqu fekk seen xolu soxna dafa tàng ci ñoom waaw moo tax mënuñu am dara waaw su ko defee ñuy ñaan lu fekk ñaan du ko faj waaw bari na de dama gis ñu mu dal ñu dul benn du ñaar ñu nekk fii di ñaan ak naan ñaanal maag di wax fekk ki leen war a ñaanal ma nga ci kër ga toog di togg añ mais demuñu mu ñaanal la waaw dëgg la parce que xàq baaxul xàq baaxul waaw xàq baaxul wor baaxul waaw lu jar di moytu la waaw moo tax nag di ci def attention lu am solo la waaw nañ ciy def attention waaw xàq baaxul war baaxul te xàq bi ci gën a grave mooy xàq ki nga dëkkal baaxul waaw gis nga ñu ne xàq dëkkandoo yonent bi ñaata yoon la ko jàngale du dañ ni yonent bi dafa woo saxaaba yi di leen jàngal xàq dëkkandoo ba ñu defe ni sax dëkkandoo boo deewee daf lay doon léegi bu yonent bi dee wax dëkkandoo maanaam kër gi dend ak yow lay wax yow ki nga dëkkal la njëkk wax lu tax loolu jàngalekat yi duñ ci insiste lu tax du duñu insiste ni yonent bi bi muy jàngale xàq dëkkandoo ki nga dëkkal nekk ak moom ci kër gi la njëkk wax mais da ngay dégg rek nu ni la mi ngi wax àq dëkkandoo ba ñu defee ni sax dëkkandoo day doon di xalaat keneen waaw ki nga dëkkal la njëkk wax mooy sa dëkkandoo balaa keneen di wax xam nga bee yaa ngi naan yonent bi dafa jàngale àq dëkkandoo ba ñu defee ni dëkkandoo day doon waaye yow sax ki nga dëkkal sax euh, yow sax kooku mën na doon kon di def attention lu am solo la waaw di ci def attention lu am solo la waaw ndax loolu rek la jamono laaj waaw loolu la jamono laaj mooy nit ñi delluwaat ci source bi. waaw nit ñi delluwaat ci source bi jigéen yi itam ñoom ñuy ñaan am doom yu baax waaw te boo bëggee doom yu baax dangay ngay fexe tarbiyu sa borom kër waaw da ngay fexe tarbiyu sa borom kër pour am doom yu baax waaw waaw loolu dara nekku ci yàlla daf la koy fay amul benn jigéen buy tarbiyu borom këram ba noppi ñu ni yàlla fayu ko dara noonu la mujje tumranke yàlla dina la may doom joo xam ni dana seral sa xol waaw lu am solo la waaw loolu lu am solo la. waaw na ma jaaxal nag ndax bu ma waxee jigéen ñi ñu góor ñi jigéen ñi tàcc waxee góor ñi ñoom tam ñu tàcc waaw ma cohabitation bi moo amagul ba léegi walla ndax doy na waar waaye benn la nag benn la ndax kër yi ñoo ko bokk waaw kër yi ñoo ko bokk su ko defee yooy it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale waaw loolu ñun dañ ci jaaraat rek waaye jàngale yonent bi la waaw ndax bu dee guddeem enseignement am rek la ñu véhiculer te yooyu moom moo ko jàngale moom moo ko dénkaane waaw moom moo ko jàngale moom moo ko dénkaane waaw su ko defee mag ñi it ñoom li nu mën mooy ñu topp ci ginnaaw xale yi di leen jàppale waaw mag ñi loolu la ñu mën waaw ñu topp ci ginnaaw xale yi di leen dimbali waaw seen doom yi ñu nu indi ci kër yi ngeen di leen jàppale di leen dimbali xam ne ay doomu jàmbur lañ mag ñi loolu la mën waaw di leen xelal xel bu rafet waaw ndax loolu mooy am pour entente mën am te yonent bi nee na balaa famille benn balaa benn famille di mën a suudewu nee na foog famille bi am base ba noppi am entente ñu laaj ko luy entente bi mooy kenn ku nekk def sacrifice bàyyi dara pour dara mën am ñu ni ko luy base bi mu ni mooy ñu am imaan waaw ndax yonent bi nee na ki gëmul yàlla nag kooku kenn mënu ko gidde waaw nee na ki gëmul yàlla moom kenn mënu ko gidde ci siraatal mustaqim waaw mu ni moo tax gëm yàlla mooy bi jiitu su amee ba noppi nag nee na leneen luy ñëwaat soogay ñëw waaw te it bu ñu waxee xam ni euh, fii jeunesse bi moo fi ne. xam ni jeunesse bi aussi mooy base fondamentale religion islamique waaw léegi nag pour éducation bi ñuy wax yëpp am ba crise yi ñuy xeex yëpp crise ya dem ba jeex wala mu wàññeeku mais foog ñu defar kër yi ba pare sànq yéen a ngi laaj ci cadre immigration clandestine gaal yeeg manque d'éducation bi ci réew meeg yooyu mais yooyu yëpp pour ñu defar ko il faut ñu jiitu il faut ñu jiitu ci kër yi ba noppi waaw parce que ñoo ñëpp kenn ku ci nekk ci kër yi la ñu génne. su boobaa ñu defar ko waaw su boobaa ñu defar ko waaw te defar bi yépp nag yërmande rek lay àndal waaw yërmande rek lay àndal waaw yërmande lay àndal ndax yërmande ci la lépp mën a mën a mën a mën a amee solo waaw yërmande su amul dara du am waaw yërmande ci lay moom lay àndal waaw nga am yërmande say euh, soxna am yërmande ci yow yow it nga am yërmande ci ñoom waaw su ko defee yàlla mën a defar lépp waaw ndax mooy sunu sens. sunu sens mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ëllëg ñu présenté wu ci kanamam mu nekk xeet boo xam ni xeet bu mu gërëm la waaw ndax moom yàlla gërëm na ko ba pare ñun ñooy wun gërëm léegi waaw yonent bi yàlla gërëm na ko ba pare yàlla nee na ko sax yow amoo défaut yàlla moo ko wax wa laa la ala xuluqin adim waaw yàlla nee na ko yow amoo défaut waaw parce que yow qualité yëpp jukko yu rafet yëpp incarné nga ko su ko defee nag ñun ñun ñooy xool nan na ni royee ay qualité waaye duñ ci yam aussi ñu xool nan na ni euh, jànge ay ensegnement am waaw mais enseignement yi mu jàngal li yépp base bi loolu kese la waaw mooy yàlla jàngal na ko sagesse yàlla jàngal na ko mu nekk ku humble moom yonent bi waaye yàlla jàngal na ko mu nekk koo xam ni ku dal la waaw surtout ci wàllu dal bi surtout ci wàllu dal bi gis nga Umar nee na yonent bi bis bi ma yégee ni bis bi ma yégee ni mooy sa dal kenn mënu ko dab mooy bis bi la yàlla waxee ni la demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan mu déglu la mës nga gis ko alxuraan wàcc ci moom ñu ni ko demal ci diw nga jàng alxuraan mu déglu la waaw yàlla ko wax yonent bi ni ko demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan mu déglu la waaw te alxuraan wàcc ci moom kooku ku dalul kenn du ko wax loolu kooku ku dalul kenn kenn du ko wax loolu waaw ngi mel ni nga nekk chefu nit ci entreprise walla dara xëy rek nu la demal ci euh, sa apprenti ba ca entreprise bi nga nga wax ko sa sa sa sa dépense yeeg wan que sa reçu yeeg wan que lépp boo ko waxee nit fii Sénégal lu mu lay njëkk laaj yow est-ce xam nga man maay diriger entreprise walla moom moo koy diriger. est-ce que xam nga man maa koy diriger wala moom moo koy diriger te gis nga loolu moo nu tardé waaw parce que gis nga entreprise dëgg balaa muy avancer dépense bi directeur bi def dépense am reçu yeeg la mu jël yépp mu dem présenter ko comptable bi mu wàññi benn par benn xool ni lii la contrôleur yi xool ñu ni la donte moo leen yilif waaw mais fii directeur bi kenn du ko sax ñeme woo téléphone pour mu ñëw wane loolu parce que kon bu ñëwee sax mu dàqal. wala mun de toutes les façons def naa samay dépense c'est comme ça waaw c'est comme ça te keneen ku def dépense ñun ni nañ ko xool waaw li nekk ci entreprise yi kenn xamul lan la ba noppi bu ci xëy daanu nag ñu xëy ni daanu waaw yonent bi dafa ni wàllu transparence nee na loolu mooy suñ doon wax vertu islaam yonent bi nee na transparence mooy vertu islam wàllu transparence yonent bi nee na su ñuy wax vertu bi islaam am boo xam ne bu cher la nee na mooy wàllu transparence kon gis nga euh, transparence yonent bi xamoon na ni axiru zaman euh, dootul amati wala bu amee dootul bare waaw mais léegi liggéey yi c'est très rare nga gis ci liggéey boo xam ni dafa am transparence amatul ci liggéey amatul ci daayira yi amatul ci organisation euh, religieuse yi amatul fu bare ci organisation politique yi fu nekk transparence amatul waaw te yonent bi nee na transparence fu mu amatul rek nee na foofu vertu islam nekkatu moo tax ma ni yi nu war a organiser ci islaam te yonent bi sallallahu alayhi wa jox ñu ko bare na loolu balaa ñuy wax yi nga xam ni moom moo ci topp waaw ci yu ñu war a njëkke waaw ci yu ñu war a njëkke ndax islaam dafa am ay vertu waaw te yonent bi nee na bokk na ci vertu islaam nee na wàllu transparence yow mi jël dërëm ci islaam ñu xam dërëm bii kat ku ko moom fu mu dugg ak fan nga koy dugal waaw parce que nee na boo bañee <laughs> ëllëg tamit yàlla dina la ko àtte dina yàlla dina la laaj neena yàlla dina la laaj soo bañee ëllëg nee na yàlla dina la laaj waaw loolu moo taxoon yeneenti yàlla yuusuf yeneenti yàlla yuusuf ak la mu daj yëpp yeneenti yàlla yuusuf ak la mu daj yépp ci ay doomi baayam waaw sànni ko ci teen ak euh, créel kaak dem ni moo fi sàcc lii ak euh, mu defe ni am na jàmm ñëwati euh, soxna buur ba ñëwati violé na ma ku nekk wax ñu tëj ko ci prison lu nekk mu dégg ko ci keroog ba mu génnee ñu defee ni li mu gis nguur la te moom gisul nguur moo tax sax yàggul ca nguur ga ba ñu ko laajee ni ko nguur gi nan nga koy doxalee xam naa sax euh, conseil yi commencé naan xam naa esprit de vengeance ngay utiliser ndax li nga daj waaw sànni ca teen ban la sànni indi la fii accusé la tëj la prison fii waaw ba tey jii léegi yow yaay roi bi waaw ñu ni ko léegi nag euh, xam naa esprit de vengeance nga yore <laughs> mun leen yorewuma esprit de vengeance ñu ni ko lan nga yore mu ni wàllu transparence lay doxal waaw ku jëloon dërëm wax ma fu dërëm bi dugg ak fu mu génn waaw waaw kuy waaj jël dërëm wax ma foo ko jëme waaw ku yóbboon saako dugub wax ma saako dugub gi koo ko jox kuy bay wax ma grenier bi li ci nekk ci ay saak waaw ñoom ñëpp bu ñu génnee waxtaan ñu ni eh, lii ndekete sax vengé woon moo ko tane waaw ndax fu mu ne yi nga ay sàccoon yëpp daan ko delloosi si waat waaw seetal lool dem nañu ba gis ni ndekete doxal wàllu transparence moo gën a metti ci bo boo àndeek ñu dënk waaw Yuusuf fayu na waaye fayum yëpp lool na waaye fayu ba daf ko jaare ci ni moom wàllu transparence rek la xam xamul leneen ni wax leen saako yi fu mu dugg wax leen dërëm yi ngeen jaay wax leen yi ngeen jaay ci marché bi yëpp ñu def bilan bi xool ñaatal waaw gaa ñu mujj ni lii daal fayu woon sax mu jeex ñu noppalu moo ko gën waaw ndax am na yoo xam ne fàtte nañ ko mu ni waaye yàlla fàttewu ko waaw ndax c'est un prophète mu ni leen yàlla fàttewu ko waaw mu ni leen même yéen su ngeen ko fàttee yàlla fàttewu ko comme yàlla fàttewu ko nag mu ni leen ci bàyyi xel waaw te yooyu actuellement mooy islam euh, di di incarné waaw mooy islam di incarné waaye malheureusement malheureusement dañ dul am ay dirigeants yoo xam ni. ragal nañu yàlla ci ay entreprise wala ci ay place wala ci ay association ba mën a appliquer loolu àlla la lettre waaw ñoom dañ ko changer ci beneen sens bi au lieu ñuy doxal wàllu transparence dañuy doxal wàllu euh, li wolof di tuddee yaa ma neex rek waaw yaa ma neex rek ma jox la lu nekk neexuloo ma ak loo mën mën liggéey ma ma ma jëlee la fi waaw te yooyu bu xasee ba am ci société société ba dafay yàqu. yonent bi yooyu la waxoon bu amee ci société rek société ba yàqoon waaw loolu moo tax Ababacar préserver ndono waaw Ababacar préserver ndonu yonent bi ba ba mu fi jógee Umar nekk amirul muminin Umar préservé ko ba conflit ba di ñëw waaw conflit ba di ñëw diggante Ousmane ak Aliou waaw mais Umar préserver na lu mu mën waaw lu mu mën waaw bañ na ko ba keroog bi ñu koy wax yow fenn rek nga mérité mooy ci wetu yonent bi dafa ni su ko nangoo. fekk yonent bi nangu na ko ba mu génnee àdduna ñu denc ko waaw mais ñëpp ni ko ci wetu yonent bi rek nga mérite waaw ndax sacrifice yi nga def waaw sacrifice yi nga def te dëgg la waaw sacrifice bu nekk def na ko waaw mu mujj ci assassinat waaw mu mujj ci assassinat waaw waaw dama ko mës a wax fii ci benn bayaan waaw xalifa Babacar ni ma ba mu déggee loolu dafa tiit waaw ndax ku nekk ci mission bi ndax dama ni leen euh, yonent bi Ababacar toog na ci wetam. Umar toog ci wetam Ousmane toog ci wetam Alioune toog ci wetam yonent bi ñaan sécurité ñaanal leen sécurité waaw ñaan sécurité ñaanal leen sécurité waaw Ababacar génn àdduna Umar nu assassiné ko Ousmane nu assassiné ko Alioune nu assassiné ko ñu demandé ni waaw ana sécurité bi leen yonent bi ñaan ma ni yonent bi ñaanalu leen seen sécurité dund seen sécurité mission la leen ñaanal seen mission àgg na kenn ku ci nekk même assassiné nañ la waaye sa mission àgg na parce que dugg nga ci xulafaawul arba te sa tur dugg na ci diine te dootul fay waaw kenn mënul sopp yonent bi ignorer Ababacar kenn mënul ignorer Umar kenn mënu ko ci Ousmane kenn mënu ko ci Aliou kon kay sécuriser na seen mission waaw bu dee bakkan bi nag kullu nafsin zaa'iqatul mawt waaw loolu lu ñu wax waaw bu dul ci assassinat yi di ci naufrage bu dul ci naufrage di ci mort naturelle bu dul ci moor naturel di ci leneen waaw mais ñu ni ala kulli dafay am waaw waaw ñu ni ala kulli dafay am waaw moo tax ñoom xalaatuñu woon ay euh, fii laag assassinat bi ñoom li ñu doon xalaat mooy daal bis bu leen yàlla dee jël mu fekk leen seen imaan mot sëkk seen ngëm yonent bi mot sëkk loolu dong moo leen ñoroon waaw te loolu moo war a doon priorité jullit bi. loolu moo war a doon priorité jullit bi waaw waaw loolu moo war a doon priorité jullit bi waaw waaye nag euh, su ko defee jullit yi moom ñu ci bari dañuy fàtte seen priorité lan la dañuy fàtte seen priorité lan la am na ñoo xamit euh, euh, bëgg dund bu ëpp mooy tax waaw bëgg dund bu ëpp mooy tax waaw moo tax benn góor benn góor gu baax waxoon ni dafa am benn mbokk nee na mu ni ko aljana kañ lay jeex waaw nee na mu ni ko du jeex abadan la waaw waaw fii fiha abadan waaw nee na mu ni ko chaque jour chaque jour chaque jour nee na mu ni waaw mu ni kon dootul neex waaw parce que dafay sàppi nee na mu ni ko ñaata at nga am mu ni ko man maa ngi ci quatre-vingts ans nee na mu ni ko nu ñaanal la suba nga dem barzak nee na mu ne ah naa fi toog ba ci kanam nee mu ni ko àdduna mu naqadi bii rek bëggoo dem waaw aljana nu mu neexee nga ni chaque jour chaque jour dootul dootul neex waaw te yaa ngi ci quatre-vingts ans te te ba léegi bëggoo fi jóge mu ni ko pour wax la philosophie bi ngeen foog ak bi yàlla di def bokkul waaw philosophie bu ngeen foog ak bi yàlla di di di def bokkul waaw te loolooy réalité bi waaye da ngay gis rek léeg njaboot gi yónnee ko waaw njaboot gi woo daaw da ku ci feebar tuuti rek daal pour moom jeex na man xaw ma feebar lu mu joteeg dee nit a ngi fii wér péng nit a ngi fii wér péng génn àdduna waaw loolu du dara waxtu bu jot la rek waaw loolu du dara waxtu bu jot la rek waaye léeg-léeg nga gis ko ci feebar rek waa daaw ah waxal sang bi day bëgg naa fi toog ba ci kanam de ah léeg-léeg nga dégg sax ku taafantoo ni xam nga njaboot gi fi mu tollu moom ma ni waaw njaboot gi <laughs> na ci na nu ñaanaat nangami at rek waaw ah. su ko defee ma ni ko wax leen nañ fi toog ba deux mille soixante quinze waaye daal su leen ko waxee dañuy mujj si bile sax waaw ndax dañuy kontaan <laughs> dañuy kontaan pour wax la ni yooyu yëpp nit ñi dañ koy ñaan waaw fekk nag yàlla def na nit feebar ba tàyyi waaye feebar ak dee jotewuñu dara. waaw dara la ñu jotewul waaw nit a ngi wér péng fii génn suba gannaaw suba ñu tàgg la ko waaw fekk dara jotu ko woon bis bu ne nga gis ko waaw bis bu ne nga gis ko waaye nit a ngi feebar ba ñëpp ni amatuñu ci moom yaakaar mu jugaat di dox soxlaam waaw mu jugaat di dox soxlaam loolu mooy li si nekk waaw su ko defee loolu bàyyi si xel bàyyi si xel farata la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dund daal nee na dund gu barkeel moo ko gën bi ñu ko laajee itam dund gu barkeel lan la mu ni mooy dund goo xam ne da ngay ànd ak sa imaan nee na ànd ak sa ragal yàlla waaw ànd ak sa ngëm nee na ànd ak sa ragal yàlla waaw kon loolu la jàngale ah su ko defee rek comme ni ñu ko daan defe yàlla dogal na seen kër jot na euh, trent minutes rek moo des ci salaatu waaw waaye guddeem moom yonent bi boo ci amoon ñaari minutes sax doy na waaw guddeem moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ci amoon ñaari minute ca guddi ga doy na boo ci amoon benn minit doy na waaw waaw ndax guddi gu am solo la ci ñun waaw te guddi gu am solo la ci béréb bi ñu nekk waaw te loolu ñëpp xam nañ ko waaw loolu ñëpp xam nañ ko waaw kon nag lii nga xam ni yëpp baawaan na fi ci lumière yàlla nañ ko muurloo waaw waaw li ci baawaan ci lumière yëpp yàlla nañ ko muurloo waaw li fi baawaan ci lumière yëpp yàlla nañ ko muurloo waaw ndax loolu mooy réalité bi fi am. maa ngi doon wax ni di ko wax mbokk yi sax xam naa daan ci commencé liggéey ni leen bu ñu paree ci gàmm gi rek ñu ngi préparé gàmm bi waaw ñu ngi préparé gàmm bi waaw ñu ngi préparé tournée nationale gàmm bi waaw maa ngi ciy déglu maa ngi ciy déglu ay consigne waaw ndax nag dama dégg it la Cheikh Ahmad Tijaani ni ma am na it fu ma la bëgg yabal waaw te ma fan la waaw te xaw ma nag ndax date boobu daf koy jege xaw ma day coïncider xaw ma lan la xam nga man wax naa leen mission boobu ba léegi ñu ngi ciy wax de. te waa Gambie ñi ngi xaar bu baax sax waaw njaboot gi nu fa am yëpp njaboot gi nu am ci daayiratul imaan Gambie yëpp ñu ngi mobiliser ñoom di xaar di préparer liggéey yëpp liggéey leen ci na ngeen ca war a liggéey rek waaw waaye Cheikh nee na ma am na fu ma la war a yabal it de te foofu priorité la waaw a ah, lu mu wax rek suñu demee ba trouver consensus suñu wax leen ko waaw ñu wax leen ko waaw moo tax daal bi ma ko waxee ba léegi maa ngi naan waaw loolu moom Gambie bi noonu novembre lañ doon wax moom it mi ngi wax xaw ma fu ma bëggati yabal waaye nee na ma daal fi ma lay yebali priorité la nee na ma Gàmbi priorité la waaye fi ma lay yebali priorité la waaw fu mu ne maa ngi koy déglu rek tabaarakallaahu waaye nag euh, waa Gàmbi moom bu kenn désespéré <laughs> ñu ngi koy waaj <laughs> ñun tam ñu ngi ci incha allah waaw te bu ñu jugee rek mbokk yëpp yore protocole beeg organisation bi yëpp daan ci liggéey liggéey bu am solo tabaarakallaahu ndax mission bi moom mission universelle la waaw waaye du tee nag consigne bu ñu Cheikh Tijani Chérif jox ñu jottali leen ko ndax loolu mooy réalité bi waaw te loolu mooy aussi li am sens. waaw ah, te man wax naa leen ko ni ñun loolu dong moo ñu ñor tabarakallah ah kon nag yàlla na yàlla def lépp di xéewal yàlla na yàlla def lépp di mbégte waaw yàlla na yàlla def lépp di ngëneel waaw mbooloom ñi nga xam ne ñëpp dañu fi indi tawat yàlla na yàlla wéral seen tawat waaw ba ñu jóg doxi seen soxla waaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñi nga xam ni itam dañu ñàkk yàlla na yàlla dimbali leen ba may leen wërsëg bu yaatu waaw boo xam ni dinañ ci xëcc seen njaboot xëcc si waaw ñi bëgg nañu denc soxna te mënaguñ ko it yàlla na leen ko yàlla mën loo waaw ba may may leen luñ ko yore waaw soxna yi nga xam ni it ñu ngi ñaan ni dañu bëgg borom kër gu baax yàlla na leen yàlla may ku leen yor waaw may leen borom kër gu baax waaw gu leen yor te du leen sonal lu am solo la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif kon dañ ne woon rek ñu ñëw barkeelu ci guddeem ndax guddeem yaatu na te yiw it yaatu na kon nag ñu jàng fatiha nu def ci haaji yëpp tëju ko salaatul fatiha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 rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa xina azaaba annaar rabbana laa tuzi qulubana baxda is xadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahaab rabbana ixfir lana wa li ixwanina allazina sabaxuna bil iman wala tajcal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufu rahim bi hurmati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq